asalaamaaleykum mbokk téléspectateur bu 2STV ñëwaat nañ ci seen beneen numéro de votre émission confrontation comme ni ma koy amalee àjjuma ju jot naa leen confrontation dañ leen di indil ay ndaanaan ndaanaan yoo xamante ne dañ leen di ràññee seen originalité ak seen créativité la seule émission qui pense à vous et vous incite à regarder la télé duma ci wéet benn yoon dama koy ànd ak sama rak sama xarit Mouhamadou Moustapha maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay bu baax a baax di am mbégte toujours comme émission bi ni koy defee saa su ne vendredi jot na votre émission confrontation votre émission préférée euh, ñëwaat na et puis nuyu les internautes yi nga xam ne via Facebook YouTube Instagram ñu ngi di bàyyi xel ñi nga xam ne ñu ngi suivre Instagram bu 2STV waaye Instagram aussi bu confrontation bu 2STV ñi ngi nuyu ñëpp tey nag spécial confrontation la waay spécial confrontation la Mouhamadou Moustapha dañuy gërëm équipe euh, yi nga xamante ne ñoom la ñuy àndal yëpp ci émission bi bokk na ci Massata ak Moussa Yer Ndaak Baye Modou Kane moom mooy génn à chaque fois ci grand boubou yaanj bi ah waa Sen Gold ak euh, Amélia Amel Beauté ah ci sama make-up ak euh, yu ni mel wax dëgg yàlla joojo moom chaque fois ci traitement de cheveux yi rek mm-hmm. mais nag émission bi bokk na ci Connectec ak waa Nourou la Jou ah au Royal Mm-hmm. ndox bi nga xamante ne andi mu sax damay bëgg di ko gàddu mm-hmm. Moustapha abal ma nii waaw ah, kay au royal du ay caaxaat ndox baa ngi nii au pur clair et très légère wax dëgg yàlla euh, daw leen wuti ko yomb na bu bëgg a dee ah, am neen format bu ne gis ngeen bi nga xamante ne moom lañ teg ci kaw table bi bii bu format mag la bii format bu ndaw la mën nga ko jox sa doom mu jàngi am na ay fontaine aussi mm-hmm. am na yeneen i bagage yoo xamante ne au royal da leen koy jagleel euh, euh, daw leen ngeen wuti ko ndax ndox bu bu oyof la eau de source la ay ayca euh, Nourou la Ju ah dangeen dem ci ëddukaay yi da ngeen koy am waa Nourou la Ju euh, ñu ngi nii euh, jus yëpp a fay am karasol buy bisaab di tax ah lépp. Euh, bokk na ci aussi li nga xamante ne moom mooy consommation consommation locale loolu la ñuy wax wax dëgg yàlla parce que 100 pour cent Sénégal la 100 pour Jolof <laughs> Chicken la ah waa Jolof Chicken euh, ay wins yu amul fenn ñoo fa am am na hot wins am na yeneen façon wins yi xam naa nag fii ak balaa émission bi di jeex ñoom dinañ ñëw wane seen bopp parce que tey tapis vert ñëwul waaye Jolof Chicken ñëw na mm-hmm. waaw kay ayca à part Jolof Chicken am na ci li nga xamante ne moom mooy dolli ma mm-hmm. soow bu bu baax soow bu ah, neex neex mm-hmm. ah soo boo xamante ne boo ko naan da ngay toll ci man baax ci ñu jàngi waaw soo bu yafalaate la yow bi yafalaate la mm, ah, vraiment non war na koo jël ndax mu njool mm-hmm. du dëgg ak zoom papi war na koo jël ndax mu njool <laughs> waaw karaajo war na koo jël ndax mu bàyyi nelaw bi waaw karaajo waaw ah, yooyu yëpp beer xam nga mënuma laa wax dara day jaane ne ma fi <laughs> ah duud yi war na koo jël ndax mu bàyyi immigration bi mu def ci xelam bi mu def ci xel bi waaw ne day ah, dem ci la bokk yooyu yëpp ci la bokk Moustapha war na koo jël ndax mu sawar gaaw Moustapha rang muy gaaw mais Moustapha doy yëpp <laughs> ayca waa ADN ñoom ñëpp euh, euh, ñu leen di nuyu bu baax bokk na ci aussi Wave. Wave ah sa xaalis yaa ko moom euh, moom moom 1 pour cent rek nga daal di def sa transfert. Mm-hmm. ah moom sa xaalis yaay borom. Ah, waaw ni ñu koy waxee sa xaalis yaay. borom boo demee la nga fa sotti woon nga fay retiré waat. amul fere waaye retiré frais dépôt frais. <laughs> <laughs> Ah. tout est frais. tout est frais ah, avec Wave avec Wave tout est libre. loo fa teg yaa moom la leer nga koy jëlee. waaw yow si amul sa xaalis loo neex ngay jël ci la bokk. dama leer dama mer trop. moom ëpp ah, naa parce que Wave yéex naa la xam trop yow Wave. waaw <laughs> eh, Bruno la looy taf gémmiñ di aj loxo Wave moom a fay la la alors. lan la ak moom. Wave la la <laughs> bu ma kenn vaar de sa yoon nekk ci. bu ma kenn vaar de wéef laa wax lan la. lu fi jar loolu Bruno jàppal ci combat bi rek. mais yow fii li fi xew. oye oh ko yii jot na fee am ñun li ñuy wax nii yëpp. eh sëñ bi waa lan la. mais te signature contrat. Mamadou Moustapha présenter sa alors euh, gis ngeen ko tey ah, euh, vraiment mm, yaaw jàll annoncé na tey suñu invité yi du kenn ku du tey dañu indi ñoo xam ne ay ay ay mbër lañu mbër yoo xam ne itam ràññee nañ leen ci euh, arène bi dina wax kay ah ku ci mel ni moom mi ngeen jàkkaarloo muy la muy muy muy muy yaaw jàll Euh, tey moo doon suñu invité am na nañu aussi ki nga xam ni moo di Adama juuf Adama Diouf moom itam ku ko ko xam-xam. seen jox ko sa gars yi quoi ci mbër mbër bu am solo waaye am nañ tafaagay numéro 2 ñaar ñi nga xam nag ñi ngi ñëw léegi ku ci mel ni wulli ak ki nga xam ne moo di liiru jaan tey donc cinq invité la ñu am loo xam ne ci làmb la ñuy yëngu tey ku ci nekk ak sa morom combat la moo xam ne bu taxaw waaye nag tey xam nga ñoom bu ñu leen tegee fii ci plateau ñu nekk ay mbër xel da ciy baax aussi mm-hmm. mu daw ci nga xamante ne wax dëgg yàlla nee naa la euh, kooku sama xarit la sama mbokk taalibe sama sama sama sama wóllëre ah taalibe Cheikhu Khadim bi kooku Balla Gaye 2 lañ koy woowee tey anniversaire am la ñu koy souhaité happy birthday happy birthday mbër all the best ah enjoy day mbër guddal fan ah yi yokk saawaan baawaan bokk na ci alima aussi sama rakk la moo topp ci man miss tey aussi anniversaire am ñooñu 11 décembre la ñu judd seen anniversaire waaye sama yaay ji anniversaire am barki démb la woon yaa see di seen kooku moom borom États-Unis kooku moom wax North Carolina waaw décembre bi 22 décembre. ah waaw Tukuleel Kouré Ndiémé anniversaire am xam nga du yomb. Mhm. waa mais euh, euh, nañ dem directement ci sa invité bi. alors euh, yaaw kii di séddale ay masques ak di moom la ñu njëkk a dalal ah. yaaw ça waaw yaaw bul jël occasion émission bi nii rek. pour xewaat yow mën a goo xew. <laughs> yow sa xew jeex na. léegi nag mën ngaa dindi masque bi booy wax garaaw amul mm. problème. yasaar ok ñoo ngi lay nuyu. sa xew jeex na de yaaw <laughs> nuyool. waaw laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam laa ilaaha illallaah bu ma santee sama ndey sant sama baay sant sëñ Abdou Karim Mbàkke borom maxrim axlaa borom sant borom maxrim axlaa naka waaw sant suma sëriñ Ablaye Wade eh delluwaatal ci ginnaaw répète répète laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam yaa ngi sant ba ma santee sama ndey sant sama baay sant sëñ Abdou Karim Mbàkke borom maxrim axlaa naka sant suma sëriñ Ablaye Wade <laughs> yow sant nag dégguñu eh. dégguñu sëriñ Abdou Karim boobu lañ bëgg ngay naan sëriñ Abdou Karim borom eh. laa ilaaha illallaah Muhammad eh, waxuma laa ilaaha illallaah Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam. sant sëñ Abdou Karim Mbacke borom maxrim ak laa. borom lan. ah waaw waaw mais bisu lan nga déggee nag mbër. dégguma mbër déggul. borom makaarimal axlaa. waaw jeex na waaw borom maxrim ak laa. sant Youssou Ndour. bu baax sant Ibrahima Sall surtout maam Thierno Ibrahima Mbacke borom. borom maxrim ak laa. di sant nag moom sama benn tonton ju baax bu dëkk Aziz Aziz Ndiaye dëkk États-Unis ak i soxnaam ak i njabootam. di sax waa buur mais yow tey nekkul ci ci na maa xam si plateau yi. mooy mooy wax rek kon. xew ah. <laughs> da ngay waxee da gore. da ngaa gore mm-hmm. la bëgg dégg. Mm-hmm. xam man daal maa ngi man daal maa ngi sant waa Sénégal ñëpp. mais Abdoulaye Wade dégg ko sant bi de. non bu baax Abdoulaye Wade moom c'est le meilleur sant. fàtte nga ko. fàtte kon ma dee Abdoulaye Wade c'est le ah. meilleur d' accord dinañu ñëw sant ba sant nag mun gaawal xam nga maa ngi sant waa Sénégal yaa xam ne sant Ibrahima Sall si maam Thierno Birahim Mbacke borom Daaru mhm. ak madame Sall mhm. xam nga di sant Youssou Ndour ak ay soxnam ak waa la ma mhm. jóg bi làkku ma def sama patron bu ñuy ne Seexu Sarr tey ñu mu oto bu lang mu nekk nijaay Lac de Guiers numéro un Lac National juróom-ñeent barke de Modou Yàlla soo ko gaañu ma ñu ñëw ma daal maa ngi koy jaay sama mbokk waalo waalo mhm. waa grand bi ak sama mbokk sama super yi mhm. apprenti yeeg ñëpp ma daal ma maa ngi jaay ñëpp pa boobu Diop nag maa ngi koy jaale ministre des sports Ba yaa ngi dégg ak Aliou Ngouye Ndiaye ñoom maa leen sant bu baax dinañ gërëm nga baax a baax waaw merci léegi après dinañ ñëw nga continuer gërëm ak ministre de l'emploi Dame Diop ak Souleymane Soumaré ak Bamba Mboup ok ñu ngi sant bu baax di leen gërëm nuyu Adama yow tey bokk nga ci ñu dalal tey ku la xam-xam la ci laam ñu ngi lay nuyu bu baax a baax asalaamaaleykum gannaaw ma sant yàlla julli si yonante bi mhm. maa ngi nuyu ñi ma fekk ci plateau bi mhm. di nuyu di nuyu di nuyu Bisou di nuyu Moustapha Gueye di nuyu Yaaw Dial di nuyu El Hadj Ndiaye borom DSTV mhm. di nuyu ki ma àndal Abdoulaye Diop sum production ak góor production di nuyu Angèle Fall Mbayang Fall di nuyu Xaar caw Mbayang Luum di jaale nag ki nga xam ne moo fi gën a barkeelum le grand maître Balla bi nga xam ne mooy anniversaire di ko ñaanal di jaale nag Pape Bouba Diop bi nga xam ne def na rëy Sénégal di ko jaale waa Sénégal di ko jaale sama bopp di jaale suma benn grand boo xam ne ci deuxième laa demoon dëkk ba mooy Eli Bikon le grand champion. ñu gënoon koo xam ci bëri simple mu def ci lu rëy. di nuyu suma papa ak suma yaay ak suñ waa dëkk. fàttewuma kenn ak suma soxna. ak sumay soxnay mag ak ñëpp. di sant ñëpp di nuyu Ablaye Ndour Daas. Adama Ndour nuyu waa équipement bi Pierre Ipen. di nuyu docteur Makuma Diouf ni Souleymane Dioral Matar Diop au conseil. di nuyu. non bis looy re yow bi nga daan nuyu réunion bi di nuyu ñëpp fii boo fi da nga war nuyu ñoo xam ne say nit lañu mën ngeen ko joxe après ci fin ah ok am benn problème am benn problème am benn looy re mel ni aw ma droit re <laughs> Tapha Gueye numéro 2 mi maa ngi lay charé maa ngi ziar àdduna yëpp trabajar euh, no si no rojado no tengo dinero solamente trabajando <laughs> por favor pero di nuyu Sénégal yëpp <laughs> d'accord di nuyu àdduna euh. parce que émission bisu ngoon ñëpp a koy seetaan mm. ci àddina muy François Lyon ñoom mbay mhm. sama gaa xam ne ñoo nekk Lyon mhm. ay jàmbaar lañ mhm. euh, di nuyu sama grand bi nga xamante ni sama grand la sama conseil la ñu naan ko Demba Fall le fils de Boy Nar Fall euh, di nuyu nga xamante ni ñooy waa ba di nuyu ñëpp ummi borom Pikine euh, di nuyu laa su ma limee damay jum waaye maa ngi lim di gërëm Fata bi nga xamante ni moom ma jox oto boo xamante ni boolu mag chauffeur xam nga loolu yombul jël oto jox la chauffeur jox na la demal bisu ngoon la éviter da nga war a dem ndax àdduna teranga la di nuyu Balla ga euh, du nuyu ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi yëngatu ci ci sàmm ji euh, ci laadum yeeg yooyu euh, di gërëm ñëpp ñoo xamante ni ñu may seetaan yal na yàlla defal jàmm d' accord Bijou am nañu wulli moom itam mi ngi ci yoon bi liiru jaam tamit xam naa léegi mu ñëw donc doxalal rek waaw donc ñoom ñoom la ñu dalal mais yow daal li nga indi nii pour la lan wala ñu la yow da gëj am combat wala moo tax tey nga am envie indi say sengoor indi say buy ak sa sow yëpp waaw xam nga maa ngi sant sama manager. waaj waaj Fall bu Pikine. waaw ah, d'accord léegi ñëw ci li ma la laaj rek après nga. ñun samay manager ñun samay staff lañu. Mhm. beneen yaaw jaay moo dellu si waat. Mhm. te maanaam dama def jël si lamb mhm. tëb ma tëb la Sénégal dégg ma. damay rampi du xuus di rampi du xuus di rampi du xuus ba Sénégal bu dégg ma. kon boog lii comme de ndeysaan coronavirus bi nga xam ne yàlla si yàlla musal. yaa ngi dégg. yi dañoo nam étranger wu yaaw si lamb dañoo nam lan. étranger wu yow. maanaam samay déplacement daal. c'est stratégie. voilà voilà gis nga. la nga ne. waaw waaw moom mooy li nga foog rek. waaw mais wax wax ko say téléspectateur dégg la. waaw samay étranger yi. Uh-huh. bon samay support rek samay nit. Uh-huh. dañoo nam déplacement wu yaaw si géew ak si lamb. Uh-huh. parce que fu ma turne ñu ne ma yaaw corona bi ko man leen xanaa balaa ngeen di wax combat comme te corona bi ñëw na fi. ñu xeex moom ba daan ko. corona bëgg a ñëwaat dañuy préparé waat ba daan ko ko daanee ba pare nag su boobaa nag li ku mel ni Luc Nicolaï wala ay Petit Mbaye wala Gaston Mbengue ak a mën a dellu si lamb moo tax am na su ma fàttalikoo gars yi nii seen xel dina mën a nekkaat si retour de yaaw jaar non mais est nekkul li biis wax moom la ñu critiqué waaw dafa fay yaaw déggatuñ ko amatul combat fay waaw laa fayee man mën naa nekk xaritu président de Sénégal ban président. sama sëriñ Ablaye Wade. non ma. moom ba Ablaye Wade wàccee la yóbbaale. non man Ablaye Wade laa man ku xam yaaw ja xam ko si Ablaye Wade. waaw d'accord ne dañ mais mais mais Ablaye Wade nekkatu moo man daal Ablaye Wade man man man maa koy ñaan yàlla wër ak gudd fan. si daraja Seydina Muhammad si barke ak ay teewaat. Ablaye Wade demee la yóbbaale. Ablaye Wade maag moom yàlla même su ma làkk woon sax samay njaboot ñoom Abdoulaye bu ndaw ak Mouhamed ak waxuma loolu de waxuma àndatu ren de ah, sa bayra daf ko yóbbaale ah, nu mu ko yóbbaale léegi lamb di kër xam nañu yaaw bi nit Abdoulaye Wade bu daanee bu toogee kañ la am combat kañ daaw daaw li ñu wax de dóor mu daaw sum waa sum ñu tugul sama combat ma daal fu mu seen maire bi ne ma yaaw boo jëlee drapeau boo ko yóbbee Dakar si waa bu ñu demee élection ko ñàkk ngir yàlla ko ni bi star nga yaaw bàyyi fa drapeau bi barke saatul fàcce maire sum nga xam ne waa suñu ñëw tëggoon lamb ji fan yee passé ànd seeg ñoom Père Mbaye Gueye ak ñoom Ibrahima Mbaye ak ñoom Bamba Mbuub association de fils ñoom ñoo créé woon combat yoo xam ne ñu koy yóbbu fekk lu ñu koy ñëwal ngay jaay stade man sama jëm boobu nag bisu man may bëri combat spécial tournoi la mais saa su ma bëri combat yaa ngi lay bisu bisu histoire yaa ngi gën a bëri histoire mbër bu nekk un métier bisu bisu bisu ne mbër bu nekk un métier léegi ñu bëgg a jël loolu yóbbu ko euh, sum benn dëkk bi ñu wax sum ñu créé foofu foofu benn sa sa sum amaana combat léegi combat yi sa nga jël buy ñu ne yaawu jaan mooy bëri grand combat léegi man daan waa ji ba pare uh-huh. maire bi ni ma yaaw ngir yàlla ko di bàyyi bi drapeau bi ndax boo fi bu ndax boo ku gars boo demee atta ñàkkam ko ba ma delu mel ne Abdoulaye Wade moo tax gars yi nit paa bi eh, la tafa yow xaar ma ñëw xaar non non yow xaar ma ñëw xam nga yow déglu ma expliqué yow munoo fay non non ay eh, man maay waxtaan ak ah, yow munoo fay ah. géej ñëw ci palaatu ah. ñëw tey bëgg ñu ray ak wax da ngay xaar bu ma la joxee kàddu nga wax et puis nga wax yu gàtt ñu wax d'accord sinon da ngay jug dem de am na la fàttali bi bi non champion bu fay champion bu fay ba àgg fii gannaaw yàlla seen na man eh, champion bu fay xewatoo de te man du xewul danga may tàddeel léegi YouTube bari mais MPS ak 2S dañu jël koo xam ne ku siiwaloon ku wala ku deful jaloore. mais léegi kon si dafa neex nii gars yi jël yenn gars yi di neexal ay YouTube ay 40 minutes tànn pour ñu leen interview gars ah, man daa waxee ma fa man bokk fii. wuli ngay wax dama damaa bokk sama ndax am na ñoo xam ne du ma nangoo seen plateau. ah loolu mooy nga ko wax de. ah léegi mel wul gisu man duma ngaa xam na rek. waaw jeex na caa du ma defee xam la ah ñi ngay waxal du ma mar arrière kenn ndax jantal mi la góor yàlla la xam la carrément mais tey booy génn si jooju wax nag génn si jooju wax dégg nga ah. fii kenn mën a fi taatu kenn fii kenn def fi yëf kenn kenn def mën na joobee mën na joobee yaa ngi dégg waxuma kenn na joobee fii kenn joobee wul noonu vraiment man sant yàlla yàlla da ngay ma ma wax non ko yaay wax léegi ñu mën daal gars yi ma bëgg ñi bëgg Abdoulaye ak ñi bëgg ñu ma bëgg tu as largement ak ñi ne sala lay ndax rasulullah sallallahu alayhi wasallam samay nit lañu samay waay ak dafa jàpp sama yow am nga deux ans wax li ko war a wax waxal amu problème ñàkk combat xanaa xamoo day def lii kat ñàkk combat si ma bis bis bis ma mbër yoo xam ne dañuy wër si temps bi. yow eh man léegi est-ce que du ma commencé ngeen utuma xiir xiir soxla xiir de. xiir bi soxla xiir laa soxla ma koy defaate ko soxla de. waaw yàlla nangu nañ la loolu léegi man léegi may kii nuyoo léegi may kii nuyoo waaw d'accord waaw d'accord après dinañ sant di nuyu bisu. maa ngi bu baax. di nuyu. kii nuyu de. Big Taf Tafa Gueye yaaw Adama. di nuyu waa DSTV ñëpp di nuyu Sénégal yëpp yi ñu seetaan. di nuyu sama supporters yëpp. ku nekk ci réew ma maa ngi lay nuyu. di nuyu sama sama yaay. mu nga reefal mu ñu seetaan. sama papa yàlla ku yàlla xare ajana. Mhm. sama soxna moom moo léegi ki commencé na Salimata John maa ngi koy nuyu. di nuyu Mbaye Diop sama doom Amina ak Ndeye ma wax nga ko da nga tardé wala dafa am foo jàdd. non dama tardé bisu añum bi daay da dafa tey dama. dëkk moo xam nga jàpp ci buy bi ni xam. bilaay añu ma ginjar ñëpp. léegi di nuyu aussi kii ma sañ seet de dama dama guddee bilaay. maanaam am looy solo. bilaay waaw. da ngay génn sañ sewaat. waaw mais lii. Ah. boo na nawi taa moo ma ko solal. sama kenn de. du génn ci kuy dem Dubaay. Cheikh Dubaay fii dama jaare. waaw Cheikh moom jaare fii xam nga ne su soo ba tey daa ko sol. pour nga jàkkaarloo ki nga war a dajeel combat. bon ki laa bëre. ngeen dend le fou de séeréer. le de fou séeréer la. le fou li combat la. la combat. damaa <laughs> ngi yow ñaar. d'accord. Euh, euh, Moustapha uh-huh. ñu ñu ngi lay dalal bu baax ci émission bi euh, Tarbaxa Moustapha uh-huh. Moustapha nag Moustapha nag gëj nga am combat nag Moustapha mu keroog laa bëri ak am njaasi bi rek yàggul keroog kañ mais bu koy seen combat yi kii watul lay man tojatu leen xam nga da ma évité uh-huh. mais Sénégal mais Sénégal xam nañ kan mooy Tapha Gueye numéro 2 waaw man trois fois champion d'Afrique laa def battu lama lama Atanas Assane Bal Malal Balla Aruna Burkina Faso yi yéex yi yéex yi ni mu may dégg Yékini mu may dégg ban jamono Niger lañ fa def xam nañ ko. Mhm. ñu lañ bokk ci làmb. làmb nag instant bi dafa am ñu topp làmb am ñu wéeru ci làmb am ñoo xam ne ni day dundal làmb xam ne dañuy dundee làmb am ñu làmb mhm. ah, la fi di daw. déedéet. ah donc de maa am ñaas ñoo mujj bëri yàq la nii. maag am ñaas làmb bawu leen fi da leen. Oh. loolu mu ne. ko topp di daw. noo kaay ma xam la ma xam la man làmb. ñu ngi naan solo. man nekk ci làmb moo tax. waaw lii la. maa guddee solo gu ma bi laaxee. bi yaa ah, nekk ci làmb moo tax. ngeen ñëw fii tey évidemment fii confrontation. Mhm. te lii yombul toog fii. Mhm. ñi fi bëgg toog bari na. Mhm. yéen ay star ngeen nag. maam Ngor gi Ndiaye nee na sañ bi Birame Gueye ci rajo Diagne Diakher Baye Mbanga Mbaye Gueye fee ko moom. léemu la mu dumbaat ca cëddeem. xalam demoon bay ko dog. lii mën nu dog day continuer. léegi lu combat bi ñu wax yéen ñaar ay combat li wuli wax. loolu xam nga yow man kii yaaw bi ma bëri moom sama rakk la sama doom la. kii sama kii maa bëri moom. non fii du combat. waaw kii wulli la am kii. liiru euh, jaan la am combat sama liiru jaan la gars yi dox. ba liiru jaan la gars tax mhm. dafa taxoon. ma ne ko luy nen du ma daan. luy nen jaan day nen. te man luy nen mënuma daan. ah bon ndax ndax léegi la ma liiru jaan di jëkk mais jamono jamay bëri si biir arène bi. Mhm. ñemewuma dëkk. fu ne dem naa fi ci àdduna ànd ak yéex a jëm waxantu. Mhm. mere géej côté digg ndax wala mere mool côté jàpp jën loolu amee ma yàlla ma la tool waaye kon dégg leen ma dëkkal làmb démb tey làmb la laa leen doxal la wax làmb ëmb ko mais man mais ah, ma dàq Fass ñaane gi gànn boo ko déggee ba ma ko waxee sànq hmm. mooy Moustapha Gueye non gi sama xarit la des fois euh, ah, sama gaay moom laa tuddee sama bopp bisu Mm-hmm. waaw mais yow eh demoon nga fi ba ne tuddatoo noonu. waaw yaa fi waxoon tarbaxaa nga tudd. grinière xaw ma xaw ma nag mais ki jàpp jën bi rey ko. ki jàpp jën bi rey ko de ki ko toog rey ko waaye ka dëppoon dee ko bisu tey confrontation yow léegi yow waxoo woon ci benn émission waaw dafa nànk mm-hmm. confrontation la mm-hmm. xam nga fii moom lay fii la lépp di lee de déedéet yow kay yow dama woon ci émission fii ak Lamine Samba wal fajiri ne dama ne waaw wala déet yaa ko waxoon waaw wala déet mais xam la lay xam nga loolu waaw Lamine la woon loolu yàgg na wal fajiri la woon mais yaa ko waxoon waaw boobu maa ngi moom dafa amoon sama xarit la ma dafa amoon lan non Thiès bu ndaw bu ñu réglé ma ak moom. ban Thiès. mais Thiès bu ndaw est-ce que jar na ngay changer. partagé Thiès bi. ma wax wala ma partagé leen Thiès bi. kat man téléspectateur yi ma fi teg de. non mais ñooñu partagé Thiès bi wala ma partagé. ñooñu ñooñu ma lay wër mais bis dama la bëgg a wax ne Tafa gi. non dégg nga fi ñu nekk waxuma fi ngay dem. Eh, bis foofu foofu fa yegg nga ni bis yow rek dama lay muslu. gars yi nee nañ ma bisu rek bu jàkkaarloo bisu rek lu ne ci àddina waaye Moustapha Guèye sama idole la. non ma ne d'accord na lan moo doon Thiès bi quoi Thiès bi lan la woon noo jël ay million jàmbur. dugal ko suufu njëginaay ba pare toog kër ga. waaw doo entraîné. waaw loolu samay mbir la la neex. yaa ngi dégg waaw waaw loolu samay mbir la na ci tunnel xam nga. Ah, non mais yi. Eh oh. aywa maintenant yéen picc ku ne bu amee nag nga doyoon ndawal bisu. waaw pili pili yi tamit. pili li ma lay mën a wax ak yow ba tey yaa ngi ñëw waaw dama ne. Mhm. Moustapha Gueye sama ah. bokk. fa nga bokk loolu fa bokk ba léegi. ma fa jógee ndax Abbas Ndoye Mali Mariam Ndoye mu dégg lii moo ko def mhm. Abbas Ndoye mhm. kon fii du ay caaxaan lamb démb laa leen andil ak lamb tey tegal leen ko. waaw mais démb Fass ci la bokk ak Tafa Gueye bi nga doon wooyee sa bopp. waaw ba tey mu laa tuddee de. waaw bi ñu lay laaj. non da nga xam ne kat bu tuddoon xam nga ne am bës am xam nga Trabaxa Espagne la woon. Trabaxa mooy liggéey. vamos trabajando. sinon si mais Tafa Gueye bi jiitu Trabaxa bi. kan Tafa Gueye bi jiitu Trabaxa bi. waaw mais ta bu dem Espagne ñëw moo tax Trabaxa ñëw. non mais nga changé Tafa Gueye bi tudd Trabaxa. waaw mais xam nga moom moo ngi yóbbu Espagne kan parce que la yóbbu Espagne. ko dégg mais ñaan ngay gànn la tur bi na euh, euh, li nga wax ni ba léegi leeru ci. kàr bu tës leer gis ni ma juddoo ba tey. Eh, ndax koo xamante ne la di. borom bi ma ne yow problème bi nga amoon face. waaw ba taxoon nga bàyyi lan la. jël bi dëggal ma la nee naa la jël avance jàmbur. loolu ci la bokk ak pilipili yi ñaar. bisu <laughs> nañu conversation lañu ne. Ah. dama ne. avance jàll jël ko daan jël kii giri li tax mu écarté woon la. Eh? parce que yéen yéen a doon kii. giri ma surxal seen bëri waaw giri. giri ba giri ngay wax. giri seen giri yéen Fass. giri Bordeaux men. waaw waaw ci ci ñu doon suruxal tineel yi ci nga bokk. Eh, non giri ah génn si jooju wax. dugg si tineel man ni ma gisee nii sax laa yor di entraîné ay ñëpp a àdduna. man te yow doo entraîné. mais man kuy entraîné ay nit ki war ngaa ànd parce que gym bi lay def ak moo ma yóbbu mbaaw Bëkkëri Ñang maa ngi koy ziar bu Ilimaan Ñang bu Fanta Ñang moo ma jëlee fii Yoof yóbbu ma foofu Bëkkëri Ñang maa nga mbaaw su ma génnee mbaaw maa nga sax mbaaw di ziar waa sax mbaaw yëpp euh, yaa Seyda mi xale yi nekk kër ga mais man lamb moo bëgg ndax su lamb amul bëri amul ma ma jël micro maam Gorgui Ndiaye léegi instant nga ne ah bu ah, ma nekk Fass waaw yow yaa ut foo Fass a nekk yow yow looy utee dérivé bu lamb amul nga laal micro bi ah mais man man man maanaam dama am ay sër yu takk xam nga lamb dafa am culture li ñu naan culture de lamb. man daal xaw ma lu tax bu ngeen amul doole rek wala amu leen combat daal di dérivé. non non culture lamb la culture lamb xam takk juróom-ñaari sër ak xaaw takk sengoor. soo bëriwul. soo bëriwul. kon kay boo amul combat wala boo tojul ngay dem def loolu. non mais dama ne rek chaque jour ma damay bëri fu mu ne naa la équipe nationale naa ne instant bi président dafa ma waroon woo recevoir ma ay médaille d'or laa yor ngi kër ga trois fois champion d'Afrique ci na du ko jël la li may wax ak du ay caaxaan Sénégal may seetaan bu la neexee ñu wax mhm. kii léegi la ma la ne Jordan ndax yaa ko daan Tambacounda ba Tamba ak ah, Tambacounda maa ko andi Sénégal békaay mbéy mi may dégg mhm. du ma caaxaan ne bëree mhm. jamono des fois nag mën naa bañ a entraîné xam nga ni ku ne am na lu loo xam ne entraînement est-ce que cat la est-ce que loolu yow yaa bañ a entraîner non yooyu mais pour commencement combat bi mais dama ji bis xam nañ ay rawaan laa yor boo déggee ñu ne rabu faas a ngi man la léegi yow lu tax ba deux semaines jege si ah, combat mais rab bi ci la may yeewi raw gën ok xam nga ku nekk ak la yàlla may man li ma yàlla may mooy doomu adama yi gis nga làmb sport la mais sport boo yoru escopar jarul nga def sport mbari nekk ci géej gi daw te yoruñ xaalis dañuy sonn rek làmb dafa am escopar ba pare nga doog mën def sport mm. c'est boo def sport pare ci ngay lekk lu baax mais ba defee sport yoroo escopar boo lekk kooku da ngay gën a jeex. yu bàyyi waaye ngay wax sport escopar mais sport mais boo bisu boo deful sport yoroo loolu. bàyyi kër mu sedd. loolu doo dee dee bisu bàyyi mu sedd bisu bàyyi mu sedd man xoolal la. non Kopa ak def àndul de xam nga àdduna ma seetaan. est-ce que di nga gis. na am na na pili pili laa lay euh. na yoo xamante ni bëgguma dépassé kenn ci émission bi. Mhm. ndax dama nekk nitu nit ñi. nekk ci société di liggéey. ban société ah kon nekkoo ci combat bi kese ci làmb ji kese. non mais trois ans laa nekk di liggéey ak ñoom Balla Gaye ñoom Fata ñoom Viviane ñu may seetaan. waaw ngi parce que waa salle ba ñu may gis Falloo ngi noonu di ma seetaan. xam nga trois salle de sport quoi. non princesse di déglu ñëpp Sénégal ñëpp xam nañ ko dëggal wala dëggal. ñaata nga fa ñëw. bëri na dëggal saa woon nii. Mhm. maanaam de yàlla dafa ma may loolu. parce que ba làmb ci xewee yéex dama xam nga euh, Baye Modou sama xarit la moo ma fayal loolu lépp mën a jàng. mais Tafa ñaata combat nga am. ñaata combat nga def. non parce que yow Tafa yow. yow ci làmb ji da yàgg ci làmb ji daal. légende la fi dara. bis yàgg bawul dara. xam nga ñaata combat xam nga teel a bëri. Mm-hmm. bokkul ak yàgg ci làmb bi bu ma ko ndoree lim fi laay des. non bu lim ñu nga daal ñaata ko. non Tafa dafa minimum minimum. ay war na egg ay 30. non ay 32 33 34. waaw yooyu parce que dafa ne dem naa nongo nongolo daroon way ci ñaareeloo la Bambey la Tafa woo naa boobu Pikine laa nekk boobu amul kenn ku ma ñemee dëkk a jooju ma wax ak yow. nii moom ku demoon na la. Khalifa Ngiral ba may bëri moom Aziz Ndiaye fekkee na Aziz mm-hmm. mais nii moom ku ne mën na laa dëkk. déedéet boo mu dëkkee yaa ngi non kuy jaase yow da nga mën daase dee maam googu ne picc bi yow doo combat deux kay ku nekk ci ah, léegi ñoom Mbaye ñu ngi France Lamine mi ngi France ñoom ñëpp ay MMA lañu def ñoom ñu ngi may préparé maam combat bii ñu koy préparé ñoom ñoo ko war a préparé waa France nekk France yow mi nekk fii dinañ préparé koo xam ne deux semaines avant combat la ak combat ñoom bañ nañ loolu léegi ne nañ combat bi ko presse si un mois quinze jours Lamine moo bañ loolu bañ na deux semaines bañ na trois semaines parce que am na combat boo ko bëgg bokk ci mbëri Ah, mais léegi la la gars yi dëkk mais ñi ñi ñëw ci combat parce que ñu ah ah. euh, euh, fi toog ñëpp wax dëgg yàlla xam nga émission bi nag toll na foo xamante wax dëgg yàlla ñëpp ci gis seen bopp donc ñëpp ci war a wax euh, moom waaw kenn mënut ci dara émission ñëpp la <laughs> donc bu ko promoteur bëggee aussi tamit émission ñëpp la du dëgg mais nag damay dem ci ponkal mi xam nga kii nag star la et puis YouTube bi maa ngi gis gars yaa ngi commentaire ñi Adama Diouf fans la parce que gis naa ñu naan xam nga mm. papi ani ani papi zoom gaa yaa ngi koy laajte aussi papi xam naa nag du ñàkk da nga war a zoom soit ci mm. costume aadama bi wala ci dàll aadama yi <laughs> mm, rafet na de waaw da nga sañse de moom directeur numérique moo fi jee ah? directeur numérique moo fi jaar de directeur Mamadou Touré c'est mon fils fi jaar de waaw directeur numérique daal moo fi jaar sañse nga de sañse naa waaye dama yàgg sañse nag man may star nit yi nag man may mburu askan bi xam nga dégg naa léegi ngay présenté mais waroon nga nag balaa ngay présenté nga laaj ma Tapha Gueye dafa wax lu am solo. Mm-hmm. ñun fu ne jël nañ fa médaille d'or. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw boo ko xoolee bëre si dóor sax dama ci yéex a dugg. ndax ci bëre simple bi laa ne bu ñu jëlal ma seen bopp. kon yow kon bëre dóor ñaata. bëre dóor boo ko xoolee. aw ma ci sax ay victoire yu bari parce que kay lakk dogal jàmm bi ak pexe. man 2008 mil gi laa jóge équipe nationale kenn dàqu équipe nationale. yow mii ak ni nga dama fa ah naa ko bëri naa 100 kilo bëri naa 75 kilo bëri naa 80 kilo. donc yow bëri dóor amoo ci victoire. non am na ci victoire am naa ci deux victoire. deux waaw. ñaata CA laa daan kii moo ko yoroon keroog. ma ne ci ñaata combat. Ah, bu ma ko xoolee dugg naa Orcalaf. 2000 2009 laa dugg Orcalaf. Mhm. mais 2000 dama lay wax. biis bu ma profité boo ma wooyee fii lu leer da ko war a ut pour nga xam mais bul pa ma na du teew ñu nataal waaw dëgg la moo tax nag moo da nga war a bàyyi ma wax ma ne question yi ma lay war a laaj yow laa koy ma ne boo may nag boo ma bëggee wax la aussi kenn daggu la dama moo tax ma bëgg nee nga ñaari ñaari defet nga war laa ci am moo tax ma bëgg laa wax nag ñaata combat laa bëre wax boo may ak dogal jàmm bi ak pexe combat yi ma am ak defet yi am mm-hmm. blessure moo ma ko yóbbee ñi ma seetaan ni moom ma ko xam. toog na un an ko yóbbee de. léegi yow bu ma waxee bu ma waxee ñaata defet la am war na am lu ma yóbbee waxee defet yi. wala bu ko ma lay laaj. waaw moo tax nag ma bëgg laa leeral waaw laaj la question boobu bu ma ko leeralagum. ah non dinaa la leer kon nag bëggoon leer déglu ma ñaata defet ma moo tax ma wax la ne pour ñaata defet la am il faut ma wax la ma mën a xam ñaata combat ndax dama bëri haute classe defet yi xamoo ñaata la non non non may ma tuuti boo ma laaj dinaa la wax waaw léegi ñaata defet la am <laughs> ñun nit ñi yéen ay journaliste ngeen mm. mais ñun façon nit ku ne laaj nañu d'accord <laughs> bàyyil biisu ak panka muy wax ay fayaram mais boo ma laaj dinaa tontu biisu mi xam naa ko bu baax ku ma naw laa nag dama ma koy seetaan barke dama ci guddi barke Sidina moom laay seetaan borse yàlla moo tax bilaahi parce que dama koy seetaan d'accord léegi revenons à notre mouton ñaata ñaata ñaata combat am man bëri naa heure classe 2009 combat Tyson ak Yékini maa njëkk a bëri ak Fogala moo ma daan ma bëri ak Ndoof Ndoof daan ma ma bëri ak euh, ak ak <laughs> yaa ngi ne wuri de. daanoo fi kan nga ak kan. ah waaw maa ngi wax ñu ma daan. mosoo daan man moom leen rek laa mën a xamal may ma tuuti may ma tuuti may ma tuuti man rek laa man leen rek laa mën a bëgg la. man sama combat ak yow. koo fi daan dara rek moo tax ma jël ko. ñaar ñu toogam parce que yow da nga def erreur. ñaar ñu toogam da nga def erreur. ñaar ñu toogam booy faas nga de. loolu lépp soo ñëw de bii sax nga sax maa ngi laa nga bëgg maa laaj. dama ne àjjuma ji dañu ko fàtte. ak lan moom mooy bay defet. ñoom décembre bi ma yóbbaale. yow yow yow wuli wuli yow wuli décembre bi daal yóbbaale mais àjjuma ji dañu ko fàtte. non tabaagi. waaw yow eh sa yoon nekk xaaral ma ñëw. àjjuma jëlee ñu lañ fàtte. mais yéen naan kër yéen a war a bëri. non kii dafa ñëw kër yi xam nga tax man defaree la. kii nii Sénégal mosuñu toog nga mu ne ko yow laa yaakaar. drapeau bu fekkee ni ñaar da ngay fi dendandoo pour di ko perturber yow yow kii yow kaay toog nii. yow ñëwal toog nii nga jàkkaarloo fii fii fii fii fii baax na. non non non kaay non non ñëw rek ñëw rek. ragal na ma rek tudd ay rabu Fatick yi. ñëwal ñëwal ragal na ma rek. bu ngi dem ci benn sëriñ di faj tudd rabu Fatick yi. bàyyi ma ministre bu sa borom. la nga rafet na nag. non li nga sañ sa rafet na mais ragal na ma day soob rek. kooku la amee combat combat bi dox. combat bi dana sottee bu nga commencé tudd rab bu Fatick. waaw yow toog rek yaa ngi si si yaa ngi jàppal ak ku la ko jàppul kii nii boo gisee ma jël ay combat am lu mu dafa def dafa def sida dafa arrière waaw dafa moom dafa def sida bu moom warta door police yaa ngi sa victoire yi ak sa défaite moom nga tolloon waaw ah, moom moom da ngeen a bàyyi ma wax ko bëri naa or kalaf aw ma ñaar def laa ci naa ma parfum la alors daf ñu mooy non daf la war a jox butel li mu wax dëgg la nag da nga war a jiw kenn xamul fi nga jóge <laughs> ndax di ngaa tardé. Eh, ku ne ku ne woo na la nga naan maa ngi fekk maa ngi maa ngi pompier ñaata pompier nga am. Eh, yow lii la eh, dañ laa war a jiw dañ ko ko war a sotti mu sabu ko ndax kenn xamul fan la jóge. lii du parfum. lii du parfum lii gel antiseptique la xamul sax sel yow ak coronavirus bi xew léegi yow xam nga noo xamee sel. lii gel la bi mënoo ko xam wuli. mais yow xam nga la fuuna séeréer te yow séeréer nga. mais yow ñoo ci say defet sa victoire. yow sama défaite nga yow. waaw non wax waaw léegi yow lu tax yow dama lay laaj lu tax yow nga jékki-jékki doo jéem a ut di victoire jàmbur sax. waxuñu sën wax nga ni ñaari victoire nga am. kese ñaari victoire la am. waa léegi défaite gi lañ soxla ñaata. ñaata défaite la am moo tax ma bëgg laa wax nag. waa léegi wax man bëri naa or kalaf. trois défaites laa ci am. ñett bëri naa kalaf. 2011 ba ak ñoom Malick Niang. benn victoire laa ci am sa yaa laa daan yaa ko indi woon Thiès. nga am ñaar muy cinq. ñëw ñëw ñëw ñëw ñëwaat kalaf. kalaf ba eggul ñaari ñaari combat laa ci am. am ñaar défaites. muy huit huit défaites. ah yaa am fen. Ndof daanu la. Ndof daan na ma. waaw xaal moo xala léegi da ngay ñu sonal xaal moo xala. xaal moo xala. Fogala daan na ma Fogala waaw Aliou Seye daan na ma. yaa ngi baax. Euh, kii daan na ma euh, Malick Niang daan na ma. doo Malick Niang d' accord door na ma daan waaw d' accord d' accord d' accord kii daan na ma nu mu tudd. noonu euh, laa na ma ñu bokkaat kalaf. kon yow Ndoof. xam nga ñaata quatre défaite nga waxagum. bari na nga def aada. ah waaw d'accord na mais yow nag ma laaj la benn affaire. sa ba léegi dafa dum bëri waaw may ma tuuti da ngay eh, déglu émission bi eh, xool may ma tuuti boo ma wooyee da may déglu ah. du déglu. defet lu mu bëri bëri bëri lu indi defet laaju leen ko. lu koy indi donc un an tëdd hôpital fii daan rek may gërëm Robert Medou Ndiaye. Medou Ndiaye un an jot avance may sant Gaston baax Gaston. bu génnee la bu ji wax ji bari bu ñëwaatee ci bu ji wax ji bari Sénégal ci am moo kenn xamul lu mu bugg. ku daanu ñàkk la am lay. ndax bu mu ñëwee fii. ñëpp a doon bëre bu demee baaxaat lamb ji bu ñu wax ci lamb ji dañ ko war a encouragé. di ñaan nit ñi bi nga xam ne ñëwaat nañu. ba nga dégg wuli may ma tuuti may nga da nga da nga wax bi. nga am benn combat am benn défaite. défaite bi ci classe bi mu xam ne moom la moo ko indi woon. kan mooy défaite bi sa combat la la waxuma la ne. sa combat ak Malick Niang <laughs> man rek man leen door fi mu daal gis nga bisu baay seen maa ngi man ci xare laa xam may ma tuuti man man surtout buur sin commande fen laa de bin buré ñi laan bañ faale buré ñu pa man daw ma ne combat bi nu mu demee woon sa combat ak Malick Niang combat ak ma dóor ma daanu daanu kër ngeen waaw ne la waaw daanu rek laa yem ca guddi ga ne la woo boo yow <laughs> man guddi man guddi xam nga la la bëgg wuli xam nga la la bëggal yow may ma tuuti may ma tuuti yow da nga def erreur. noonu la nga benn policier jàpp la. ndax la jàpp doon benn policier. a fexe kenn waru ko dóor. boo amee moom policier doo ko daal ci mbapat nga koy dóor. loolu. moo tax ma bëgg laa jàpp eh. nag du ma ndax da ngaa dóor te waroo dóor policier. waaw ñu ngi ñëw ci seen ñaar a tax lenn rek moo mën a tax dóoruma la fa nga demoon ba am sa kër googu nga dem waa ji may ma kër. kese ma mën a tax dóoruma la. mais bu ko def daal la wul. bas bas waaw bas bas rek moo nga lijjante. bas boo may ma kër mais boo ko deful naa la wul. Adama boo dégluwul Basiru ka du la jox. ok Basiru ka bisoo ngi nii léegi dama bëgg nga arrêté. <coughs> yaa ngi dégg question yi ma lay laaj parce que internet yi ñuy setaan. kam il faut ñu respecter leen. li ñuy bëgg soxla. ñu waxaat ko dama bëgg nga ñëwaatal sa combat ak Mari Niang. suma combat ak Mari Niang dañoo bëre ci bëre bëri door lañ doon def non. donc balaa image di. lan lañ doon def door lañ doon def bëri door la ah. loolu fekku ma ne. <laughs> dama la de xam nga yow da nga bëri laaj ji nga ku bëri li may door ma daanu. da ngay doog bu ñu door ma daanu. damaa door ma xam. dafa door ma daanu. daanu wooyeem ci sax. waa d'accord na dama xam. waaw loolu ngay wax waaw na rek d'accord na. loolu ngay wax ma yomalal la mais man mii de kenn dóoruma fii damay taxaw di tuumaal yàlla. waaw xaaral naan lii yàlla la. yow si yàlla saalit boobu moo yaa ko def xaaral moom ñu ngi ñëw ci saalitam. parce que i faut ñu ñëw ci saalitam. yow dama bëgg nga ñëwaat ci fee yi ci combat yi parce que ba nga daanoo tamit. ñu fekkee woon ak yëpp parce que VAR da koy ñëw. Mm. Karajo da koy teg. waaw da ko teg. ma ne bi nga xamee ba pare nan nga jàngatee combat boobu pourquoi nga xam tamit ci mbër. kan kan bu entraîné sa ak jàkkaarloog sa moromu. da nga koy doog gis bi si nga bot ma ne xam musul am eh, may ma tuuti man xamuma ko xam day wequ da ma gis may wequ yow tuur nga est-ce que eh, xam daal waaw yow da nga doog gis ko ñu doon mu kaw eh, attention de ko doog gis est-ce que da nga xam inconscient door mu kaw moo xam fu muy ne kon kay kaw yow da ngaa jug taxaw ba nga xamee ne daal jug ba nga jugee da nga jàkkaarloo arbitre bi laajte arbitre bi kañ la sifflé yow kii kii ñetti doom daan la am ah, waaw fagg la daa daa daanu. Ah, sa diggante gi ah. am na ah, la toll. sa bopp mi tee ngaa libéré Lirou Diane. Lirou Diane nee na organisation. non mais Balla Gaye xam nañ ko. ay jox ko ay ko mu ñëw. xam nga ko ci d'accord nañu. Lirou xam nga moom boo leen ko jotul rek ngeen boobaa wooyee fii moom ngeen ah, ñëw fii di di ko woo dem leen fa la ngeen woo ko fa ngeen bàyyi seen émission ñu doxal suñu émission. waaw doxalal sa émission daa am problème. moom doomu ne am jot. wax dëgg ñu xeeb fii fu ñu nekk fii bu ngeen ñu xeebee itam aussi. duñ fi naan neex na quoi mais ñu jot ñu. combat sama combat ak moom moo tax. moo tax mu ruux. waaw moo tax mu daw. <laughs> non moom daw bi dafa yàgg il faut mu ñëw leeral daw yu bari yi muy daw. non non dem na. Euh, yàgg yow ñëwal sa ñaata combat ak ñaata défaite. man moom boo bëggee dëgg-dëgg. Ah. Euh, li ma am ci combat mm, mën ma ko lim. waaw lu tax léegi laajuma ñaar affecté waaw. ña ñaari victoire dox bisu bisu man dama la dama bisu bisu man sa fan si laa mais tey bàyyi naa la quoi. d'accord ñaata victoire dox ma demee ma tuuti. ñaari victoire xam nga man maa ngi wax nangu leen ko wax. fii laa leen wax fii ne moom mii ma amal combat mos ngeen gis Sénégal gëm bu ko yëkk drapeau Sénégal ñu dugal ko avion mu dem. bisu xam nga fii nii may ma tuuti fii nii. waay fii nii dara fii dañuy maa ngi gërëm karambooj mu may mais xam nga ne li ma def kii deful mu wàcc bi karambooj wóor na Serigne Touba Mbacké di gërëm wóor na ma bàyyi si deful mu wàcc bi xam nga loolu ah, li ma def kii defu ko bu waxante yàlla daal kan defu ko kan defu ko saa waay bu ñuy bu ñuy jox li eh, kii yekk ni li yoo doon cinquante neuf kan moo ko assisté kan moo seen jël mu assisté ko yow la Hadjibou Soumaré moo ko jox drapeau bi champion nga de meilleur sportif 2008 nag waaw d'accord léegi yow xanaa kay bëre door laa dugg jot avance mercredi jeudi vendredi ma ga ma def accident te du hôpital bi un an sama tabit daa am na bu ma wootee su may mbokk yëpp dañuy taxaw ne dootuma bëre maa forcé ba ñëwaat pour bëgg amaat li ma am nii waaw ñëwaat bay daan gars yi waaw léegi ñaata bi ngay ñëwee bay daan ñaata nit nga daan du ñaar non man ba ñëwee ba léegi benn combat bëre doon rek laa am waaw mooy les gars la bi wa gënal moom sax waruñu woon bëre xoolal ma tamit non Zéa sax kii ñoom Alaaji Mbay te waruñu woon bëre dafa amoon combat bi yàqu ñu ñu jox ma ko léegi yow ñoo nga ne ñaata ko ñaata victoire nga loolu la ñu laaj sax. c'est grave. yow léegi da nga xanaa xanaa yow dafa neexul. non man maa ngi woon ci <laughs> kii moo lay dicté. lii lii jox nee na yow naa tey nee na montre bi daa am ndox. montre bi daa am ndox eh Kamala Sumal. non Mouhamadou Moustapha lii gàcce la rus sax may naa ko montre bi bu cher. <laughs> kan nga may Moussa. kii bu cher la. non lii dafa yàqu lu dul yàqu dafa am. gucci laa tamay gucci. non dafa naan nga ne am na aadama ju. ma ne ma ne dafa yàqu rek gucci lu ko jëlee 200 euros gucci. def nga lu baax mais lu dul yàqu amul. dafa am ndox non ndox. ndox fa sangoon montar <laughs> nga bis ki am benn benn personnalité personnalité dàq ko. non bu ko dàq. nit fu muy liggéey ba nga amee tolof tolof. yow mii ba nga nekkee ci la yu am tolof la bu ñu la dàqoon da nga taxaw bi ma ne <laughs> laaj ko. Euh. nit foo ne am tolof sax dañ la war a dàq. Mm. kon de kenn dina am benn poste. non may naa ko léegi nag continué léegi dama bëgg ñëw ñu ñëw ci ci wax nga pare nga pare nga. Mm-hmm. parce que man bëgguma kuy soxla soxla sama émission. non bëgguma pare mm-hmm. da nga naan poste nañu. dafa mel ni vaar na de. dafa paru ñu. may ñu vaar. te ñu rey ko de. wuyut fii. te ñu rey ko de ma ma ma ba nag Malick. très bien très bien Malick ah Dawo. la wax léegi liy daw daw liy daw liy daw ñetti daw fukki taw juróom benn juróom benn yow liy daw la daw la liy daw la liy daw la liy daw la liy daw liy daw la liy déplacement la déplacement liy déplacement lii déplacement la déplacement la. gis nga saa maam saa maam saa maam xaar may ma tudd saa maam. Karajo indiwaat combat bi indiwaat combat bi indiwaat combat bi. lii Sénégal si seet ko ba fàtte ma ne. gis day Karajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ba tey jugul ba tey jugoo. daanaka lay laaj da koy dugg 20 jugoo. waaw da ngay 30 nga ne. yow yaa taxawal lii daw la. waaw mais laaj ko lii lii déplacement la ñaari daw. ñett lii daw. ñeent daw juróom. déplacement ah, juróom benn juróom ñaar juróom ñett. dégg nga dégg nga moom mooy rek. fukki non dëgg la la. <laughs> non yow da ngay doog a gis mbër ñu door ko mu daan. reculer la reculer Tafa Gueye. moom moom mii moom mii lay doon ah, maa ngi door a gis mbër ñu door ko mu xam nga déplacement ak daw. bis mën naa laaj benn affaire. mais yow amoo loo may laaj amoo loo may laaj. ah kon bu ko ma ne maa ngi door a gis mbër ñu door ko mu xam laa wax. da koy door a gis xam. sa diggante ak yàlla waaw sa diggante ak yàlla. waaw sa diggante ak yàlla. sama diggante ak yàlla mbër ngi door a xam ci làmb ji. lo bis nag bàyyi naa la tey. jaru ko jaru nga may jàpp. jàpp peut-être moom lay moom am na droit mi ngi doog a gis. waaw koy door a gis. ah waaw d'accord mën mu door mu xam. am na ci droit. ah yow tamit boo leen invité laa laa def focus ci loolu mais man xam nga sama ah, nag yow wuli yow yaa doon ñëw sa ñaata ko defee nekk si ñaata daw de yow yaa ñu doon ñëw sa fukki daw fukkeel bee la non man dëgg ma wax mi ma door mi mu daan dooruñ ka mu daan moom door ko ba mu tëdd kan moom maa xamut yow da ngaa xam yeewu naan arbitre bi dama lay laaj kañ la sifflé <laughs> kañ la arbitre sifflé ay bisu jëmbi nga yàlla laajte woo kañ la arbitre sifflé bisu <laughs> woo non bis maa ngi la doon supporté bàyyi naa la tey quoi wàññi naa soo boyee. ma ne yow dama bis moom man de ko su fekkee da supporté bi bàyyi tey. dama ne ah boo déggee ne yaa ngi doog a gis lii Sénégal fii. ma ne déggoo li ma la wax. yow yow <laughs> nga jug nga laaj yow woon ndax. bii moom ah dëgg la léegi fi ma laaj ci ànd bi doo ko génn. ma ne laajoo arbitre bi ah, ko comme mën ngaa génn lii comme yaa rajo doo continuer loolu may ma arbitre bi rajo naa lay tegal de rajo bu ma gàcceel yow yaa mën a wax génn fa laaj arbitre rajo seetal ma loolu ah ni nga jaaxaane nii tam mais ni nga jaaxaane op mais caali tu mais caali ci mais wuli waa nag wuli yow léegi euh, xaaral tarbaxaa ñëw tarbaxaa yow mi nga taxaw ñu tuumal yàlla tarbaxaa nan nga jàngatee ko waaw doo génne sama victoire boobu teg ko dinaa teg sama victoire amal nga waay itam tegal lii fii ñëw ñu fi na teg na teg na teg waaye mais tegal tegal soo fi tuwaat. bii da ko weddi moo tax ma teg ko. ah weddiwuma ko de champion la. weddiwuma loolu de non champion d'Afrique. champion d'Afrique. voilà champion d'Afrique ne. mooy am bis. kii bisam la woon waaw moo bu demee nii. waaw samedi ba kay dogguma la sax. waaw samedi ba laa boore kii moo indi woon bor ba. waaw 130 kilos ko duma ci biir stade bi ba ñëpp jom ma daan ko. non dëgg la làmb. may peese 86 kilos. Adama làmb nga. boo déggee séeréer nag ak gàncax gi taxul looloo soo gisee dara dara ko waral. yow ku ne wér na champion. waaye bu ne am na bis la yow nan nga jàngatee lamb ma wax nii Tafa Gueye numéro 2. yow sa bos. Tafa mi dara ah, may ko bàyyi eh, may la sa bés loolu dara. man yow ngay sa benn bañ bi lu ko dindi. mais ngiraan ngiraani. ba damm double fracture ma daan ko doog Aziz Ndiaye bi muy dégg. masuwaar ba damm teggi ko ma jàpp ko daan ko jour boobu maa ngi faraan principal def naa fa 45 jours rue rek laa naan Ah, gis nga xalifa ngiraan xam gaa xam nañu. mais yow yow jàmbaar bu ko xoolee xam na xalifa ngiraan. yow dafa dàq yow jàmbaar fi amu fi. jàmbaar ngiraan ngiraan yi. kii di jàmbaar kuñ demal ngiraan ngiraan yi ragal dina nekk mbër. ngiraan ngiraan yi. waaw ñoom famille lañ moo jabu yoof. waaw dama ko gis na ko mootul Cheikh ngiraan mu ne ma dama ko dóor mu daanu waaye ba ma dajeeg moom bañ dafa damm loxo ba damm tànk ba damm ñooñu kon seen seen jël seen combat yaa ngi si danger. ah. yaa la ma tax nga jël seen combat yëpp. waaw mais xam nga Aziz Ndiaye lu mu bëgg loolu dama si taxaw mhm. mais xale la bëggoon sikk sacrifié non mais yàpp déggoo liir liiru jaan nee maa lekk yàpp ma ne ko yàpp dama koy màcc ba mu seey mu naan mënu ma ko yëy dama ko yëy ci dëgëj ga yàpp dëgëju ko yëy dégg nga ma muy dëgg moo tax euh, Aliou Ndiaye di ko nuyu en passage di xam ne làmb ñun ñoo ko moom mbër daanu na fi mbër bu wax du bu daanu rek bu dem ci làmb jëf bi def may tooñ rek non mbër bu wax du ma daanu jaru nga dem ci làmb dinañ wane victoire am aussi sama mbër mais nag waaw daw ba daanu aussi amul benn njëriñ Tapha. mais moom day mel ni ku amul bis yow yow yow yow. mais xam nga yéen ñaari war a bëri. xaw ma yàgg moom dina daw wala xaw ma dama jël ko. dafa def erreur. yow kii la a faj. bu ngeen fi waxee dafa bi poto mu ñëw de bi poto day ñëw de yow ndànk rek. Mm-hmm. ndànk rek yow. maa ngi ñëw fii ku ne am nga fi bis. waaw ni la Malick def <laughs> noonu la ko Sa Thiès de. du wax lan. non non yow yow yow yow da nga xam nga mais waaw waaw yow balaa may ñëw ci say combat ñëwal ci sa sañ ak façon couleur yi noo ko tànnee. waaw euh, kii. Euh, xam nga dama xew problème bi àjjuma duñ fàtte àjjuma duñ ko fàtte. cëlu mag nga sol. waaw waaw i Ndoye <laughs> Maalim ma Ndoye. magat nga dangay sol. waaw Maalim Maalim Marème Ndoye Abbas Ndoye. yow xaaral ma moo solal bu buus bi kan ngan welma karaajo bu bu waay waay karaajo waay karaajo waay ay waay ay waay sama karaajo mi ma ngay laaj lamb ma ngay laaj ma ngay laaj arbitre ah arbitre man samay mbokk ñoo ma jàpp de ñu ma àndaloo dañu am jom ñu ma àndaloo ak man waay karaajo mais laaj ma arbitre ba ko gis sañse bi mais karaajo waay karaajo mooy jindi caméraman yi non karaajo rek dëgg la bu ko neexal ay dima koy neexal ma ne dama gis ku may neexal. vraiment bu bu boutique moom a sañseel. waaw yaa may def ñaari ak Sacré-Cœur yoonu kenn mbay gay fay moom mooy solo mbay gay fay ñëpp costume hmm. vraiment xam nga. bu ñu solal mbay jaay bi mu lay solal. Adama sa costume bi non Adama sa parce que sëñ naa Adama costume bi 8000 lay ngay wax yàlla ak yàlla yi. kusuma bi naan la jël bii nag yàlla sol rafet na mais xool ko bii bees la. dalal yi mel ni xool yan dali dali yi dañ ko am. xoolal bokkunu daal eh. mais may ma xoolal sa dali xoolal sa dali. papi yow zubal rek xoolal defal nii. original xoolal eh, doo xool yow doo xool. sa dali defal la moo la mu. ah d'accord la mais gis nga li nga xoolal police bi nga doon. len rek moo mën a tax dooru ma la de mooy nga dem fale fexe ma am kër googu nga am. mais wuli yow ka wuli léegi wuli yow ñaata victoire ak ñaata défaite. man nag bu caaxaan jeexee. wax hmm. dëggu si yàlla xoolal mu jéem a defar. bay ma il faut il faut Dabaye sañsel la. bari Dabaye ngir yàlla Armand. Dabaye sama xarit la Dabaye. il faut mu sañsel yow Armand Ndiaye. waaw. di di nuyu waa Kër Waly Seck ñëpp. waa Seck bàyyi Waly Seck bàyyi ko. yow yow ñëw foofu bari wax tafaay. Dabaye il faut nga sañsel ko kii boutique. émission bi. Euh, non waxal sa defet yi moo gën d'accord Dabaye ba mu xam am. léegi après plus dina la boole moom. waaw dina sañsel la parce que couleur bi nga def mante bi ci moo ma attiré mante YouTube gaa yi ci suuf ñoom Omar Sylla ñoom Babs yaa ngi dégg ñoom Moustapha Dieng borom baax ah Aminata Cissé Fatimata Kebe voilà Baron ñoom Ousmane Niang voilà Mbodj Gucci Boy Tandia Mamadou Gaye gaa yi na wuy ma ndekete wuy ma gaa yi lii lañ bëgg de. ay ñoom Codé Dieng DK Fallou Ngom. dafa rafet daa solo nag rafet na rafet na rafet na. xam nga mais bay solo nag boo ko solo léegi. ajuma ji ngeen fàtte. faaw dabay salal sañ sel la. waaw dabay salal ajuma man laa wax. bari naa ay défaite trop man man dama fenn. non yaa ma ëpp la défaite kay. fuuf. <laughs> mais maa kay combat. man li ma bëri ci combat dafa bëri. maa fi ëpp défaite mais maa ëppi ay victoire. de ce que gars yi duñ la lii pour nga neexal ko làmb ja rek yow uniquement. non kon yow xamuma. non moom nag borom jom la de. yow mooy neexal mais man dama ñëw pour bëre. ah yow du mbër yow du mbër waay. <laughs> yaa ngi koy laal nag laal nga ko kay laal nga ko yow yaa bul ba nga ñëw nga tontu ko rek yow waxal wulli man ay mbër laa bëreel Sa Thiès nga wax léegi léegi ñëwaatal ñu sa combat ak Sa dafa fekkoon boobu ma daan caat booy bambara maa ngi ko jëkk daan Sénégal en 2009 Gaston bi ma koy jox semaine la ma ko jox ku ma ko jox nga ne kooku du ko jël Gaston woo ma en tant que sama père ma ma jël ko Maxime Berga mu may dégg barke sëñ Bamba damaa waxoon ne doo ko jël Gaston bu la bëgg na dimbali doo jox saa ceeb dëgg la saa daan ma doo ma dóor yu miti daan ma dama damay nangu. dóor la dóor yu miti bi mu may aada da ngay nangu. kawoo xam naa kawoo man bi ma kawooyee. non dawoo saa ceeb bi daw ma man bo bokk ba ak yow man daw ma mais bi ma kawooyee. xamatuma fa fan waa ne wax dëgg si yàlla. da ngaa laaj arbitre bi kañ la non xamatuma maa sama tuut mu yëngu Touba mu rëy ma parce def ma door fii xam nga foofu dañ ci put tere waaw dañ koy tere am naa fukki fan mënu ma lekk. kon yow oh. Sa Thiès amul droit dóor la foofu. tuut mu rëy ma da ko war a xoolaat da ko war a xoolaat da nga koy leeral. waaw. mais après est-ce da koo jarati woon. ndax ma bëgg a dee damay dee. kontaan ah, na moom de defet rek lay woon. maa ngi ñëw ci defetu ñëpp. <laughs> yëpp ma ci sa def sa bopp daa gën a ñaaw rek ay nga ne déposé nga ne déposé wu boobu rek. nga ne a parce que bi ma dooree. dafa ma door may song si mu door ma fii quoi. man loolu sama kawote. même bu may kawoo quatre appels def. kon xam nga ne man bokkuma ak Adama. jaaxaanu na xamoo waaw vraiment xam nga te barke yàlla samay door gën a mit ay dooram. <laughs> non bilaay. kii ak mën a defar këram kii. benn yoon ko déglu <laughs> mu wax benn ku rek lan doog daal benn doon benn tuur man fukki ku lañ ma doon fukk. fukki ku barki ëpp na ko sax may def nii ba son doog daanu. te yow benn rek lan la. ko yow doon demee xam nga ni defee nga fay jëlee xamoon ko. non xamoon naa ko Gaston moo ma ndax parce que man combat bi bi ma ko jëlee semaine la woon ma bëgg na tappale parce que man xam naa ne boobu pour ma encaisser xaalisam pour mu renvoyer ko parce lam jàng daf tëj ma ma xëy na ko damaa feebar xam naa du baax man ma ne ko damaa feebar gaston woo médecin CNG bi ne ko bu ñëw rek ne ko mën ngaa bëre mais ci daanu rek daal ne dama feebaroon non man laa wax man feebar moom quoi ban feebar nga feebar dama doon tappale laa wax ah da nga ba doon bëree quoi doon tappale di damaa feebar bëggoon naa ne ko damaa feebar mhm. nga ah, boo feebaree rek demal seeti médecin CNG Uh-huh. léegi laata may dem. am nga bi na ko day tapal ragal la. non du ma ragal non tap li bëgguma eh, daanu parce que su ma nee eh, bu ko wax fii sax yow. non bëgguma yow xam ne. man nii nga xam ne man bi ma barke Sidina Mohamed bu ma toogee yor suma awaasu gasto ba génne hôpital dama dem. force bi am di tegriso bu ma demee waa CNC ñu ngi may dégg dañ maa dàq ne ko moo doon góobare. da nga daa dal la woon. barke si ah yow. ah yii tam lan moo def sa blessure bët bi. yow kii ba tamit nu mel ni daan di ki mu taxoon nekk six mois la tëdd hôpital fii loolu nekkul lu ñuy lu ñuy nettable sax. pape toog ne du ma mën a bëre dem wan bu ma demee bu ma demee. waa CNC xam nga lañ ma ne. Eh, yow ki mënut a bëre. nga génn ne borom tam moo mel noonu. booba vraiment ah, ñëpp war nañu ah, ah, waral ñu bët bi waral sax non jaru woon sax loolu amul benn njëriñ dama leen bëgg a xamal ne tappale bi kii def man damaa dem bëre damaa ma bay ba ñu ne ma ñu ñu ne ma. ki ci laa ko boole <laughs> déggal mu li yàq ma dem forcé. <laughs> naa bot tafa. ah kan yaay man damay yàq bot. da nga yàq bot <laughs> kan nga yàq. mais bot ma soxla bi da yàq. kii moo neex Lamine. mais Lamine ko débat léegi koy tappale feebar. nañu ko débat loolu daa ah? noo feebarul biisu naan dama feebar. waaw d'accord waaw feebar tëdd hôpital. un moom bàyyi ko mu ñëw. dem nag forcé naan damay bëri ñoom mën a góobare. mais yow tamit non mën a góobare ñoom Ardo yëpp yéen mën a ko bëri. yaaw mi nga bëri. yaaw mi ah ki na ak man ñaari yoon. ki ma bëri ah, nag. man ñaari yoon moom mi ku daan yëpp maa ko daan nag moom daf ma sanaloon su suñu premier combat. vendredi laa jot avance vendredi. dafa sonal Gaston xam nga Gaston moom bëri bu jóg rek bu ne jox leen wuli moom. kii sonal ko jox ma wuli vendredi ci ngoon la ma Gaston jox avance samedi dimanche. dama ko dóom mu daanu ca kalaaf ba taay kalaaf boobu. fii la woon. nga dóor ko mu daanu. waa beneen bi am na dóor mu daanu kon. waaw kii am na dóor mu daanu. gar yi mooy am dóor mu ñaar yëpp da nga ko dóor mu daanu. ok mm. nañ ñëw xaar ma ñëw. ñëwal ci sa combat ak Tafa Mbër. non ma daw ma daanu. waaw bu métti aussi vraiment. yow xanaa ko combat yi bu métti wulli. non boobu boobu man sama ñaari. Eh, combat wax kat ci kaw nit ñi dégg. sama ñaari combat moo gën a. Tafa Mbër lan la la def. daf ma door ma daanu. combat boo métti aussi vraiment. baax na. léegi kuñ dóor ñaata mu daal war naa tudd benn dóor bi. yow ñaa nga am man am ma am. ah beneen bi nañ génne. <laughs> yow ñaa nga am am ñaar. <laughs> yow gar bi nga sax parce que yow doo dawkat. mais ay doo dawkat mais ay feebar di tappale. gar mi di tappale foofu sax dinaa fa ñëw parce que. yow du xaw ma xaw ma liiru jaan fan la toll. Ah. mais euh, euh, euh, point boobu point boobu am. importance aussi liiru day daw ndax xam nga su ma jàkkaarloo ma la wax dëgg. ah hmm? moom la doon wax maanaam sama kër mais yow dañu waxante dëgg yow est-ce doo dugal sa bagage yi. non non yow attention ay mbir la bàyyi fi ay mbir la yow ay mbir la yow waaw wul xam nga yow li moo tax ñëpp teg la comédien fii du fii confrontation non merci lii moo tax ñëpp teg que ah, il n'est pas sérieux dafa gën ñëw def trois PSM ah loolu Abass Ndoye Malick Mbarim Ndoye Abass a baax waaw jën dañuy nga def say xaftaan mais li nga teg fii. lamb lamb li nga baaxoo tey bu ñu leen ba di woo ay mbër. bisu yaa war toog fii a fii sax waru fee toog a taxaw. fii war na toog fii yow bu di RFM a ak moom nga war a def bu di RFM ak yëm. ah, ah wuli ak lan waaw. yaa war a toog fii euh, ñoom la maasel quoi. bisu parce que vraiment se dépasse Tafa Gueye se dépasse kii se dépasse. mais bisu maa ngi vraiment man su ma xamoon ne kii muy bëri man. Mhm. dafa doon daan may daan may daan di daan di daan di daan di daan bi ñu nee ma yow Diallo di waat di quatrième combat mu jóge si sa kees man a gason ko man a ko man a ko gason mi ne man naa man a ko comme de wuli sa doom la te man dem sa doom la boole ñu mag moom. mu mhm. ba barke Seydina Muhammad entraînement di entraînement di entraînement di entraînement xool ba bésu àjjuma comme tey ma feebar. cek ne ma yaaw ma yaaw dalal avance bi. mu ngi nii mu ngi ko cek bi deuxième combat bi bi deuxième combat bi ma feebar ma jóg bégaay ne mel mi ne ma ma ne ko nag loolu tax bu daan muy premier combat bu teg na mi dala ma ne ko teg damay am ndam tey xam nga dama gëm gëm rëbb barke saatil faati ma daanu ma gëm ne daanu ma ñu ne ba 2012 may ne woo gas sama meng ne ko gas mi ne man naa ma gor xam nga gas sama gore laa koy woowee ma ne ko gore mi ne man naa ma dama bëgg teg sama combat euh, wuli ñu doon sawaay na ma wuli bañ na wuli bañ ma koy baab di ko mocc di ko baab di ko mocc di ko baab di ko mais parce que wuli la trois jours ñu moom ne trois jours gasal dama avance ñu ne yaaw jarak wuli arbitre ne bër ma toj juróom-ñaar yi fu ma tojee juróom-ñaar yi rek mu li sax may ma sax mu doyee tojoo da ngaa daw leen mooy suñu deuxième combat maag moom maag moom ba mu daw tur éprikil ba ma ko doyee ba éprikil pour ma dem pour xacaar éprikil pour ko dóor mu daal si la tey sama téere la ba tàkk bisu maak maak moom maak moom maak moom maak moom ma daw si ginnaaw sax bisu bisu bisu dama si ginnaaw sax si ginnaaw sax ak sama commencé bi dee tudd Ablaye Wade ndax boobu ñu si élection n'est pas un mois que deux mois xam la kara ñu attama ñàkkal ñu bëree maag ma mu doon dégagé sama nen fu laa tarxisee mu daan sama mbokk yi ngeen baal ma yaa mu ngi tifli rek xam nga tey wuli bi ngay gis nii korona <laughs> maag moom bokkuñu ndax wuli bi maag moom bokkuñu wuli bi mu ba xam ne làmbam cool la bu mu dee ba ne làmbam cool indi affaire si YouTube bi di neexal gars di ko favoriser te foofu gars di ko favoriser ma ne ma faa dugg ba génn bis maa toog ne dama ma damaa dugg kii maag moom at na neex bu ñu bokk moom bokk nañu dëkk Diourbel nag moom bokk nañu dëkk dëkk Bawol mais maag moom bokkuñu bi mu yor état bi mu yor état bi mu yor su su ko yoroon man yaawu jàll kon heure mën naa wax ni roi des arènes baa ngi sama loxo bii ndax man dama gëm sama bopp fii mbiru quatrième combat kenn musu fee dégg roi quatrième combat di quatrième combat damaa bëree ah, ma Sigili Wade décoré ma Abdoulaye recevoir ma Youssou Ndour woy ak yeneen yeneen soo ba Macky Sall sama ordonnance ak Abdoulaye Wade su loxoom la jaare wala premier janvier 2007 comme aw tey kii bokk ma ak moom buli bi état bi mu ñor su ma ko yore woon buli maa ko yow bokkuñu man mënoo maa ñàkk man dama wuyoo yow jaay mbiru comédien mbiru Abdoulaye Wade Sénégal yëpp dégg ma yow nag nga dem ba ma nag la wuli maa ngi Modou bu gay ne non yow kay def lii gars yi ne interview ma ne ko bokk maag ma ku ma fayal 40 mille doo interview yow seen site man ak kii bokkuñu man champion laa parce que si ginnaaw damaa gëm sama bopp man du ma topp si ay ginnaaw mbër naa leen tooy na wala woowu na boo amee combat dinaa la dar bu jeex nga am nga ba da ngi ne ama seeri ngi ne ba si ñoom tey seen ku am combat dama la yéen nga am ndar bu jeexee man la jaaru gos ma jaaru toog bu jeex bu nee ma nag ba dee circulation nag ma doon ne la nii xam rek fas mais nag doo am ndam ba pare ma topp si ginnaaw def na su noonu comme fii du gars yi dundee ak jox si YouTube bi moo nii kaa interview ma euh, man du ma ngaaka man sama parcours dama def pharmacie formation garde rapproché laa def. ay kon garde rapproché formation la def. garde rapproché ministre de l'emploi ministre de l'emploi formation formation lan nga def. moo garde lan garde lan. oh quoi tey moom ma waxu damaa garde rapproché. xam nga bu ñëwee un lutteur un métier. ñu ñu ñu ñu. waaye yow mi kan moo bu lay garder. sérigraphie ah réew mi amul woon bu ñu defee sérigraphie état bi yëkkati diplôme jox la. yow dama la jël nga koy gàllankoor waaw déggu seet la waaw lii. dama ni dama ni dama ni dama ni dama da ngay jaabante ministère des sports comme Pape Sidy yow. waaw yow Birame Samba da nga fay jaabante rek ni ngeen ko sonal yéen. ma yor sama carte dama yor xale. da ngeen ko sonal de sama passeport laa yor sama oto yi. li permis la sama passeport la sama permis la yor. lii sama formation sérigraphie la. Ah. diplôme état baa ko créé jox ma ko. ma defaat encore formation noonu. Eh, bu dul sañ sama toogal. bàyyi affaire nga non dama sol non te yow yaa ngi. toogal kon naa am ngay toogal. toogal il faut arrêter ça. ak ba mooy wax ni ngay fo takka masque moom foog nga bi état bi ñu ne mbër bu nekk dafa am métier pour si ginnaaw nit. non sa masque bi nga wax sama métier ngi wax man daal di ma si jàppale wala formation. boo séddale boo ko séddale de. ma taar ah, baa ngi nii ma taar baa ngi nii nee na ma yaaw dinaa la financé. non toogal la quoi gars yi ministre employé tamit lu ñu ñu wax de. kii ngaaka la. non yow xam nga métier dafa neex métier dafa neex métier. métier dafa neex. mais wóor def ndax du suñu noonu. waaw léegi léegi yow merci. lii ministre de l'emploi daan jox nangu nañu léegi dañuy dem. daf may finance incha allah yow Matar Ba daf may finance sama permis ngi nii. waaw d'accord man daf maa mbër yoo xam ne ñuy woo ay ay waay adduna. maa gëm sama bopp de. amoo benn couleur rek parce que naa ma gëm sama bopp. léegi ay Matar Ba ngay wax non non non non. dañu koy mën Abdoulaye Wade la Sénégal yi xam ne xam ne tey moom la tàggale moom mais noonu ñoom dañu dañoo benn formation mbër bu ak métti ak Bamba Mbuub ak ministre de l'emploi ñu bool amasi ma def formation ba am sama diplôme kon boog lu ñuy financé war nañu mën a financé. waaw d'accord ñëw foofu waaw man man foofu maa ngi bëri yow ñëw foofu waa léegi dina ñëw foofu léegi dina ñëw foofu. duma ngaa ko de. waaw nga dégg nga ma nuyuwaale. d'accord man gars yi dina ñëw foofu. man it fa laa defee formation quoi. waaw waaw léegi dina ñëw foofu. waaw bu liggéey bu leen ma sa jéem a tax leen. waaw d'accord état bi wuyu ma su ma ko yoroon ko dafa am sama loxo la maa gëm sama. yow léegi maa ngi ñëw ci Tafa Gueye. waaw ñëwal d'accord waaw dugal sa bagage yi yow. fii su ko doy waar Seydina Mouhamed Sall yow la. waaw dugal sa bagage yi. waaw léegi tam yow yaa maa ngi loolu tamit. may ñu loolu Bekay Mbaye nga may laaj fii champion la man eh, der la. xam nañ ko waaw léegi may ñu loolu yow jaal yow jaal yow sax may ñu loolu yow tamit. yaawee xam ah. nga ma ay at. damaa bokk fii. waaw léegi may ñu loolu léegi may ñu ñu continué bàyyi. Ah, gara su neexee sama waay sama lépp nga maa bokk fii ku fi bokk ku fi bokkul bokkul. eh wulli. wuli nee na day sañ man gis ñëw waaye man mi tukki bay bëgg dee waaw d'accord damaa gëm sama bopp ah yow yow star nga. a saa ci Fatia. man maa ba gars yi dégg ma. pour sama seize. fekk dama doon fekk salaama ji ay millions. nekk naan nekk comédien nekkuma comédien wu de. comédien ñu ma bëgg ñu may seen comédien. waaw ñu arnaat ni nii ñu ne yaawu jaar mburu Ablaye jar na. kee mooy loolu nag la jaar góos. métier yaa ngi nekk sama ñàmbur financement lay xaar xaar suñu borom lu ñëw nag ma teg si loxo yàlla mais nag bokk ma mbir bisu samay passeport yaa ngi nii fees dal man faalu ma ay bitim réew faalu ma naka nag suñu noonu man dama gëm sama man yaaw tey ku mu xool 60 kilos 2004 ba léegi nga yor état bi takk sal bu ñu def naa ko si. ban état nga yor ne. xool état bi ma doom naanu ma comprimé naturellement laa yor am na juróom benn dóor mu daanu ah, ay kaaw. kii ban état la yor. ah mooy état bi état bi état ah, ma dóor fi mu ma dal ko. bisu mi toog fi ma dal ko. barke Seydina ma ma ñàkkal wuli nga soog une deuxième combat. fi dis pompes. kat 10 rak 10 muy gaaw. rang fukki pompe. <laughs> benn gaaw na de ñaar ñett. wàccoo de. barke sëñ Bamba. 7 yow. 4. ah yaa ngi arrière de. hey kii mooy ponkal. 3 4. cinq ah eh eh ah. ñu ñaar la. cinq nga yem ba cinq nga yem ba bisu. bisu man dara laa man parce que Seydina yoo xam nga loolu yow. deux heures daan woon daan yoon jëlee ay ngaaka mais boo trouvé gars yi daw timbal ak sa micro. mais yow yow sonn nga xaar yow dama gëm sa bopp naa ma doom naturel laa yor. musuma naan comprimé dem naa Italie benn tubaab nee ma yaaw ka ka ka ka ka pompe la ay comprimé même pas au moins nga yóbbu ko Sénégal ma ne ko man. auzu billaahi man na ko jàll man na ko baax man état bi kay moom doon naa si mbër mu ba taay wuri dama koo daan day yóbbu sama sëriñ. ah loolu teg foofu sa loxo mu ñëw ah, ko may ñu ko. waaw am na seen grippe room. waaw dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw ñu dem ci tafaar yi bàyyiwul li ñëw foofu. ñu dem comme ça parce que il faut mu ñëw ci tarbaxa. tarbaxa. Hmm. tarbaxa. le bus dama bëgg ñuy wax ci làmb. dëgg xam nga làmb dafa bokk bu fekkee bëgguñu ñu bu ñuy yuuxu nii rek dañuy réer. ndax làmb dafa am culture am ñii dañuy bëgg làmb comme ñii Arma Diouf dañuy dañuy bëgg làmb ku ñu seen xol du seen. mais yow léegi gars yi dugal nañ la ci comédien làmb ji de. yow. man comédien man laa ma mais comédien yi xam nga tarba xam nga. mais sa feem neex gi. waaw neex gi neex gi ngéwél gala. ngéwél gala xam nga comédien <laughs> yi instant bi jamono kenn bañu ko. ci mbër ndax abaa dafa ba ma nga ca télé ba. waaw. xam nga mais bëgg xamal ne. ñu kon yow nangu yaa non abaa abaa abaa nag xam nga du benn. non xam man dama la bëgg xamal dara. abaa loolu man mënu ma bëri def comédie damay bëri jàpp daan. dama ne la man damaa def ci réew mi loo xamante ni président su ma gisoon mm-hmm. tey mën naa bañ a toog fii ndax ku dem équipe nationale ànd ak Yaxya Jóob Yékini ñu tes fédération bi kii xam na li ma koy wax. dëgg la man du ma wax. kooku a ma na Balla Aruna Yékini tas fédération bi fitali tàkk kon demal naa Sénégal fu ne. ñun li ñu war a borom réew mi moo ñu war woo. doon la ñu mais nga def trois médailles d'or yoo xamante ni mi ngi sa kër nga teg te kenn woowu la. Hmm. kooku amul benn njëriñ ci làmb. làmb amuñu njëriñ. dañoo gaaw a fàtte de. ah jibi mooy dégg. lu ne def naa ko ci làmb yaaw dégg la wala dëgg. loolu moo am du neex a dégg. ba may daan joor doon Tambacounda wax de naa ne yaa daan joor doon jamono ji ma koy daan mënu ko. non non boobu kay mbapat bi ko daan. dégg nga loolu. loolu dëgg la moom boobu boo taxaw sama wet na ma continuer entraînement yi jox ma saal. mais lan moo tax après benn instant gisatuñu woon nekk ci benn saal boo xamante ni. bala gàncax avant saal bi saal bi kañ la. non saal bi yàgg na man mbaaw rek léeg-léeg. ma saal bi Sénégal la ne ah loolu question la. waaw d'accord léegi comme mais ce que je veux dire. non li ma leen li tax ma laaj la loolu. waaw mooy Sénégal la ne. yaa ngi bëree Sénégal donc pourquoi nga arrêté woon. non xam nga fi ma nekkee mbaaw Bëkkëri Ñang la lépp Bëkkëri Ñang magi Iliman Ñang ak Ahmed Naar Ahmed Gazouma ko ziar xam nga. Euh, waa cuuj ana cuuj yi yi. moo doon poussin yi. seex topp micro bi seex topp waaye nag wuli nag bu ko nga wax. li nga sañ si kay rafet na ni nga fi nga fi <laughs> yaa ngi dégg ma ma gisee day tiit. léegi ay mais damay laaj sax gars yi dañu woote wala duñu woote. non kii parce euh, yi xam nga dañ commencé def ay ay teraanga. bis liggéey bi fi dafa raar de. waaw mais. yow kon maam Gorgui Ndiaye nee na. Youssou moo njëkk wax. Youssou Dieng moo ne ceebu yaay Bintu Ndoy ku ko lekk nit boo. gën a affaire bi neex na de bisu. ah Nourou la. bi moom. laal ma si kaas bi yaa ngi dégg ma la. maam Gorgui Ndiaye moo ne léem ndom du mbàjj ca dem xalam. papi laal ma si kaas bi maanaam Demba Fall doomu booy naar Fall man mooy sama conseiller damay teg ci code. Mhm. man du ma génn orgam ndax bisu bu wootee. ñëpp dañu war a waxtaan ci làmb. mais léegi ñu ay ndaanaan lañ xam nga expliqué la. waaw non ñun li tax arrêté a yi. Mhm. ku leen neex la tëgg ku leen neex luñ ko tëgg. Mhm. waaye grâce à Luc Nicolaï mi ngi fi. Aziz Ndiaye ñu ko bàyyi mu bàyyi làmb du yoon. ah mais décision personnelle la. mais mais ma xamal dara. ma xamal dara. mais Baye mi ngi tëgg acca. non Aziz dafa yàgg jàppale làmb sama combat Khalifa Ngiraan moo ko tëgg. da ngeen naqaree jàppale acca demal rek. non mais mais mais làmb wu ñun Mor Gueye sax bu ñu soñoon Mor Gueye mi ngi dégg nii. bu ñu soñoon mu ñëw ci làmb ji ndax promoteur yi mën a noppal ko tuuti mu tëggal lamb daw. mooy yoon na gars de. mooy yoon ku mu de ay seconde laa ko jàpp comme muus buy na Amérique bàyyi ma fii. kooka la man rek maa daan seconde. kenn ko de. jaan ah, <laughs> ah, na de dem na bàyyi la fi de. na ko de gars yi defe naa dañu am de. ah man de non mool jëpp moom boo bëggee doomu lay bisu mi la yow yow yow wax ko ne rek. yaa ah, ah. yooyu la ñu war a am andi leen ci làmb ji am ay promoteurs yoo xam ne ñoo jàpp làmb ji làmb suñu culture la ñoo ko moom. Aline Petit Mbaye. Aline Petit Mbaye déggal xooloon Menga bataa ba ci Burkina ko xaar mbay nee na man jaago baa nga daan ci yooyu. làmb bu ñu ko yàq ñun ñoo moom suñu làmb culture la. suñu culture nag bu ñu ko yàq def ci ay. bokkul jaaxal dama ko xam ne deux semaines avant moo may ñaanal mu doon ñaanal pour lan. daay daay la la Omar xam na li ma ko pour boo amee combat ngay mën a dem. non di def ndam. barki Serigne Bamba Mbacke mais bu fekkee deux na non la. comme ni nga mais mais mais dama bëgg xam ne France. <laughs> Mbaye France waa Lyon ñëw dindi loolu. nee su ma amee France ñoom ñooy jël un mois quinze jours trois mois il mois quinze jours baax na. non Sadio yow yaa mais kuy diri sa gars yi naan def leen nii def leen nii yaa ngi entraîné wala entraîné d'accord nañ hmm. ndax damay def body attaque di def musculation am na mbër yoo xamante ni ay champion lañ ci sama loxo lañ jaar fitness ngay def xoolal giri boobu maa ko jàngal bëre papa saw xam na nañ la de mais dama lay wax bu ma lay wax yàgg boobu dara papa saw xam na ne bi mu daanee ay ñu mbër yu bëri maa ko jàngal du nuy wàlla père ba di ziar di waxaale Maître Dramé happy birthday to you Maître Dramé suñu maire la. mais yow ñooñu ñëpp nga jàpp nañu rek ñooñu ci xaaral ma ñëw rek xaaral ma sama loxo la jaar. Mhm. maa ko tàggat. Balla Diouf dañ doon doonante maam moom ci néeg. Mhm. ba ma jël télécommande di ko dóor ndax mën a xeex Balla. Mhm. Balla Diouf mel ni muy dégg. man maay Fass. Eh, Fass yaa ngi déglu ma la. Euh, euh, ñoom Forza ñëpp mën nañu fréquenté ndax man maa xam bëre xam la ca biir bëre. Zallo ba muy daan Yékini maa toogoon a Zallo Yékini ba muy daan Assane Adamo Niger ñoo toogoon. Hmm. kon ñàkk lu ma xam si lamb. non yow yow maître nga si lamb. waaw mais kon bu ñu ñëwee tey di waxtaan non bu ñu ñëwee di waxtaan ci da bëgg ñu waxtaan ci cadre cadre lamb. Hmm. ndax lamb moo ñu fi andi. Hmm. ambiance neex na trop mais dañuy waxtaan ci lamb ji fi ne li fi ne. mais lépp lamb la. mais lamb ji bu ñu toll bëri eh, eh, eh, yow fii génn cadre lu génn lamb yow da nga bàyyi sa téléphone bi émission bi nga toog de. non mais noo def ñëpp wala tegal téléphone bi. kenn du jël du ma jël kenn ndax dama laa respecté. non loolu force loolu du problème. borom du ko maan bàyyi téléphone yaa ngi may yëngal de. <laughs> waxuma li ngay wax borom du ko maan <laughs> kii. tey tukulal kuréel laa wax rek. ah non non borom du ko mënu ko ñàkk bañ a génn. ndax waaw d'accord fi la la la man dama am samay nit yoo xamante ni ñoo bëgg te yàlla tax di ma jàppale bi ma bàyyi woon xëy na mën naa nekk ci yeneen. waaw est-ce que la mais damaa def sport def lutte gréco def lutte traditionnelle def lutte avec frappe. ba léegi ma boole moo bari. équipe nationale keroog ba ñu jël CNG bi déglu naa sama tur ba saa yi dégguma ko. déglu naa sama tur ba sonn CNG bi. ñuy hmm. fal tafa dégguma sama tur. mais boo xoolee performance bi xam ne champion la. mais am na ñu la fi ëpp performance yooyu. kan la Yékini mais Yékini daa am nekk di jàngale ay bëri nii ci équipe euh, euh, nationale xale yu ndaw yi. non yow fitness ngay def. non non dama ne la yi bëri laa lay wax. Hmm. les. sama liggéey personnel boo xamante ni na Gajaga ak Fata ñoo ma jël forcé ma ci loolu. Bëkkri ñang bu Iliman ñang bu Yaay Ndey Fall. bu Fanta ñang <laughs> mag daal gune barke sëñ Bamba Mbakke xoolal gars yi ñu ay solo lañ fi bëgg jàpp te àdduna. waaw mais continué rek mais mais yow yow nag yaa ngi ci plateau. dañu ko sol ko duñ ko sol. waaw mais yow dafa am loo bi mu ne sol ko lii lii papito may na la ensemble Adama Diouf dégg nga papito may na la ensemble yére olof rafet. bilaay moom bàcc moom lii am na lii mag mag lii xam nga lii xam nga waxal ak seki rek sa bër xam nga waa Europe dañoo kontaan te ñoom man ñoom man waa Europe fay ko ci ay millions ay man yow man mën naa wax ak yow ma ne man émission bi non mais émission bi am bi boo xamoon ni ngay doxalee ma ne man koy doxalee mais instant bi am na yeneen moo warale mais yow dama laa respecté jox la cër jox ñun ñëpp am plateau mais déglu tuuti nag déglul déglul ñu waxtaan dañuy waxtaan lam lam bu ñu ko waxtaanee rek am am déggoo teg ko fii du affaire buzz. fii du place bu ñuy waxtaanee na am de. ah mais kon li ñuy waxtaanee confrontation confrontation. waaw moom day door marto rek gars di ko solal. ma ne kii Jibi Ndiaye mais kër googu nga demoon uti kër en tant que indi woo ko fii. door yi doon police bi police tànk eh. doon police nee naa la du ma bëgg a eh. réglé yow eh, kooku xaritu biso xanaa nga dem kay fexe bi mu enquête comme yow loolu da boo ko defee ma pardonné la waaw may wax direct hmm. ba Basirou non mais il faut mais pareil papa yaa ngi seen wax. waaw non c'est kon yow nag da a a bàyyi li la may benn ensemble. lamb laa lay lamb laa nag am na ensemble. xala lamb ñoo ko war a moom ñoo ko war a defar. loolu soxla yow kon xam nga. seex topp ma ku ñawal seex topp ku ak mën a ñaw. waaw d'accord léegi mel ki continue. yaa ngi dem la ah, lamb da bëgg ñu defar ko. loo rafet rafet. ñun ñun ñi ñoo mën <laughs> mais lamb dafa nekk loo xam ne lii lu noble la. Mhm. làmb ci la ñuy defal lu ne ci àddina. Mhm. kii làmb moo tax ñu may ko ñu may ko kër. Mhm. làmb moo tax jox ko bi kon fi toog nii confrontation la mais dañu a suiviser bokk ci diaspora bi waa diaspora bi yëpp Argentine ñu ngi seetaan kon nañ ko rafetal ba mu rafet. ndax bisu ngoo la bisam bii ñu si bëgg a toog bari na. bari na maa ngi jógee ba Zag Mbaaw. man dëkk ba laa jógee tey xoolal dëkk ba. démb oh. ko moom suñu yëf la parce lii. Père Demba Fall Mouhamed Clean Oil nee ci loolu rek ma ne teral na la jox na cinquante mille. non ah kooku borom Clean Oil. mu ngi may tooñ de mën na yokk de Mouhamed mu ngi may tooñ. képp mu ngi may tooñ. yaa ngi may tooñ. loolu foofu laa yem moom parce que xam nga. Mouhamed yaa waaw xam nga yooyu bu ma boo ma ko def def. damay ànd ak ay vertus carte lamb daal. waaw parce que <laughs> xam nga àdduna. Ah. ñi dañu bëgg làmb moo tax ñu def li ñu def. sa maam nee na ma yéelu petit ku la ci jàkkal ku ne boo amee nag nga doyul ndawal. wuli may na la mbubb yow tamit. ah ñu demee. yow ni ñëw. bisu euh, euh, tuuti Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax. Eh. tuuti Ndiaye suba teel la ma woo. Balla Gaye de nga li ngeen def ni Balla bu alo. teral na ma ci suba la ma woo. damay bañ mu tuuti Ndiaye mais provision tuuti Ndiaye baax borom pigeon yi. arrêté affaire traîne fii affaire loolu waxal gaaw ci émission bi. Alioune Ndoye. sama xarit la Maalim Maram Ndoye jëm jeexul géej. gis nga docteur Boy. c'est que man waaw mais xanaa ñi may ñi may tëral ay dina xew ay mag lañu. waaw mais tamit beneen mbubu ah. la ah waaw mbubu. mais ñii ko ñu leen mën a def. yow kon ne rek. yaa ngi dégg la man dafa am loo xamante ni Abbas Ndoye dama ko yebee. candum nee na bisu même tam lu. yow wuli bàyyil wax daaxul. la moo mais non non da ngay dégg da ngay dégg ba pare nga. dafa yow da ngay da ngay tënk wax ji. xam nga benn benn. dafa dama war a dem ci liiru de. wax liiru nag pour di woyaat nag wax Abass Ndoye ak Moustapha Ndoye. waaw ñëw rek wax rek dëgg si yow wax tànn fi pour woyaat. déedéet yow waaw yow eh, eh Moussa Ndoye ak. yow kon dina wax lamb. <laughs> wéyaat nga ba ñu may la kenn. non wéyaat ah, ah waaw wéyaat da ngeen def yow. kooku Basirou Ka eh, Basirou Ka dama ne lamb ji laa bëgg ñu koofu defar ko. waaw non waxu la mu ngay wax fii nen nga. waxu lamb laay wax yow CNG bu bees bi yow. CNG bu bees bi CNG bees bi. li may ñaan rek. mooy am am na ko woote. 88 628 14 13 allo. allo. oui. allo. allo oui. allo oui. ça va. bisu ziar naa la. ah. allo. allo oui. noo tudd ak foo ñu man la Viviane man la Viviane. sama jigéen ak noonu. ah. allo man la Viviane man la Viviane Kër Mbaye Fall. ndeysaan. ah Viviane ñu lay nuyu bu baax dina la déglu. ziar naa leen de. delloo ziar bu baax a baax a baax. man de tey dama woo Tafa. waaw waaw Tafa l'international. ak sama góor a tamit bii éviter ñàkk i ñaan. dëgg la nit ku baax. nit ku baax lañ dem ci yow moom ziar naa la bu wér. da nga gaaw jooy nag. bu fi jooy ndeysaan waaw. boo paree. waaw. nga jaar comme d'habitude. yow ah, borom baax nga ah, ah Viviane. ci yonent bi nam rek ngay am. non dëgg la yow da ngaa baax xam nga. waa kër Mbaye Fall lay ziare a ngi lay kontaan nañ ci yow. ndeysaan rek ci yow la. dëgg la loolu ndeysaan daa baax. yow nag maa ngi lay ñaanal. lépp loo bëgg. Mm-hmm. ñu borom may la ko. amiin kon dina am ndam laa bëgg ci Adama. parce que tafaan yi borom borom baax la. dëgg parce que fii ku fi nekk am nga tàkkusaan. Mm-hmm. amoon na fi tàkkusaan boo xam ne boo ko woon tafaa. kenn ku fi tudd woon tafaa sa bis du neex. Mm-hmm. mais xam nga ay dog-dog day am. dëgg la day am ñëpp yamuñu quoi. la mais moom borom baax la te ndam rek lay am. maa ngi ziar nag plateau bi yëpp. ma ko doon ziar rek mais moom xam na man xam naa. dog dara maa ngi moom dara yow oto bi ma andi nii yaa ko jox jox ma sa. maa ngi <laughs> oto bi ma jox. merci beaucoup. <laughs> ndeysaan yàlla ko dafa jàmm. sëñ Viviane yàlla ko yàlla dafa jàmm xale bu baax la di liggéey ci Fada. ok Fada compagnie. da nga koy biisaat gaa yaa ngi laaj biis bi. man may bandi. Eh. léegi te amatoo amatoo force de. Eh! non non mais yaa ngi biisaat. non yow pare nga biisee. mais yaa ngi biisaat ko. non mais Adama Diouf. sëñ Ba du mu naan ndox. xam nga lamb ji mën la. déglu lamb sama jël premier combat. wuli euh, xaaral ma tegal benn affaire lamb gi nii. juróom ñaari njéer kuñ jiñ ngay soow. moo tax ñëpp sa yaram tàng. moo tax tuus. gis nga ndënd nii. dëkkul ngéwél. dëgg la. Babou Wade jarbaatu Ablaye Wade ak déglu Tafa mu wax Jibril Wade ay seen ñeent déglu Tafa mu eggali dañ dégg bi nga dégg nii mu tëgg lu neex li am solo lay wax dëkkul ngéwél ca la bay la juddoo déglul tabala moo tëggal l'islam amul lenn mu tëggal l'islam du tere kii de yow suul na la galaay sa bi yëpp yàq na ko. yaa ngi déglu la saba dëkkul ngéwél bëgg si moom. li nga xam ne yooyu liggéey si sa travail. dégg nga appel bi 86. yaa jëlal appel jël ko yaa. wuli jël na appel. allo allo allo. asalaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam Bijou ça va. sant rek sant alhamdulilah man c'était juste yow rek laa bëggoon waxal. Eh, dama lay wax ne que sañse bi rafet na. merci et boo amee ñu la bëgg xamal ne ñun moom ñu ngi fi bëgg nañ la trop. et qu'on est là pour toi. et on t'aime fort. <laughs> macha allah <laughs> allez merci. merci tur bi naka la. Eh. leen di remercier bu baax wax dëgg yàlla. yéen lañ fi nekkal nee naa leen euh, émission confrontation man. pour euh, euh, sénégalais de l'extérieur mhm. loolu laa wax. dëgg la ñoom ñu nekk ci bi dindi seen stress. ma ma nuyu Moïse Sarr biisu ma ma nuyu ma nuyu Moïse Sarr quoi bu ma amee comment def ci jàpp bu baax. di nuyu waaral si Dakar ñoom ale ak kii. ma ne dama bëgg ñëw ci ci ci waaw waaw yow yow may ñu yëgale may nga décortiquer sa ah, gis-ma ak yooyu maa ngi ñëw. Ah, damay ñëw ci ci ci ci wulli parce que wulli gars yi nee nañ dëddërlu bi yow yaa ko tey. non kon xamuñu xëy na ñu bari. dañu ma koy jàpp dañ jàpp ne comédie la daal. waaw mais est-ce que raxul quoi xam nañu ma defe naa boo laajtee waa reefan. Mhm. ndax dafa dër wala dëru dëru lay wax. bi mhm. moo xoos rek ah. voilà ci ligne bi kon allo. c'est ñoom dañoo li nga war a def ko yokk nag mais dafa def. yokk fa mais daf siy waane waane. allo allo. Oui. Bonsoir, Bijou. Bonsoir, ça va. ah kontaan naa ci émission bi. yéen a la première fois que j'appelle à la euh, mhm. Tafa Gueye moo taxoon ma Tafa. ayca. Tafa. oui va je vais bien Awa Eva Joie. oh. Malam Malayka. <laughs> va bien. non waa gis nga ba doon Malakaye. waaw kontaan naa kontaan ah, ah, naa. xam ma bëgg la. Uh-huh. da ngaa ci man non ma jox ñu kër yi bëgg ma. da ngaa ci man bëgg ma ndax àdduna teraanga la li nga def nii. Uh-huh. say morom dana war nañ koo war def. vraiment kontaan naa ma lay wax nag nga jaar demain ah. ma jaar lan. waaw nga jaar kër ga comme dab rek. non mais bisu rek fa nga wax moom. <laughs> ndax yow xam nga ne. Uh-huh. Malakaye du ay fo. waaw daa d'accord déjà may naa la benn week may naa la week-end yee dawloo am nga ci man tamit euh, trois pièces Getzner ah oh waaw boo paree nga woowal ah, mais te maa jox sa numéro bijou awa oui Tafa xam nga ànd ak ku baax dafa mel ni jaay dëgg la bu la <laughs> mee nga xeeñ bu sore nga xeeñ waaw loolu am na <laughs> awa yéelu picc loo ci jàkkal ku ne bu amee nag nga doon ndawal waaw loolu moom am na yow ñëw faa xam <laughs> di nuyu sa papa bu baax. d' accord a pas de souci. merci à Bijou kontaan nañ ci émission bi vraiment yaa ngi dindi stress on est vraiment contente. tubaab la nag. ndax herba. c' est que parfois sama xel si parfois ba. Viviane maa ngi lay gis. borom kër Mbay Fall. waaw yow yaa parfois. mais bii émission bi amul ci àddina. man c'est la première fois mu ñëw fii te nag bul ma gëj a bul ma gëj a invité parfo yaaw bi mayaat nañ leen yeneen ñeenti ensemble waaw pour ñoom ñeent. kanam léegi parfo yaaw bi neexul dara. Demba Fall moo am ensemble demal bàyyi parfo Black Couture kenn xam na ne parfo Black joxaat na leen ku nekk ñeenti yére. Euh, ah ñu ngi koy waaw jërëjëf am ngeen fi mu nekk fi kon liiru jaan da nga war a ñëw sax kii nañu may jàng ak liiru ñun man du ma sax man liiru jaan internet yi ñoo koy laaj sax xam nga ñoo koy laaj vraiment du sama du sama man xam nga liiru jaan ngay wax noonu fii du sama place waaye léegi place yi xam. fi 2004 la woon. waaye waaye yow may léegi fii lu tax nga def fii de sa place. xam ah, non tapet bi nga ma boole. Eh, ah. laa yaa ma doon def ñaari at de. kii moom amul. gëlëm fu ne nee na daan na la moom sànq ba nga demee. kii nee na wax na nee na daan na ci ginnaaw saako yi te action bi ci biir nag ma ci ginnaaw saako yi. loolu la wax de ñaari combat yi. yàlla yóbbu bu li baax yóbbu àdduna yi yaa foofu la lii maa ko defi wala maa ngi baar loo indi leen ma deuxième combat ba ma ko daanee si ginnaaw sax maag moom maag moom ba ma doon tuur ko nii nii jóg nii nii ay mbokkam ne ko jëm ko kii boo jéemee xayma dafay door nga daal barke Seydina Mouhamed ah, arbitre bi pour mu dox sama kaw ba ma tax yaaw bisu yaaw waaye maa leen daan am dama bis bisu ñun kat ma jëm ma France léegi taga foofu sa loxo maa ngi ñëw ay ca ah bisu xaar ma ñëw tafa ndax dikko moo ma andi de tafa dikko moo ma andi dawal ko dama tafa yow eh. tafa nga yaakaar ne yow fii lang la du lang fal ndànk bisu lang jëlee ko loola dem dem ci wule waaj faat piki da koo yàq yaaw dafa war a toog bañ a ñëw ah. fi sa place vraiment je suis désolé. parce que. Karajo kii woo ñu téléphone bi tuuti mu téye ñu ko le temps moom ma kii. waaw continué nga wax nga nekkoon en fait. la moo tax ne fii du sa place. yow sànq nee nga kii wuli wuli wuli wuli wuli wuli ale nag waruñu ko fàtte. parce que kii moom moo la gën a nekk instant ale moo ñu tegal. yow kii mooy France mais moo ñu taxaw tegal ak ak ñoom bugg fal dox combat jarul ñuy xeex ak waa Ligue TV man bu doon démb démb doon tey. sama passeport ak yow ci ci plateau. luy jàll tax sama passeport yaa ngi ni fees dell bokkuma ak yéen. luy jàll tax ñëwul. bokkuma ak ñoom. luy jàll ragal ko jàpp. aussi nag il est voyagé six fois comme sept fois. bokkuma ak yéen wuli teel. yow foo voyagé yow sa voyage. formation sérigraphie. waxuma la nga noppi léegi. bàyyi naa bokkuma ak yow teel. wuli waxal li nga découragé fu ma génnee la. te je suis déconcentré. waaw mais dama yoon baa ngoog fii rek mën naa ko animé. am sa mais fii animation. ala Ndiaye loolu la yàgg soxla si man kat dangay may yaa fóole yaa wax. Eh, doo noppi waxuma la nga noppi. day na ku woo kii loolu yow da nga ne fii du sa place. loolu lañ bëgg a expliqué kii bi mi leen woo yéen ñëpp moo woo kii. man mosuma gis kii man bii tam may bett rek. yow waxal wax naa na bay ba vingt minutes mu ñëw. loolu am na vingt minutes yow ñun ñëpp ay mbër ngeen tamit war a. kon léegi moo toog fi keneen. mais léegi mi ngi nii ñëwul ba nga woo Batika. kan mooy Batika. wala xamoo ko mais gars yi xam nañ ko. waa léegi wax ñu. kon nag parce que gars yi ñooy laajte nee nañ laajte wala kuy Batika. merci Batika benn dof bu neex kii xam na ah, dama ne Batika day père ba ko yor nag. te père ba wax dëgg yàlla dof bu neex. Batika non ku non pas dof nag. maanaam maanaam Batika moo neex moo dàq. Batika dafa mën a àdduna dafa mën a wax xam la. parce man bu may wax genre Papa Sow. waa parce que man bu may nekkee ak yow bu neex la. bu ma nekkee ak hmm. yaaw du ma mën a wax. yaaw bul waxaat de yow noppi lu ma jox la parce que parce que xam nga. damay bañ ñu ne wuli yaaw wuli yaaw. te du ko baax dama ko ñun ñëpp maa leen moom. bilaay yéen ñëpp maa leen moom. yow ñun ñëpp. mais wuli mi dafa naan ay saxaw wala ñu naan gars yi ko mosal de kii liñ ko mosal moo tax gars yi dañ de gisoo ñaata sumeeku la sumeeku bisu barki Serigne Bamba gars yi ñoo koy de ñoo ci de xam nga kan a million ko dagg après ngeen tontu ko. mais ñun maa leen mën dëgg la dëgg la dëgg la day naax de. dafa adama kilafi mu yebbiren abu njaase daa daw lam bi na bu doon a dama koy kor doo ma doon ma daan waaw moom laa lay wax de loolu bañu ma ko mais dama maa ñëwul parce que da damay doon mooy kan wax kii mi ngi tuuru mais xam la la mi fees mi ngi tuuru kii maa ko mën fuuf ñooñu ko moo doon ñëw taf mbër eh, eggal fi nga nekk yéen bu leen ko dagg loolu tax nga ne yaa oh, mën maa waaw ah, lu loo teg ne amoon yow li. génn ak xale. Ah, génn ak lan. génn moom ak Tafa Gueye mi bi may ñëw Dakar. maa dalal maa ngi bay Diouf. Tafa Gueye nii tool boobu itam. kusub <laughs> waaw xam nga taay fin laa. dama xam ne may lekk. Tafa Gueye xam naa ko vingt deux cinq ans nii nii la tool benn taal. waaw mais taay vingt <laughs> deux cinq ans. kay. yow mbay Diouf boo doon gore. di nga fekk mbay ji fu mu nekk jàppale ko. la. déedéet damay wax de. ci foofu ku <laughs> si nekk am na loo téye téye ko. ba ngay fanaan ca ba. <laughs> waaw wuli. waaw nga andi woon maa la jënd ay daal yu bees na la yi nga yóbbu géej. mais carax nga naan yóbbu am àdduna. lamb kii ma. waaw wuyu la. man Tapha Gueye kii lan moo tax ma bëgg a bëri ak moom. kii bu ñu woon waaw kuy boo ko yaree. xam nga moo tax merci damaa xam ni muy nekk yëpp mën na bëgg a ba bare yow yaa ngi doo bëri moom pare nga ne lan moo la wax nga bëgg a bëri. Ah, moom. ndeysaan Adama Diouf te ngaa bëri te ngaa jël sa waaw ah, ah, moo tax police moo yor sécurité nationale. xam na ne ko yow eh, mooy gële yow liiru jaan ngay am kan mooy wuli ah li ma ko def Gambie. ñu koy wax Dakar léegi damay damay ci dama ma ne ma ma eggale. parce que xam nga yéen ñaar. yàq wulli bi ban combat la yàq liiru jaan. dañ leen a tëggal combat mais yéen a nga kii mbapat la police bi. waaw mu ngi koy bi Big Pato mu ne policier mënu mënu koo daan mais dootoo door policier nag policier bi sumay xat lañu. ñi maanaam mën bilaay ñi maanaam mën demee naa ab doole. policier Ndiassé maa ngi koy nuyu bu baax. bilaay maanaam mën dóor policier la ko mën gaa yi de. moo tax gaa yi di ko moytu dañu tax. buy lii. a de. nga dem sa waa jooju nga fexe bi ma am kër ma baal la. waa kii mën na kër

sama kaw boobu man damaa feebaroon. <laughs> feebaroo feebaroo damay nga feebaroo woon. damay xam naa boobu Koba damaa laajte. sëñ bu ma woo mu ne ma. gisuma ndam. man wéruma. liir jaa aussi moom aussi ndey sax ñi ñi mawuma ci xel. man ma woo ko ne ko man de booy dem ma Gàmbi mu ne ma buy dikk <laughs> buy dikk. <laughs> sa combat beeg liiru mi ngi nii liiru ba mu dawee génn saako ya ca ah, dégg naa ci benn mais li mu def ma <laughs> bi ma ko woowee ne ko man moom man dama fen ma ne ko man dem ma Gambie non combat bi moom entraîné wul buy bàyyi ko mu eggale parce que buy yow buy buy ñëw de bàyyi rek man ma dem ñu jox ma victoire ma xam ne dafa bëri wax boo demee mu jox ko victoire fii rek di lal di lay Lamine Lamine Samba maa ngi ko nuyu bu baax aussi dégg naa dafa dafa jox vingt cinq mille pour nga ko combine bëre. non combine ma ci combat dama may rek. may 25000 ci cachet am. waaw pour ngeen combine bëre. non combine non du ko. non ma. léegi 25000 pour lan la war parce que yow apparemment li taxoon bi laay du combine sax pour nga dem ah. baax Lamine Samba. Ah. yaa ngi dégg moom moo taxoon. sax moom moo la baax ba nga dem. ñëwal mais bii du combine barke Mouhamed. non liiru jaan ma ñi ma wul ka saa caaxaan nag ñi liiru jaan dafa yaakaar ne man du ma dikk. xanaa moo ne yow combat bi Lirou Diane bi ma gisee César ba dafa tiit Tafa. Hmm. lii Diane génn na stade bi. di ñibbi. a du bëre fekk fay ñu ko ba pare. <laughs> loolu fu mu am te fayam da dem war a dem CNG. jamay kenn nag xam nga jamay kenn dafa jamay kenn ko. fii Gambie la fay bi CNG la dem. waaw non boobu nii moom fii bu fi pare combat sa reliquat foo ko jëlee jëlee. CNG jamay kenn ne ko boo. jamay kenn ne ko boo bërewut Gambie doo fi gën dañ la tëj. li daan dem laqatu ci jaaykatu café. café toog kon ma man aussi man aussi du ma fenn. Hmm. maa ngi naan sama xel yàlla bu mu ñëw parce que boobu bëggu maa bëre <laughs> maa ngi naan waa rek yàlla bu mu bëri yàlla lan moo tax bëggoon bëri nag ma ci état barke Mouhamed Kowa bi benn fon. kon yéen da ngeen di combat combat business ah, parce que ko man man dama fenn benn fon laa ci laa ci parce que dama feebaroon bilaay di wóccu mais jamaïcain aussi maa ko dama feebar gëmuma Lamine Samba nax ma ne ma non ñëw leen amul problème. non Lamine Kama defar làmba ko tax a jub loolu defar làmba la quoi du bu ko tafal parce que bu ko defarul woon combat Lamine Kama da ngeen ko war a remercier parce que defar làmba bi la dëgg la waaw nax quoi. bu ma non naxtaan ma la quoi. naxtaan daal waaw waxtaan ak parce que bu du woon Lamine Samba. mooy yow da ngay tifli lu bari baax. bu du woon Lamine Samba. jërëjëf man du baax na yow. kawoon naa bi may may may bëgg a yow gaz vraiment. non moom gaz la tifli. waaw ah, d'accord kon de. bu bu su woon Lamine Samba. <laughs> man du ma dem gàllankoor comprendre maa ngi gërëm Lamine Samba. Mhm. su woon moom du ma dem Gambie parce que boobu comment dañoo dañoo laaj entraîné dem ma ci benn sëriñ di ñaan. te bi may bëreeg Ligue 1 am na ñu bëree bëri ñu bëgg Ligue 1 daan ma di ma xeex man ba ma xam ko sëñ bu ma woo mu ne ma. waaw bisu nga baal ma tuuti. non fifty dafa am lu mu def quoi tey fifty gis nga ni ñu def. ni nga def sama ndaanaan yi defal leen affaire tamit. Ah, ay mais lii kii bisu nga baal ma ak rek waruma la dog kii lu tax mu dem ba foofu. Mhm.

su ma ci entraîné woon dëggantaan. Hmm. li ñu daan duñ bëri ñaari minutes. waaw léegi wóyoo ko ma la. dóor yi ma ko yow. bu ma la ko doon benn nga yow bi la do ah yu moom ndax moom bëggatul bëre bi li muy wax nii yëpp. moom bëggatul bëre bi. ma kii taxaw mu war naan ndax pare nga balaa muy naan pare nga kii mu ngi dóor. Balla Gaye moom moo bëggoon combat bi gën a jeex lu mu wax nii def ko gëm de. boo tey de bëggatul moo tii jaan ba ñëwul. est que xam nga ne mais bu ko waxoon demal bi Lirou Diane day ñëw. man Lirou Diane daan ma ak. kon Balla Gaye moo téye Lirou Diane ba ñëw Balla Gaye moo téye Lirou Diane xam nga am nga complet beaucoup de fruits pratiquement un peu de ketchup dafay bari. ak chicken wings nga tudd léegi chicken pie chicken naked di ma dégg rakk Moussa Ndiaye. yow ba bàyyi yooyu nag nga wax ah laay daal dama ne barki Serigne Saliou Mbacké Balla ko waroon bàyyi mu ñëw ndax li ma yàq si télé yi du lekk yàpp ak samay bañ baaxul ak lu ne wax na ko mais da ko waroon bàyyi mu ba non dafa ko waroon bàyyi ñu bal la ko waroon bàyyi ñu. yaa ngi jàmm dafa taxaw. mais loolu question la. bi la du jàmm mooy man. kan wuliye doo la jënd sa combat bi. non day am doole mais mais àdduna ah, la moo tax mais ma li li dëgg la man eh, dëkkoo foofu. yow bi yaa ngi dëkk yow nga a ma faral mais lii la mën ba nga ñëw maa dara wax dëgg rek te yaa tax xam nga du ma fen yow yaa ngi naafeex bilaay du ba mu yow ma jaaxal ko faal man faale mu dem dama nekk ci ma faal tapalekat la de xaaral bi parce ba pare bàyyi ko mu wax dëggu ma laa wax man bi may dem Gambie Lamine sama laaj ko man dama wax lu leer promoteur bi mënuma dem parce que dama feebar man certificat médical barke Mohamed laa yóbbaale. léegi lu tax nga dem. merci beaucoup loolu laa wax léegi. Lamine Sama laa ruus mën ma ñëwal xanaa ma ne Lamine Sama ma téye ba ma ci parce que boobu dama feebar. laa gis sama jabar di wuccu barke Mohamed. waa léegi nga bañ a ko ma bëri si. mais nga bañ a dem non dégg nga Lamine Sama moo mën a ñëwal ma ne bu dee Lamine wax na même bu may dee dinaa dem. moom kay wax na la déedéet lan nga taxoon nga dem risque sa life noonu quoi Mouhamed mais man bi may dem gami sama bakkan doom certificat médical la yóbbaale mais wuli yëg ñu wax ko yëg moom euh, Lirou Diane nga ne da feebar da nga feebar wax nga ko man dama fen naa ko man dikkuma d'accord say nag ñëw na ah? mais mais mais yow mais yow man même bu dul loolu sànq gars yi ñu ngi ci ñu ngi ciy ñëwaat nee nañ ci dëddërlu bi sax naa ci ñëwaat mhm. parce que dërdërlu bi dëggantaan. ñoo def ko yokk kon yow dafa nekk ci yow wala yow yaa ci yokk boo yor kalaam boobu mën naa ko wax normal. Mhm. mais jabaram nga mënul ba naa wax bu ma ma ma mënuñu toog vingt minutes wax. te doo dagg. merci man gis naa loolu. merci beaucoup mais am na tur yoo xam ne boobu léegi xam nga maa ngi war gërëm tur yu bëri gërëm gërëm parce que. non doo leen mën a yoo xam ne que dër même boo mm, mere képp dër. non kii sax dafa dër day def ciy jo day ciy boole jànqatu. ah man sax damaa dër. man sama dër ci wàll la. kii kenn xamul jànqatu dafa dër de mais moo ko yokk. non day door marto. waaw yow yaa kii man ñaata sol la fi sol. c'est ça da mais nag baax na gars yi moom fii nii lamb ji moom wax dëgg fa la boo bëggee wax dëgg teel a tax. gars yi fu ñu demoon xam nga moo gën. ñooñu soxlañ loolu ndax lamb ji xoolal. corona ñaata mois la def. yow ñëwal balaa may ñëw ci loolu. merci beaucoup est-ce que xam nga ne man ñetta mois man liiru jaan ah, bi may bëri ak moom man la neex sax ma bëri ak moom parce que boobu man big pato laa daan. waaw mm-hmm. liiru jaan sama waay la mais boobu Xaadim Njaay da ko daan kat gi daan ko man man boobu jamaykee sax la rousse parce que jamaykee da ko joxoon avance avant ñuy bëre liiru jaan jot na avance am laata sama combat big pato Jamaïque ne ko boo buggul daa ma jox la ko luy daan sama combat bi am na ku nekk ci kaw ne nee na doon ñaan bi pato daan la parce que boobu ñemewuma ba Sëñ Tuubaa kan ñemewul lu tax nga topp di ko dóor dóor yooyu non dama xam ne mu nekk homme de tenue non non kii mi ngi liiru jaan liiru jaan dama xam ne Gambie bi ñu demee yóbbuwuma condition bu doy comprendre nga to it ma xam ne combat bi su neexee maa ko neexal bu neexul maa ko neexal. kon nag yaa ko ñu ka neexal merci parce que man su ma neexoon taxaw li daan taxaw ba ba set comme ni kii di bëree. mbay ja bu la kii di bëree de. yaat yaat liy jaan. mbay jaan ñuy seetaan. combat bu naqare lay doon. mbay jaan jour. mu ngi lay man Karambo di laay wax. waaw mais Karambo rek yëpp yow Mbaye Diagne laa wax Sénégal. waaw non xam ma yow man Karambo di laa wax. yow Karambo ko ma yaa ngi lu jàpp laa wax yow yaa ngi xam nga àdduna bu naqe lay doon. lan nga ne. yaa ngi duy bu taxawee. waaw xam nga doon. mais booy parce que Seydina Mohamed. mais yow billaahi maa ko wax. kii ak kii sax dàq. parce que ñun yow yow yow Sega wuli. ma armé daan di mu jugul armé. waaye fu mu la Karajo. ñu ne dafa naan Renault lay luy xool bu saboté dañuy émission lañu nekk ah ñëpp ñu seetaan bu saboté non dafa ah, naan rek bu saboté yow maa dalal dafa naan men maa ko daan daan Jordan am déet nuyoom la bu saboté dafa ndànk rek bu saboté ko de boo muy daan mbokk kenn mbokk kii fay leen ay millions ay dali ba mu ñëwee gis nga lu mu kii te mu ñëwee yaa ko jëloon ay dali de ko dali la alam diouf alma kii moo bon kii day war li ma ko jël moo dafa maa woo non mënoon nga maa jël non non non non kay fay nañ ma xaalis kii ma ko ba mën a bëriw ma dëgg tafa dara yàgg dara non tafa yàgg li jàpp eh, eh, taxawul dañ ko bëgg tëgg ko yéen a bëgg seen eh, bës di bëgg di door kenn kenn waxal ma dafa nang dafa nang yow da yaa xawi Moustapha Gueye Moustapha Gueye ngeen bëgg barké ci non ben promoteur xamul li laa bëgg man naa kii ñu jot avance waaw eh mais da ngay da ngay déglu fii mënoo fi wax te dër ba pare bëgg leer da ko alay de ak jiboori ah tu da ko alay de borom ran ci jàkka yow da ngay déglu da ngay déglu wuli émission lañ nekk dañuy waxante affaire nekk ñu affaire comédie dañuy waxtaan dañuy dégg non comédie mais dañuy waxtaan kii yaa xam ne ma koy wax eh, yow nga bëri kii sax moo gën a jekk nga naan ma mën nga bëri kii man yow yow yow man ngay wax yow wala Sénégal ñu lay déglu wala Sénégal léegi ñoom téléphone dafa fay wala fay eh, ko musal nag <laughs> téléphone bi d'accord non Tafa gi yow non dafa ndànk yow ab jaase moo la dafa ndànk eh, rek wul dafa ndànk rek wul dafa ndànk rek dafa ndànk rek fii mënoo wax a wax a wax fii mënoo wax yow sa séeréer moo xos mu toll xam nga kii lu ko jax lu koy bu ma bëree li ma bañ a bëri ak moom. ñu koy ay millions ma barke Serigne Ba ma Jamaïcain woon na ma. ba ñu bëri man sama écrit ñoo bañ. gal Jamaïcain dafa woo sama écrit ñu ne ko Tapha Gueye du fi bëre parce que entraîné na fa. yaa ilaha illa mais booy bi ñu Bamba sama bakkani doom da ngay déglu eh wuli da ngay déglu barke Serigne Bamba fii mënoo fi bëgg buzz sa écrit non ko bëri yow boo yaa jaal waxal kii mënul bëgg buzz boo bëri moom xaaral yow dama di déglu rek wuli ñoo la dalal ba nga ñëw ci Mbaye Diouf. ay dal yi nga ko njëkk a jëndal ay dal laa njëkk a jëndal. loolu bu nga xam ne loolu la rek. <laughs> dëgg la daal gis nga tey nag Mbaye Diouf tey. Mbaye Diouf bu nekkee situation yaa ko war a jàppale. ndax yow li ngay am ci jamono dafa nang dafa nang mais mais mais dafa nang dafa nang dafa nang dafa nang bëgg génn carte Mbaye Diouf yow lan moo tax nga ne yéen ñaar ñi ba lamb war na leen a boole. kii boo ko yàlla boo ko dalal boo ah. déglu ma xale war a bëri moom dégg nga wax la Papa Ndoye rakku Lac Rose déglu Gris 2 am na boo yoo xamante ni ñoom man bëgg ma woon a bëri ak yow mais est-ce que Gris 2 sax instant yow dépassé wu la kan Gris 2 mais ma rakk boo ko tàggatee ba mu dépassé la. waaw foofu laay waxee mais ñooñu non non nekk face. su waa ñu de. ay xale non wàcc amul fenn. wàccu ndànk barke Serigne Bamba de ambiance. xam ambiance da nga ko naan da nga ko saboté booy xoolal da bu ci xam nga léegi tam wax la ci cadre lamb la waxtaan liu jaan yow mënoo wax bàyyi wax liu jaan liu jaan ñu ma koy jox bu nekkee sa xarit rek nekk si ñàkk xarit rek ay combat bi soof nag non dama la dama la yow sa combat kii non dama la non li jël sa combat kii non non non man barke sëñ Bamba tala sa bopp yaa ngi tala sa bopp kii mais nag Tafa Tafa Gueye numéro 2 bu jëlee liiru jaan pour may ko chance la de du ma mën moom lu ma ka ko may ko chance la yow li nga def kooku def ko def Diallo dafa neex sax muy bëri Lirou Diallo barke salatul fatiha waru bëri moom sax Seydina Muhammad Adama Diouf tamit barke alquran kam dafa neex rek moom waaw barke Seydina yaa ngi say wax dëgg ay kalifa yi bëri ñëw ay kalifa yi bëri ñëw yow yow boy bu la xal man bu ma jógee formation daaw jékki laa dugg adressé ngoon. yéen a yàq dañoo juum. yéen a perte la xoolal sans naka personne. xaaral bi ma la man maa jël parole. moom si YouTube bi may ma may ma. kooku ñëpp a la man yow seen ñoo perte de. man yow gas kenn dem man bëgg maa ngi naan man ma la dara bisu. bisu dañuy waxtaan ci làmb. kii da doon ci làmb la nekk làmb. yàlla dafa maye te yemalewul. bisu bisu. yàlla daa maye te yemalewul. voilà 2007 2008. boobu posteri mag yooyu ñu def ci kanam boo fa gisee Balla Gaye wala Yékini. deuxième jour mën na fa gis yow de yow namm nañ la. sama diggante ak non man may borom askan bi la. waaw may leen li wuli fa fa mu wax. xam nga tamit wuli boo bàyyi ma wax après. bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko séeréem la bisu bu la wax bàyyi ko bisu bu waxee rek bàyyi ko. non mais su wax dañu bàyyi wuli mu wax. man ak liiru jaan non dama déglu ma déglu. non dama man ak liiru jaan. saboté taxuñu fi. non saboté wu fi man ak liiru jaan bi ñu jógee Gambie daan na la bi ñu jógee Gambie ah, waaw ah, dara bi ñu jógee Gambie jamay kee da dama joxaat ma man avance ñoo an ba reefan sama sama diggu papa hmm. liw jaan ne man yow laa bëgg a bëreewaat jamay kee jox ko ah, ma boo ko jox ko bi bi ñu demee ba kaw des quinze jours li ma bañ tubaab yàqu dama lay jox dama lay ak wala Adama Diouf man maa ko ne Adama Diouf du ma ko jël ci 15 jours ma koy préparé mais bu dee Tapha Gueye même benn forme mën naa ko jël. mu laaj waa. loolu lépp eh, mu ñu ne ko Tapha Gueye ah. du bëri ci fukki non non non bu dugg foofu kooku. ma am ñaata loolu yàgg na. non mag yow non non waa Fass nangu ñu ma bëri ak yow. d'accord ndax yow man la léegi yow nañu ñëw ci ci ci ci fere nga ne ban moo nga mënul wax. waaw yow waaw non non loolu wax rek wax rek bu ma kii nga war a waxal. xam nga kii moo tey li muy def waaye. lan nga mën a yow. sëñ Fall transfert sama ko wax. sëñ Fall transfert suñu xarit ak As Ndaw eh, As eh, Ndaw. As Dukumaan. As Ndaw borom Dukumaan. as ndaw borom du kumaan borom du kumaan borom du kumaan borom a kumaan waaw ah waaw waaw Baye Mansour yow est-ce que ne ko problème bu ba ak fa nga am mais xam nga ne kii fa la bokk yow la création dafa am non waxal biisu barke Rasulullah fa bokk waxal biisu waxal biisu waxal biisu waxal biisu waxal bijou dëgg la ki problème bu eh waxee bu buggee wax jamono. kaa bi dëgg la bu waxee jamono kaa bi bis la. ma ne ko instant bii. bu waxee sali kaa bi bis la. loolu kay jël <laughs> ah. Sali kaa bi bis. yow Liou Dia trop yow <laughs> moom mii Liou Dia da saaga ko ci kanam sa jabar. ah yow. nga ne whatsapp bi la Liou Dia di la envoyé woon. Ah. fi nga teg sa jabar. yow <laughs> loolu la wax bi la wax. jabar ah, ah, yi xam nga ak am rafet ñii fexe nañu jóge jóge dëkk ba nekk séeréer pire ba laa xaale affaire bi kenn xamatul ñu ñii. bu bu leen ma joxoon su ma yóbbu leen ci ginnaaw pare fii ay liif laa leen di yor duubal ba ñu rek loolu dañu wax bu baax ñii. bis sama combat xam nga lamb ji dama la bëgg xamal dara man man ku ñu joxoon sama ans doon nelaw. dëgg mhm. ci jamono ndax sa tànk jamono waaw d'accord jamono waaye tànk foo ko teg mën naa ko jëlee. dootul dootul dootul jamono ji. dafa gay moo toog moo toog waaye moo toog waaye moo yow yow instant bi moo toog yow kii wax la kii. noo man doon man bëri. may dafa naan yow am sama bës. Mbaye Diouf mi ngay wax wax wax a wax li ma la wax Mbaye Diouf. Mbaye Diouf mi ngay wax moo la métti yéen ay non parce que non mbay maa ngi ko jàppale. maa ngi ko jàppale. déedéet déedéet maa ngi ko jàppale. dem du rafet déglu ma la wax démb la loolu tey soo ko ñëw. mbay maa ngi ko jàppale déglu ma la wax. yow yow lamb dañ koy waxtaan xam nga faa ma ñëw ci question yi ma bëgg bàyyi ma eh, yow yow yow eh, wul arrêté wul arrêté Tidiane daa may woo fa baax bilaay kilifa may woo rek waa léegi da ngay da ngay da ngay da ngay yaa ngi en direct fi mu doon wax leen loolu rek garaaw ci ñu ko dindi. man de Ama ah, ah, yàlla na ko yàlla defal jàmm. dama defal teraanga ñun ñëpp. waaw 88 628 14 13 Karajo mën nañu ubbi ligne bi comme ça ñu jàll parce que émission bi man de wax dëgg du dëgg man de wax dëgg fa bu ma commencé sonal. dafaa ngay damay waaw booy gën a sabab wax ak man a. wax ak kii wax damay jàmbul. ah wax ak kii boo ko defee programme quoi yow lan nga ma wax kii man liiru jàng lay bëri. ak kii dafaa ngay bëgg ma bëri moom parce que sëy naa ma bëgg bëri yow parce que. non boo bëri jiw nii la xam nga ku bëgg a bëri man da ngay am poche. dafaa ngay muy loolu rek dafa ñëw ma de. yéen ñëpp mooy dafaa ngay moom wax la kii wax la kii. wax la kii. waaw wax leen du pare. non man aw ma États-Unis man yow Pape Samba laa am. oui allo ma jël barke dama def ma rek ma yëkkati lu jox ma Pape Samba président. allo oui. salaamaaleykum sëñ bi noo tudd ak foo ñuy woowee. man la Mouhamed sa taabu góor. ah kooku moom Mouhamed borom clean oil. bii maa ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar bu baax sama waa ji. waaye yaa ngi si jàmm. ayca ñu ngi lay déglu. Ah, sama doom nday <laughs> sama xarit bi laay woon noonu Moustapha. jëm samay xarit lañ ñoom dañoo baax ci man. <laughs> waaw bari na fan si de. non ñi ñii dañoo fay boo xoolee rek xam nañu ñoom ñoo fay. dafa yow nga fee. waaw déglu déglu déglu waaw Mouhamed nga ne. mais mais bisu man combat am laa bëgg daal ku ko ñeme. dégg loolu. ma suba suba ma jox ko avance. dégg loolu. ah lu ma kii moom mooy Diamond Evans. Diamond Evans la ah? waaw Diamond Evans. yow laa gëm de. kii mooy ponkal nga ne kan nga bëggal combat maa ngi noonu. kan nga bëggal combat mu mooy ban combat Moustapha Gueye. Moustapha Gueye mi ngi ci contrat wala. déglu ko rek. déglu ko rek amee nga ni Moustapha Gueye nekkul nekkugul ci dara. nekkul ci dara la nekk. non mais dañu wax mais amul mais amul déglu ak Moustapha wala yaaw ak Moustapha ak Lirou. yaaw ak yaaw ak Tafa. yow Tafa koo koy booleel. yaaw mais Moustapha mooy wax kum soxla. ndeysaan yaaw soxla. te maa jël rek rek rek. rëg rëg eh, waxal fu la waaye itam nag. non ko neex su ko neexee itam wax Balla Gaye ku ko neex. kii dafa yàq ne la wax a bëri. waxal wala yow xam nga ne yow combat bu bëgg mën naa ko bëri ndax àdduna teranga la heure bi sa nelaw bàyyi soxna yëpp woo woo bi yow rek lay déglu ay waxal koo ma jox mu bëri moom. la yow saa yi kii moom rek rek nee na nga wax moom rek rek boobu yow gis nga ne a. rek rek ak guy a bëri moom ci contrat rek rek am na combat. moom guy yow yow xool ne sa xel la neex rek. Eh, Mouhamed kan nga gis ci plateau bi. plateau ba. non ñun plateau moo leen mën du seen morom. billaahi wallaahi taalaahi du ma la wax lu dégg. léegi àndoo seen morom àndoon wuli d'accord loolu de Mouhamed. wuli wuli wuli. non mais mais wuli wuli Tafa Gueye moo ko mën. Mouhamed Mouhamed Tafa Gueye. waaw Tafa Gueye kii yi wa Tafa Gueye kenn du yow yow Tafa Gueye la ma yow man man biir ma jaaxal ma ragal ragal Sénégal ñu nga bari Tafa Gueye. Lamine Samba bu fekkee lii combat la aussi danga may def signe ma mën a xam. Lamine Samba ñu mën a téye Lamine Samba Lamine Samba xam nga. ah mooy bu fekkee lii combat la wax ma Modou Mbaye man Modou Mbaye eh, non Bijou Bijou suñ d'accordee suba sa kër laa ñëw jox la nga jox leen ñu signé foofu contrat ah ñu signé foofu contrat bi kër Bijou ban contrat kan kan kan ah, Moustapha Gueye at Wuli du ko jël dóor yi ma koy dóor a tax yaa waxoon bëgg a bëri man dama bëri man yow da yaa xew yi man bëgg a bëri man ki laa bëgg a bëri kii moo doon eh kaan la amoon bëri sama barke sëñ Bamba da ngaa ragal dama am conseil de da ngaa ragal dama am conseil de bëgg siiw taxu na siiw yaa taxaw ne maa ko mën li ma def ci làmb def ko na bëri ak yow jàll mi ma ma ma yow wu ñu bokk waaw yow yow yow Sénégal boo jëlee wulli boo jëlee wulli war nga mën a jël boo jëlee yem Sénégal yow da ngay déglu moo la. yow yaa mi mi ngi ci plateau bi waa jaay ci ligne bi léegi yow non ku si nangu kay soo soo ma jox la avance. man man moo am naa avance yow sax sa combat dóor ma ko bëri. lu gàtt ndax sama xarit nga mais da ngay bëgg def loo xamante ni ànduma ceeg yow. non ba sama xarit nga. non mais xam nga ne ñi du ma bëri ak ñoom kii moo kii yooyu bëri. Adama Diouf mii. waaw taxaw léegi Moussa léegi Moussa xoolal ku la neex. non non kii lay bëri yow xoolal kii lay bëri kon yow amatoo am yow li la war rek mooy teraanga. waaw ñun ñu ngi sant yàlla bu baax. bala nga dégg bàyyi ma ma xiif Abdou Fatah bàyyi ma ma xiif Viviane nga di seetaan. non lamb ji bu ñu demee Koulibaly mu may dégg xale Ndiaye ma nga noonu si Espagne di ma dégg. on le fou on le fou kan on le fou kañ lay wér man ku wér laay bëri du ma wér. non moo la gën a non déedéet dama ne dama ne dama ko wér. ba lam dee lam ba tey bu bu bu bu nga bëri ak xale yow bëri ak benn maa yow mag ak déglu déglu déglu waaw. Mouhamed léegi. non euh, bàyyi internet yi waxtaan waxtaanee ko. waaw parce que gars yi ñu ngi lay proposé sax Big Poto. Big Poto policier mais yow ñooñu dañoo jubóor la ma ne big paco de boo ko joxee Tafa Gueye naa ne ay bëñ. mën nga ko mën nga big du ma ko jël. doo ko jël saa yow kan ko réel. am na combat. <laughs> am na combat yow ñu am na ku ñu ko koy du mu bëri yow. ki tëgg ki ñii. mu ñëw tëgg na ko réel. man bëriw ma ak yow moo ko Ablaye Wade. waaw Tafa Gueye ak ñoom grand. wuuli bàyyi ma bëriw ma ak yow bàyyi waaw bàyyi la ma libéré Mouhamed du dëgg. waaw déglu Mouhamed xool Tafa Gueye. gars yi ñu naan Tafa Gueye Ronaldinho Tafa Gueye gars yi. Ah, Ronaldinho nag Ronaldinho la gars yi bëggoon te ko bëgg. Ronaldinho sama xarit la muy Lay Ndiaye. léegi Mouhamed léegi Mouhamed Lay Ndiaye waxoon na maag Ronaldinho. waaw euh, Mouhamed léegi yow seetaan. waaw. Mm-hmm. fii di jeex dinañ wax. ñoom Tafa Gueye kan lañ bëgg jox ci combat. ñoom kuñ bëgg rek ok incha allah sax lu ci mel ni Père Bekay euh, Lamine Samba ak. Modou Mbaye ak ñoom Big Pato. gars yi nee Malo Seras. gars yi ñu Malo Seras moom combat bu ne moo flambul nag. Malo Seras ne moo flambul. bu caaxaan jeex dëgg la merci beaucoup Mouhamed ñu ngi koy jaajëfal. ok bisou. Mouhamed jaajëf Mouhamed jaajëf Mouhamed. Malo nga war a jël sa combat ak ki nga xam non xam nga il faut ñu ñëw ci moom parce que yow tamit nag ci kaw waxam ngeen di wax tout temps. mag yi ndeysaan. déggal mag yi sama jigéen la rek dama d'accord léegi yow li ñëwal sa neex gi nga nekkee ci suuf nii di nga wax depuis sànq te ko jéem wax ci kaw yow mel booy wax day wax ci suuf ci nga dul dër. non Tapha Gueye mi ma ne wootu fee bëri sax. bilaay mag. foo teg loolu. voilà merci beaucoup Tapha Gueye mii yow man nga ne da nga maa xeeb. non te yow lii lu daal combat dañu combat wax ak yow si loolu kii nga war a bëre bëre la neexee bul ko mais xanaa amul ko bu la neexee bul ko tontu mais mais lu tax ngeen bu ko gaaw Sénégal na bëri kii am combat bu bëri man bëgg a door moom xam na leelu jaan bëriwul ak moom yaaw tamit il faut que ñu combat de. non dafa gi meeru ka laaj door yow yaa bëgg mooy combat li muy yaa bëgg yow am na forme kay ka laaj door kam ne boobu combat kenn boobu boobu combat yow wala moog liiru jàng trois mois Moussa Fage Moussa Fage mu may dégg eh, kan moo ko teg Tafa Gueye may dégg de waaw kan moo bëgg a teg bool Tafa Gueye trois mois xool état bi moo ko bëgg a teg dégg nga bëri combat booy ñaar. Euh, état bi nekkoon Pape Thialis moo bëgg combat boobu barke sama bakkan doom loolu nga bëgg xam xam nga ko Pape Thialis. Adama Diouf may nañ sa jabar ensemble tamit dégg nga. Eh, ah loolu de kontaan naa ci sama chéri. waaw Pape Diouf moo ko may. ah loolu kontaan naa ci kontaan naa ci. Eh, Pape Diouf man. waaye ko maa ngi ko ñaanal de. waaw borom papito. ndax ku ma teral teral suma jabar de moom ak na nga teral ma. non ma teral suma jabar. non Adama Diouf moom maak moom sunu combat. kan moo ko tagg ñoom Alain xam nga lan moom a gën a neex. xam nga mais Gaynde ak Yawou Dial est duñ ko tegaat. xaaral xam nga dafa dem euh, ay euh, Espagne. Gaynde ñibbisiwul ma a a combattre kii war a ñàkk ba de. Oh, kii kii boru président la. dañ ko war a di ko fokk wàccee la wàcc ñëwal ah. de. liñ ba nga waaw ah, léegi man ñëwal sa combat yaa yaa yaa euh, non combat bu la waaw ndax lan. merci beaucoup mais liir na da ngay gaaw ci ñoom ñu koo mm-hmm. jël. Mm-hmm. dama sonn papi ñu nee na xaalis ba nga koy woo depuis Italie bu bëree ba bay nag mën a mën te barke sëñ ba li mu wax léegi ñëpp maa ngi mën. la ngeen gis ci waaw waxal ak man rek nga bàyyi ñëw ci seen lan gis ci président CNG bu bees bi. président la rapidement. Mm-hmm. Bira Sène ma ne président la ku ko laal ma laal la nañ bay jàmm bi mu nee na jox nga ko sa bëri bakkan nee na jox na ko bakkanam Bira Sène nag man maa ko xam 2016 maa nekkoon euh, capitaine Kaolack Kaolack 2016 Kaffrine foofu rek laa mujj amee médaille d'argent ma ne kese maa finalu yàlla ak nag jàmm bi après ñoom caaka fay ñoom bay fay maa ngi leen nuyu au passage man rek maa dem ba final maa tax Kaolack maa tax drapeau Kaolack taxaw ñëpp nekk suma ginnaaw. man de xam naa ne coo jeebar rek bu doon rek la amee essai. yow mais li ma dugg ci. foofu rek la amee médaille d'argent. mu ngi nii nekk suñu production. ndax dafa dafa balaa ngay ñëw suñu ba taxaw fu taxaw moo tax ma ne drapeau bi kii médaille bi du ma ko lëkk suma kër. médaille dañu faa bari. mani bii lëkk ko sa kër suñu production moom laa àndal nii. mani Birasène ma fanaan naa këram. wóor na yàlla xam naa ko bu baax. man mi fanaan naa këram bon oo oh, la bañ. nañ ko bàyyi ndax mën na ndax mënul nit mën nga ko ñaax euh, seet bu sëy see sax dañ ko ñaax nan mooy tulli. gaa yi ne doo sëy mais nag buñ ko jeet a xeex. ku ko jiit ak ku bool jot a bëri sëpp ko bàyyi mu du xal. deux ans la loolu laa gis man. kon pas deux ans acca yaa Aliou Sarr Aliou Sarr. dama koy man ba doogee ñëw Dakar. Eh, laa wax naa ko. ndaxte Aliou Sarr c'est le meilleur la. maa ngi ñëw waaw li bi wuli ba waaw bàyyi jàmbur rek yow bàyyi jàmbur monsieur ko baax dégg man sama Sène la sant kon boog sama mbokk séeréer la aw ma man lu ma koy wax mooy na defar ay ginnaawam ah mu tàgg laay nga defar jaaj bi ne këpp yow taxaw ginnaaw mooy ndaxte ginnaaw maanaam ba yow kañ nga sol yére ja man sama dafa yàgg leer da ngay mel ni la wa yére wuli dama sol yére moom moom wuli la ko yàgg ci wuli wuli yaa ngi wax wuli wuli man mënoo maa wax te état bi nga yoroon su ma ko yoroon ruwaani seen baa ngi ara yaa ja wuli nekk ni man bëri naa bu nekk lu war a jëtal dama ne ndoy biram seen biram seen maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla jàppale yàq nga mission bi tey boo gisee làmb ji ak yi fii mu dem ba 2000 gars atta ñàkkal Alioune Sarr dëgg la Alioune Sarr def na fi loo xam ne lu kenn mënta def la si làmb ji léegi nag jox nañu ko pour mu nekk président CNG ne ko ñëpp jàppale ñu topp si ginnaaw ñoo jàppale ko mais tey fi image tey tey fi mu toll tey seen bu nekkoon président CNG ñu aj Ama Baldé wala Boy xam nga tey mënuñu dem ba biir këram jox gi rese mu wàññi pen moo tax bëggu moon tey seen nekk président CNG waxal benn deuxièmement Ali Sarr boo gisee gars yi attoon ko ñàkkal day aj mbir boobu gars yi dem ba biir këram di ko gressé pour mu bàyyi Ali Sarr mu ko dëgg xam nga am nga xam ne moo dul neex si man maa ngi ajoon ñu fi benn weer te keroog maa jalgati su ma jalgati loolu am kii xam na loolu am de kon boog damay ñaan yàlla comme te gars yi bëri nañ ba tekki jaaji bu ñu yàq suñu lamb. yow de xaw ma bu ñu la aji. man <laughs> sant la amitié combat bu mag ba Aliou Petit Mbaye. boo ko amoon sa kër nga am mort de bisou. Euh, monsieur le président Macky Sall maa ngi lay remercier bu baax si Aliou Petit Mbaye dafa kenn ba ngay wax Abdoulaye pour mu recevoir ma yaa waxoon naa la euh, Aliou Petit Mbaye cinquante mille la ma fay nga xëy wax Abdoulaye pour mu recevoir ma Aliou Petit Mbaye bu doon sama sako état Sénégal ñu jël ko à charge ñu ne war ko si biir dëkk fii ndax ku baax la ak ni ñu ko laaj jafe-jafe ak ñun gasoon nañ ak Serigne Bourou Niang yàgg naa tëgg combat ci président CNG la laajoon doy na. voilà xam nga lii moo tax waru ko woon ñëw donc la gisee mu wax fee dama tëdd si la xam loo ko andee bis su ma diisoon duñ su ma diisoon ko duma la jëlee yu bëri ñaari yoon mu daan benn daan benn bi xam fan lay commencé xam fu may commencé bokkuñu ma ak yow. taxaw may may leen dafa ngay continuer si lu. dafa ngay ñëw na teg ak yaaw jaar ak xam nga waaw may ko nag may leen ko nag. xam nga àdduna bu ñu nekkee ñëpp ñu déglu. waaw dañu war a déglonte yow doo euh, di gërëm sàngara Mbaye ah non saa nag yow gis nga Tapha sama xarit la Sangare Mbaye mën wax ma sama xarit waaw non waxuma sa xarit euh, mais ñëwal tey ci ah. <laughs> ne dama dem këram dal fa fanaan fa mm. bëri foon ay lamb ñu teg fa ay nag ma jël fa ñaari nag mu nekk sama xarit defal ma teraanga bu nekk Kaolack ba nii sama combat Kaolack am na ñu ko doon dox fan yi rek barki alxuraan karim sama combat Kaolack waa Kaolack bëgg nañ ko fu mu doon nii sama combat Kaolack waa Kaolack bëgg nañ ko nii mais la ma leen laaj lañ nekk di xaar xaar ndax war nañ ko fay wala waruñu ko fay waaye man ku ne xam ne ma euh, président CNG bi Alioune Sarr sama xarit la woon yàlla defal na ko jàmm équipe nationale ma dem moo ma defal teranga yàgg dem la mais Bira yàgg na CNG CNG Kaolack la nekkoon CNG Kaolack boo fa nekkee dund fa ay 10 ans ñu ànd la fii kon yàgg nga CNG mais Mouhamed Ndaw santeroon naa ko ci bis bi Tyson ndax làmb ji santeroon naa ko ci ndax jàng na xam na li muy def xam na li muy wax. Tapha Gueye. Tapha Gueye itam naa ko ci. xam nga xam nga xam nga ñoom dañ bokk ci làmb <laughs> lépp lu ñuy def rek. war na leen ci boole lan moo tax di wax Tapha sant non non Tafa Gueye dàq ko jàng. bàyyi xam nga yow Sege yow da ngay Tafa Gueye sant naa ko ba. waaw dama ne ñaar laa wax dama dama lay bëgg xam bu ma jaxase dama bëgg ngay déglu da dama ne Tyson Tyson Tyson. waaw na. bu ku may kaasal bu ma ko man bu ma wax ku may kaasal. dama ne <laughs> tey de naa la ko CNG bi. Tafa Gueye nag. yaa ngi dégg li ma la wax xam nga tax. Gris Bordeaux xam nga lu ma la wax. ki day day ambiance. yow xam nga yow xam nga kan nga bi. Gris mi ngi bëri ba léegi. mais ci laa bëgg eh. dama lay expliquer dama lay expliquer dama ne. dama ne da nga déglu ma la wax man si lamb laa ne mais xam nga bisu moo tooñ rek. yàq émission bi mais mënoon nga ma boole mais mais xam nga ñi booy wax. kii kii eh, eh, kii <laughs> waaw pardon bisu. Tafa kii la ko war a sant gërëm ko man la kii gëj nga am plateau bi billaay walaay tànn ba dafa waxuñu sama billaay dafa dama ne pardon gëj nga am plateau demandé à venir dans l'émission tu vois donc du coup arrête arrête mais la vie y' a parlé. voilà kan ma demandé moom arrête waaw. tu vas demander voilà mais laisse-moi parler. buy demandé bu bu paree di si rendu. waaye bis yaa ñu tooñ ak yaa ñu. mais kii mais kii dama bëgg ñu solution mais kii dama bëgg kenn woowu leen. mais kii mais kii mais kii naan yan toog. léegi toog rek toog émission bi toogul fu muy woowee kenn. déedéet non non non non bisu woowu kenn man nag kaay ma bisu. bisu woowu kenn dafa non ma kii kii kii nga bëgg jël mi teg ko mi wax. bisu woowu la non yow yow yow sa temps boo ko. kii daal daa mel ni da ngaa am ak moom combat kii. yaa woo bisu kii yam na la de. xam nga kii lu mu bëgg. yaa woo bisu président CNG bi dama ne. communiqué bàyyi kii dama ne man dama xalaat Tyson xam dama xalaat Tyson ndax mbëri dama ko déggoon gars yi di ko ngun-ngunee. dafa gay li mu def ci làmb war naa nekk CNG bi ku ne xam ne CNG bi mais ñu dugg leen ci mbër moo xamante ni def na ci làmb dara. foofu laa gisee ndax. Tafa Gueye ñu def tey de ko xam nga dama dama bëgg expliquer c'est pas grave c'est grave baal kii yeggali yow tamit. xam nga dama am loo xamante ni mbéy bu def ci ram dara waaw baal kii yeggali jotawu leen dara kii. Tapha Gueye non mbéy bu def ci ram. Tapha Gueye consistant Tapha Gueye def ci ram tey def ci ram. doo wax nag bàyyi kii kon leen bàyyi kii juuli yow noppi xam bu waxaat dama kii dalay déconcentré. damay déconcentré waaw xam nga tamit kii tamit mënul wax te wax lu leer. waaw yaa ngi noonu Moussa Faye li mu def ci làmb doomu aadama du ko def ci làmb ji kooku moo tax ñu tudd Tapha Gueye numéro mais dafa ne tey dañ laa gën a sant ci làmb ji ndax am na loo xamante ni gaa yi jiñ nañu ko ko. dëgg Moustapha Dramé may na 100 euros number lay laaj pour dugal ko di tam jox sa number ay ca waxal. yaa ngi déglu mu la. ah dafa nekk nit koo xamante ni. Euh, du dugg si yëf kenn maa fa mu toog mais war nañ ko boole ci làmb ji ndax ci la bokk Moustapha Gueye mii ci la bokk. waaw dafa am ñoo xamante ni ci làmb. dañ koy dundal mais duñ ko dundee. dëgg la waaw. est-ce la. gis naa ay ñoo xamante ni ay ñoom Laxa Njaay. waaw dañ dugg dugg nañ CNG bi dëgg la ndax day dundal làmb la. lamb ñi ko war a waaw ko war a dundal dañ ko war a dundal Bécaye Mbaye di lamb ci biir dundal lamb la kooku ponkal la ak Pape waaw kooku lu meilleur bu jógee ci lamb lañ koy dundal lañ koy defar ñoom jéemuñu pour yàq lamb est-ce que yaa loolu la man ñëw ma pour yàq man mi seen bakkan bi moo fa teg ndax école Bassane Gomba laa jàngee te deuxième laa yem mais tey jii doomu na université. deuxième kay. is yàgg déglu la dafa am loo xamante ni ne ma deuxième laa yem. école Bassane Gomba école mbër yëpp fi mbër yem. deuxième. sem deux bokk yaa ngi déglu man. gën a yomb de. sem deux bokk ma ne maa dama sem deux du a yaa ngi <laughs> yaa ngi dama ah, sentir. premier mooy sem deux. yaa ngi déglu man ma jaxase xool man maa sentir ñoom nekk ci làmb xam nga dafa xam ñoo xam dafa xamante ni. voilà làmb làmb dafa am ñoo xamante ni làmb dañ koy dundal mais dundeewuñ ko. loolu am na. yaa ngi déglu man tey seen man dama ko sentir ci làmb ji muy wax Bijou loolu laaj beneen question eh, mais kii itam day mu tudd déglu ma rek doomu Seex Kanta bi itam day Kéba Kandé waaw kooku ponkal la de bëgg nañ lamb ji kooku day dundal lamb waaw day dundal lamb day defal ay mbor yi da topp rek def xaalis defalu mën ak defalu mën ak Matar Ba tànn ki muy tànn waaw waaw Matar Ba kii kii wan naa Matar Ba kooku le meilleur ministre Matar Ba ay bu jéem de gis naa moo ku baax la dama dama ma daaneel ma ma daaneel. dama ma daaneel bi euh, ci arène arène nationale bi ñu tëj gars yi ngi réclamé ah, hmm. maa waxoon ñu xaaw xaaw laa ko fa sinuwaa ñëpp naan ma lambaay nga lambaay. sama kanam ma ne ba mu xooloon ma ne ko lukki lukki mën na ko yu laay fish ma ma ne ko am laay ci bi kam à def mi da bokk ci moom Macky Sall ñoom ñaar si Sing Ping foog naa su ma gënee tekki ba tey déggoo Macky Sall. yow man mais li ma la laaj ñëwuloo ma jënd ah arène nationale bi ñu tëj. loo ko làkk yow. lu mu rax ñi xaaw xaaw laa ko wax Serigne Ping président Sine laay wax ak yow. Mhm. c'est que yow bu taf li ma wax ak yow ni ngay wax tamit deux. li ma parce que li ma la laaj yow loolu ma ci jàkkaarloo président wax ak moom trois fois champion d'Afrique am occasion Serigne Ping wax ma ne ko ñi xaaw xaaw. <laughs> luki luki bi kam à part mi na nga bokk ci man doon faget mi ma bay. non kii. xam nga am loo xam ne lamb la. lamb la di di déglu ma. lamb laa bañ nekk man ci lamb laa yor kii kii ragal kii. <laughs> fii lamb laa lay wax. Mm-hmm. si si bi président Chine la. maa ko waxoon China China. man maa ko bàkkoon ñëpp jox ma la may lambal. waaw ña ñëpp ñaan xam nga xam nga <laughs> déggul xam nga xam nga bisu bisu. liki liki ni waaw ñaaxa waaw ñaaxa. waa xam nga arigato. <laughs> yaa ngi noonu plateau bi noonu am na loo xam <laughs> ñoom maam seex maa leen ziare ñëpp waa Japon maa leen ziare maa dama ne. xam nga Xi Jinping ñoom Pape Ndoye ñoo def ma lambaay nga lambaay biir mu ne dégg ko dégg loolu man ma làkk ko ne ko. ne ko ñoom jokk yàgg si wax ne ko ñu xaaw xaaw. mu ne ma ñu xaaw. mu ne ko you like fish mu ne ma yes mu ne ko am like chicken. ne ko become a part of me nag bokk si man doon fegen bi ma bàyyi. ay very happy don't forget bi bu ma fàtte. waaw waaw waaw bu ma fàtte bisu yow nag da ngay cotiser da ngaa jàng xanaa yaa dem la léegi. deuxième moom yemul deuxième quoi. man deuxième laay fayee. non Ba Mbacke ma ne bi nga fa mi nga bokk. mais gars yi saa waay dégg nga wax la yaa ngi dem bi ci jour bi toog ci jour ma ne fay Sall toog. gars yi ñoo ma catu ñu ne ma booy génn. nga ne ko jën nga man ginaar waaw. ma ah, ne ko yu laay fis mu waaw ma am laay. am laay chicken ak chicken mooy ginaar ma Wiz. Marème bu déggoon loolu woo la. maanaam seul bu ko déggoon rek àdduna tukki. <laughs> mais xam lu war a loolu xam lu war a loolu dama ko bëggoon wax am nañ gan. CTP moo tax stade bi def si xaalisam kon su ma làkkee olof du dégg li may wax moo tax ma làkk ko anglais ne ko ay very happy si yaa ngi dégg fi ma yu laaj fii ñëpp xam nañu jën nga bëgg. président da leen seetaan. waaw mu ngi seetaan moom moom. sama abiage la. noo ah, non dëgg la ndax yow yow bisu ñëpp lay seetaan ci àddina. Mm. yow président États-Unis sax mu lay seetaan nii. Mm. Mool Géet mu lay seetaan. na ma ponkal la rek. waaw mm. xam sa la gisoo ma sañsee ni moom laa sañsee. non fësee de. sañseem laa sañsee tey ko. Ah, mais nag wax dëgg yàlla xam nga. bisu <laughs> Papa Ndiaye coppe ñëw kii. Papa Ndiaye dë dë dëglu ma. waaw mais mais gis nga Tafa Gueye. waaw yow dañu la laaj ci man li ma laaj. yow ñii saa bi la ba xam war nañ ko yéen gis nga ñu war koo tëj wala ñu tëj ko léegi ba léegi toog ma ci noonu yéen war ngeen a bëri daal ci corona bi. ah mais xam nga xam nga déglu ma war nañoo war nañoo bàyyi bàyyi musée yi tëgg di liggéey te ñu mos ñu waroon na ñu fàttaliku a mos xam nga mais xam war a mos bisu xam nga dañoo war a mos soirée am na fi soirée am na fi ay coow am fi soirée lu am na fi waaye ñun dañoo war a mos tuuti takk sër wëndeelu. Eh, soirée bi ah commencé am yàggul

non jox nga sa benn bakkan. président CNG bi si sama bakkan laa jox d'accord naa jox ko bakkan. kii daa amati bakkan bu joxe non nit ku baax la. amatul bakkan bu joxe de. jabaram daal xamoo ko. bisu mu ngi yóbbu temps bi. vraiment na. bisu bees bayee. boîte yi nga xam ne day xat xat xat ñu fay def musique parce que stade bi mën nañu fa ubbi tey lam no lamb sax ci yoon man li ma d'accord lamb bañ a tëj parce que lamb depuis le mois mars kañ nga lekk sa avare ma lekk sama avare ba léegi mënuñu ba léegi woon na si miti na quoi bi day wala tala di laaj appel le ministre des sports Matar Ba ku baax ku baax ak ko gore kooku amul borom ministre de l'intérieur aussi Aliou Antoine. Antoine Félix Diome. kooku ak Adama Ndour bu Fatick ah, la. Adama Ndour bu Fatick. non Antoine dina war a ubbi lamb ji maa ngi lancé le ministre wax waxtaan ni muy waxee bu ko naawee mën na d' accord ko man na kii ñu bari quoi. wuli wuli ba jàpp kañ man mënu maa jàpp kañ. non bi laay wane tànn lu ma doon dama ko imposer. ba oh. Sénégal yëpp dégg ma. waaw léegi euh, yow président yow sa fay ma njëkk dama dajeeg moom. mu yëkkati ma. d'accord Amadou Sall yàgg naa kaa def loolu soit bi. mën a doon ndax ndax gore. waaw ah. gore la. dama koy ñaan mm. mm. liggéey bi yàlla réussir. Mm. ëpp euh, Alioune Sarr lu am si euh, lu ñu koy vingt ans xaw ma ans moom yàlla am quarante ans ndax sama mbokk séeréer ndax lamb bu gënee lamb séeréer moom lamb du neexee dégg nag kin foogum man na séeréer bu déggu séeréer laa naan fu mu doon nii Jurbel laa juddoo Jurbel nekk booy taxawul xam la karma kon ma koy ñaanal yàlla CNG bi xam ne gàttandoo ko na ko Sénégal ñëpp jàppale lamb ji mën a neex mbër yi nag doon at ñàkkal Alioune Sarr ñoom ñu ne ba xam ne ni kat ak ñoom retraité nañu gars dégg nga dégg nga maa ngi laa waxee de. ak yéen dëli. yaaw non non dafa non dafa non man ñu laaj parole bu leen di soo paree na laa de. Mhm. ñoo bokk li sax 2004 laa commencé dugg si làmb ji. muy xuus yaaw Ablaye Wade yaaw Ablaye Wade ñu di bëri grand combat muy bëri premier combat yaaw jàng muy ibbi baal bi yàgg ngeen loolu. léegi la neex ñu ne ñu may atta ñàkk. archive bi mu ngi 2STV tey tey tey su diisoon bisu roi sama koñ Pikine ñu nuyu la Ba Diallo ak Pape Diop Boston ak bu Dior euh, Père Touba bu Dior ak Birame Ndiaye nga xam si làmb teg ma si loxo Pape Diop Boston man kër bu la amee audience ak Ablaye Wade man Pape Diop Boston kañ ba si Ablaye Wade te lépp à cause de Macky Sall à cause yi di ma xeex di ma mu ma yox ne ku ne ngooye ngi garko gi ñëw ba sama biir nopp na ma yaaw ma yaakaar ma ne yàq président mi ngeen nii man ko bàyyi muy dem ko xool bu dee ba saa loo ko premier bu ma nee nii man ki dafa neex ay tànk bisu bisu bisu ma chaque jour non bisu ba ko ni la ngeen la ay mur million ngeen ma ci yaaw bàyyi na sama lamb sama wax dul neex man damay teg sama sart dama xuus ba Sénégal yëpp dégg ma man. léegi stade stade bi nag. ah stade stade waaw non stade moom damay ñaan yàlla. waaw li lay wax fii monsieur le président Macky Sall non damay waxaale de. damay waxaale ndax su ma demee. waaw waaw oui moom moom ñëpp xoolal. ay maire Faye Sall. waaw waaw circulation bi. kon nekk stade bi waaw ci stade bi. non stade bi dama siy ñaan yàlla. Mm. xam nga kër ñu man dama leen bégaloon kër bu ñu ibbi arrêté euh, national ndax kër bu ma xuusee tuuti. damaa gën a yëngu ba confrontation yaa ngi gis. kër bu ma xuusee. non baa fi baax na. kër wér nga. di déglu woon keroog moo poussé. Lamine arène nationale Samba maa ngi koy gërëm de. Macky sa état bi ñu ngi tàcc di ko ñu ngi naan tàcc. xam nga émission bi 10 minutes moo ci des. waaw non la si ili des. bis émission bi tey mën naa gën a neex man damaa bokk si TV bi dama ne yow bokkuñu ma ak yow man mbiru comédien laa woon si Ablaye Wade. bilaay mën naa gën a neex yow nag da nga bëggoon fay ak sa ay millions mu cóol nga bëgg indi affaire comédie man bokk ma ak yow. man ko bëgg a man nii laa mel. d'accord merci man nii laa mel da nga may nangu. waaw nii laa mel maa ngi bokkuñu. Adama bàyyi ma ak samay comédie bàyyi ma ak samay lamb combat bi waaw xanaa waajal ko ni ma doon waajal combat yi rek. di sant ñi ma jàppale. ñi nga xam ne ñu may jàppale. balaa ngay ñëw non non waajee nan nga ma waajee mooy maa ngi entraîné. ba ban nga tellement quoi ndànk rek dama koy oyofal quoi parce que loo xam ne xamoo kañ lay ubbi tas mbokk bi <laughs> mënatoo dem kër kenn. da nga am di tax pour bañ a dem kër kenn. parce que feebar yi nañu bu du dara sax ñi nga xam ne suñ patron yi sax bu ñu fa dema léegi dañuy laqatu. ci oto yi la ñuy yem. man léegi garde rapprochée laay def. mais yéen ah. mais da ngay dem sax doo bëgg a gisal rek saa yi sa doom patron sax da ngay yokk su ndànk rek chauffeur bi yóbbu la wala nga nga jël oto dem sa yoon parce que feebar bi moo tax feebar bi nag vraiment war nañoo dimbale jóge fi sonal nañu. métti na de waxuñu feebar bi non non wàcc sama kubaag yow. li ma wax rek. wax naa la kay li may wàcc sama kubaag wax naa la ko maa ngi entraîné mais l'essentiel laay def rek. man maa ngi entraîné bu baax. waaw yaa ngi en forme yaa ngi en forme gis naa la. di la parce que xam nga la moo tam. non man kay man lan la mën a tax gis nga man moom man moom. wax naa la ko de man policier bi moo tax waroo dóor policier kii mu ngi dem Mbapat doo dem Mbapat daan ko comme gis nga ne yaa ko bu dee yow lenn rek moom mën a tax dóor ma nga dem sa kër googu fu ko ko ko wóyaale. doo bàyyi nga nga nga vraiment am kër. ba ba ba ba Basirou Ka. waxuñu yaa ngi jël suma wax nag. ñëwal ci combat ma taal ko conseil ma gërëm baax ak fay. borom bi bu lay bokk. de gërëm microcentral. Jean. Ngor waaye ma ñëw. ah ok maa ngi boobu. combat bi maa ngi pour man dañuy waaj tàggatoo moo tax wax loolu la. combat bi man maa ngi koy waaj bu baax. xam nga la moo tax. Adama dama ko jël ñu bari ñi ma xamul. nu mën a moo la mën. non dama def li nga deful nag moo tax rek non parce que sëñ Bamba. ñi ma boreel boreewoo ak ñoom nag. man benn Yékini Junior. waaw. Sa Thiès. waaw. Diène Kaïré. waaw. xajal la. non boo gisee man Massi la sax xam nga wuli. kenn mosul a. yaa ngi koy wax kenn gis na caag booy bambara. ah waaw. non champion nga sax champion nga xam nga li tax champion nga di nga bëre qualité bu ne. yow ñaari victoire nga am ci salaam. d'accord moom dafa taxaw mais bi ngay bëre combat yooyu bon maa ngi tëj dambu dambu bi. ay ndaw la bëre maa ngi ko tëj Sénégal ñoo ma bëgg sax. du ma yóbbu ci ay. non man yaa def sa bopp comme ni dama am personnalité ma gis sax. mais ki mooy wax kii loolu bàyyi kii wax rek mais yéen. non non ñoom ñaar. non maam Cheikh damaa ko ziar borom moo tax yaaw jaar mi dañ ko woon a bay parce que barke. yow yaa moom plateau bi yow yaa moom plateau bi yow yaa ko invité. wuli maa ngi nekk champion di la nekk SR. kii di kii pourtant ne président may ko kër. état bi nga jox su ma koy ñàkk ma kër barke dëgg yow doo ko dégg yow. kii di ba président may ko kër. yow jaa mi ngi président doon. bokkuñu ma ak yow. maa ngi nuyu sax Waly Albert. Waly Albert nga xam ne Abdoulaye Wade 100 pour cent la su ma doon ma ñëw. Waly Albert ak ak. Euh, bokkuñu ma ak yow. waaw Fatou en tout cas maa ngi ziar di ziar waa Zane Ba. xam ne tamit. non eh, kii maa ngi wax may daga sa sa sa fulla ak sa personnalité bi xam naa da ngay fàttali que say nawle mbër nga fi toogal. non ñii ay mbër lañu. yow yàlla doon na doon boo joxoon ñii ay mbër lañu mais. nga nag say nawle mbër nga fi toogal. donc jarul ñuy xeeb kenn. merci beaucoup. xeebaate wu na. mais li xam nga tey ñu ngi ñëw ku ne sol damaa ngi sol trois pièces ki sol trois pièces yow yaa ngi dem sànq da nga doon simmee sol te version bi nga def. lii la sant mais moom ngeen la sant costume bi nga fi sol sànq. gars yi dañoo gis lii gis lii sax. xam nga xanaa moom day fàttali non kii kii def kii dafa bëggaat bokk. waaw merci beaucoup mais nag moom moom mais kii kii kii. même kii daa bëgg a bokkaat kii all star la ci game bi kii combat bu ñëw doon bokk. bi daa dafa neen da nga demoon ndox ba da nga bëgg bokkaat. da bëgg a bokkaat ndox ma la nekk waaw man may liggéey yor saal. non waxuma liggéey. ci lamb ji laa wax. wax la kii man bu wax la. kii moom kii na ci benn sëriñ nag laaj ko de dem ci benn sëriñ ñu mbakk. mais wala mënoo bal yow tontu rek ay merci beaucoup rek waaw. man damay kii moom émission bi quoi. man damay jaay suuf ak béton ba pare ubbi naa site internet wuli info ah merci yàlla amit caméraman lépp waaw. xanaa Lamine moo la dugal ci formation. Lamine Samba waaw parce que nit ba ne il faut que ñu. ak sa drive bi lan nga war a wax moom la ñu dégg. xam nga yéen yéen a yàq non am ñu may jàppale. di gërëm papi dama siise. d'accord comme yow léegi patron de presse nga coow li nga xamante ne Lirou jaan am na ko ci ak kooku doon téye micro bi di wax. d'accord ma xam nga man kooku woon na ñu ngi may am tous les loolu buzz la wala émission la non li li li aussi dama koy xamal ne ko il faut mu xam nu muy waxee mais doo chaque jour nu dégg la micro ngay wax. te eh, moom moo ko def ah déglu ma. moom moo def gis naa nga koy faral keroog jarul nga koy faral. bii mii bu ñu ñëwee ci bi am na nu solo mën nga am droit ne ko du gis naa ngay attaqué femme moom moo def lépp. waaw loolu laa a wax. Euh, je t'arrête tout de suite Adama. Mm. maa euh, maa ngi wax xaaral ma ñëw jeex na maa ngi jéeglu. kii dafa am man gël bi woo na ma. xam nga dama duma dama bëgg def ak yow émission benn kilifa moo ma ko paas man nag kilifa bi dama ko rus mais yooyu affaire buzz yooyu dama ko nangu. mais est ce que loolu buzz est ce que gisoo ni tamit. non euh, dafa nekk euh, liiru waa xaaral ma ñëw est ce que liiru deful erreur aussi. parce que bu mag moo mm. la jigéen la du dëgg. Mm. est que amul waruñu woon waruñu woon est ce que woon éviter wax ji egg foofu. moo na ko éviter man bu doon man na. Mm-hmm. du àgg. mais yow patron loolu bu fekkoon loolu pare nañ ba pare ba def ko est ce que di nga ko nangoo dugal sa. merci non. kon léegi patron de presse ñoom ñëpp. dégg naa war nga loolu keroog ah, dégg naa ki moom site bi. Mhm. damaa dégg de. Mhm. dama accident dama damaa dégg rek. Mhm. ñu ne ki moom site bi moo moom moom visite bi ñoom dana suufee seen théâtre ah ok mais li daal war woon na nangu ay théâtre mais nag man ni ma déggee soxna si mu wax. gaw ma mise mise en scène bi naturel en fait. soxna si man. woon na ma ne ma dama bëgg ñu def émission mais pare danga may door. ah moo ko man c'est pas la man man man ma dina. waaw mais loolu lu ko fi jar. te jar ko man. site internet yi il faut mu invité man ne ko xool ma ma ma ne ko dama ko naan bisu. appel yeegi jaxase. appel yi les charrues et parce que am na yoo xamante ne. dëgg la xaaral ma fii appel xaajatu fi. Euh, du dëgg parce que tamit mënatuñoo jaxase aussi li nga xamante ne moom mooy charrues yi ak bëy yi du dëgg. Euh, euh, liggéey bi dafa am yoon. dafa am lu muy tëddee. donc ñun ñëpp dañuy def ay erreurs mais ñuy setaan xam nga tey jii boo toogee ci télé di wax am na ku toog këram gën la maîtriser sujet bi ngay wax. Mhm. te toog di la déglu. donc aptitude en travail d'équipe ni ma koy waxee. Mhm. ak euh, euh, euh, mën a mën a mën a mën a scotch nit. aska mu lay setaan. Mhm. dafa am nga am fasaaxa teg ci. dafa am loo xamante ne da koy da nga koy da nga koy tarbiya da nga koy jàng. tarbi ay ay teggin la. émission day am conception. donc bëgg buzz. ñetti fanu internet ku ko ci munta ku ko ci ñeme rek wax dëgg yàlla jàpp naa ni kenn ku ci nekk lu la neex war nga ko war a mën a def du dëgg donc nit ki boo xalaatee ni que am nga ay famille am nga ñu lay toog di xalaat ñiy saaga ndey da nga am ñoo bokkal sa ndey dafa am ñoo bokkal sa baay donc télé dafa am luñ ci war a wax ak luñ ci war def. ñun ñëpp dañuy def erreur ay nit kese lañu. <laughs> mais def erreur bu wax dafa nànk. aléa du direct dafa am fu ñu koy waxee. Mm-hmm. par exemple suñu émission bi direct la. Mm-hmm. li ci xas ba am am na jàll na. Mm-hmm. Karajo mënu koo dagg. Papi mënu koo dagg Bruno mënu koo dagg. ci direct la. waaye loo xam ne yéen a toog waxtaane ko. jàpp naa ne émission boobu waroon nañ cee war a mën a dind lu bari. lépp la ñu war a dind loolu yëpp dara waru woon a parce que pour respecter téléspectateurs yi. parce que YouTube nag télé mbedd la. lu waay neex. ndaw si li mu wax mais ma Karajo dina ma élément bi bëgguma ñu def ci focus. dina ma lii du dëgg dina ma lii bëgguma ma eh, lii bëgguma ñu def ci focus. du dëgg dina ma lii. Euh, franchement euh, sama émission bëgguma ci lii. kii nii dafa am euh, personnalité. tënkal ci li ci li ci liiru bokkoon moo tax. non liiru liiru man sama waay la promotion ci sama. man woo naa ko ma ne ko liiru daanu nga xam nga la moo tax. Mhm. biisu booy wax chaque jour ngay wax ku ne dina dëkk nekku teg la dof li li yàlla naa ko doo dof nit njaay nga buy nangu këpp ku jóg bëgg la def dof def la comédien buy bu yeggee Sénégal yi ñoo lay mere man du ma nangu ku jógee fee xaw ma la xaw ma man chaque jour li may wër ci si ëpp na fukk. non man kay kaay ñu wax kaay ñu wax man la non waxuma parce que barke Mouhamed gël boobu bëgg na dafa dafa man xam nga lan laa ko. man du ma wax man ko da koy def kon ci sama site bi. mais jërëjëf ñoo mooy woo parce mhm. que dama am mais Lirou war nañu war nañu da may fay. ndax xees ah. Ah. Ah, ko a a la mhm. ay kese lañu. ay nit kese lañu waaye du liiru bu sañoon lii mu lii lii xew. non da koo naxal xew non kii. Mhm. Euh, soxna si tamit wax dëgg yàlla bu sañoon tamit. loolu waaw liiru dogguma la am parce que moom tamit jigéen la bisu te elle est appelée à avoir. bisu bisu dogguma la donc bu mu ñëwee avant muy toog ak man ba defal naa ko ma sikki la lii am am na. d'accord bu fekkee ni kii ni mu ko waxee. noonu la amee. Euh, daf ko woo pour def scénario loolu bës jaru ko laa wax. man wala ma pour génn télé loolu bës jaru ko pour toog ci télé di wax loolu bës jaru ko téléspectateur ak sénégal yi kenn moomu leen tey suba ñoo lay xas ñaanal la. bu subaa ñoo lay tag ñoo lay tamaat dem est-ce que yow mos nga ma gis da a nekk ci benn ligne boo xamante ne ñu xamee la ko chaque jour ñu xas bijou dafa soof dafa yabaat dafa deew dafa nangam sa liggéey xam na boppam waaw kenn kenn ci lu ñaaw parce que nit du juum di nekk ci lu ñaaw soxna si bi muy def loolu amaana jubluwu ci lii mais ki ko génne na waroon na xalaat ni ko am na yaay am na am na am na ay doom am na leneen ak leneen loo xamante ne jigéen la lu tax ci moom parce que tey jii euh, euh, euh, liiru jaan il n'a rien à mm-hmm. mais soxna si tey jigéen la am na yoo xamante ne wax dëgg yàlla waroon na ci dawal yërmande bës yaru yenn nañ ko gis man gën mosuma gis ci ñàkk fayda ay youtube parce que chaque jour aussi ngay wax di wax ku joog ne laaj la nga wax bu yeggee gis nga boo waxee lu bari foog nga def erreur li jàng wax naa ko naa ko il nga yàgg moom a yem waaw système am bu muy def la du question de loolu. man nekk ma fi pour faral Lirou Diane wala pour faral soxna si wala pour faral kenn. Mm-hmm. waaye kenn ku ci nekk ak façon bi ngay defee. Mm-hmm. am na ñoo xamante ne dañ naan la bijou amoon droit dalal ay ay ay ñoom nit mm-hmm. teg invité naa fi ay ñoom Pawlish Ouzin Keita ñu ne aw droit dalal leen. te Sénégal fii nii kenn ku ci nekk. te am na ñoo xamante ne bëgg nañ ci ñooñu. leen li ngeen am ci ay vues dalal naa fi ay kilifa yoo xamante ne nee nañ ñooñu ñooy nit ñi ñu respecté ñi ñu war a dalal ci télé te nit ñi seetaan nañ leen niñ leen war a seetaan waaw li nga wax dëgg la euh, fii kenn ku ci nekk na nga respecté sa morom mhm. foofu la ñuy tax am na solo trop respect mutuel boobu lii ñu jaar nañ koy def rek man nag su ma doon mooma parce que tey Adama mi ngi wax ba jël exemple ma ne ko man jarul ngay jël exemple ak man ci wenn parce que am na ci sama yeneen morom yoo xamante ne ñi ngi nekk ci milieu bi ñooñu ñu nekk ay journaliste mais aimé wuñu loolu parce que ñëpp dañ leen di tuddee ay journaliste dëgg la képp ku téye micro tey journaliste dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la donc ñi ngi def ay erreur à chaque fois xamuñu ñan ñooy ñan ñan ñooy ñan parce que loolu day am lamb ji léeg-léeg ñu juux ci nga leer na ne yaaw mii du mbër dafa rax comédien loolu la demee bi émission bi wax na si Mbamba. Mhm. ah bu ñu a. dépassé man Mbaye waxul Lirou Diane néew fi. Lirou Diane néew sama combat ak moom la daw. ma dal la kay de ma ñëw bisu. parce que dama leen di seetaan. Aïcha yow ñëwal ci li nga doon wax nga ne doon eh, fii fii kii nekkoon nga tëjaale benn yoon parce que émission bi jeex non comme li ma wax man comme li ma doon wax maanaam tey. Mhm. bu ma doon def ak nit interview. nga ñëw toog ma gis ni nga toogee dama lay naan lii mënul nekk wala ñu bàyyi du ñu àgg bay wax bay waxante yenn yi. Ah parce que boo xoolee ñoom ñuy njëkkee toogee toogin bi rek jéggul garab kenn du ko yeggee ci kaw. te suuf nga ko yeggee. fii balaa ñuy def dara fee la ñu toog. amaana jóge fañ toog fii. dëgg la lépp dañu commencé ñeme ndax gis nañ toogin bi. mais bu ñu commencé njëkk a toog rek tooguñu rek def distance. dañoo toog nii nii nii ndaw si am na mu toogee. kon nag wuli vraiment waru leen àgg foofu loolu dégg ko wax keroog. moo tax man la ndaw si gisu man sax de na dara. parce que def na du ñaaw a ñaaw mais. li wuli wax ay mbéj mag yooyu noonu mën na ñàkk pour bañ a man moom loolu. wuli ba ba ko man sama àdduna ñu ngi laaj sa numéro de sama sa numéro yow. Ah. waaw samay xarit yoo xamante ni. Euh, ñi ñi ñi moom xam nga ko 77 léegi lu sax nga war ko nga war leen koo jox dama ko am fii <coughs> de kii bu leen ko jox de yow yow sa sa moo gën a wóor numéro yi. 77 nga war a wax sama numéro xanaa man amatuma gémmiñ ay waaw jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo waala li may tàggatoo mooy di la gërëm di gërëm jox numéro bisu ndax DSTV nag du télé bu ndaw télé bu mag la télé télé boo xam ne ñëpp a koy seetaan adduna yëpp man dëkk balaa demoon mhm. mais bu ngeen ma woowee dama déplacé wu am na soxla bu ma fa bàyyi sax mais dama ñëw di gërëm suñu production bi ma àndal nii di gërëm docteur Makoma Diouf di docteur Moïssa di docteur di nuyu di nuyu euh, Adama Ndour mhm. di nuyu Moussa euh, Ndiaye dégg ma Assane Gaaw non mais da koy bàyyi yaa moom télé bi ah. doo bàyyi na ngir yàlla waaw yàggalil ah mais nag du plateau laa mu ne pour yooyu ñu xaw waaw xam naa ko loolu mais am naa droit nuyu ñi nga xam ne ñu ngay jàppale mënumaa nuyu ñëpp mais maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan feebar bi fi nekk yàlla jële ko fi comme yàlla moo ko fi indi yàlla jële ko fi pour ñu mën a dellu ci li ñu ñëwoon affaire yi métti na boo gisee ñuy tudd ñu war a tudd yëpp biisu mboor xam nga ne bu corona bi xëy ba léegi benn mboor segul yàlla dañuy diman dem def euh, formation garde rapprochée man nuyu ah, ah. école COFAX ñoom Assane ak Ousseynou ak ñoom waaw dëgg la ndax liggéey boo ca nekkee da nga ko war a liggéey liggéey bu mujj ayib Mm-hmm. waroo ci tañax tañaxee nii rek am na wax boo wax léegi wax bu am solo la mm-hmm. moo tax ñu dem jarañ ñu ñu dem gaa fay suñu xaalis pour def loolu jël fa taa bu métti de formation bu métti kon nag ñu nga xam ne may gërëm directeur numérique ak yaayam Sofi mm-hmm. ndax moom moo fayal formation ma dem day formation ba def ko ba yàlla dogal ma nekk ci parce que nit moom boo nekk ci benn biir du wéeru ci benn biir rek parce que demoon na ay jëme jamono bi ak salaam ba di jàpp ci lamb man maa forcé waat mais soo benn mbokk taxaw ñangul woon ma demaat ci lamb ma forcé waat bokkaat tey ba may daan. mënoon waaw bay demaat bay bëre. mënoon nga bàyyi mu sedd. mën nga def lu rëy ci lamb ji loolu bugg a seey. man ni waat. day gën a nag mën na jël. door door mu xam bi seer. waaw non non loolu mën ko seer sax ndax loolu. loolu loolu na. day loolu passé na ba ñëw daanaka ci ay combat yu métti Yékini cinq millions yi mu tegoon fi ci lamb ji maa jël catégorie poids dem lak ma ngi dëkk docteur Makoma ma la li ma li ma mën a def kii mënu ko kii da daal eh kii mënu daal kii mënu woon kii may naa 14 bu ma nekk sax mais daal. sa taay nii waroon ngaa bëri ak ñoom Balla forme bu baax Modou Lo 2007 la dem for la dem regroupement équipe nationale. woy ma dem regroupement équipe nationale. catégorie bu ñu doon xiisu catégorie boobu doon bëre. kii ragal la yow ma soo bëre. a lourd. poids lourd. ah ñu yàlla la lan laa doon bëre Souleymane Diorel ma koy gërëm. di di di nuyu Samba di nuyu ñëpp fàttewu ku ma fàtte rek nga xam ne sama xel moo toll noonu mais fàttewuma kenn Angèle Fall Mbayang Fall xaar kenn fàttewuma kenn di nuyu Mboy Sarr Souleymane Dioral yow ñu ngi ñëw ci yow ñu ngi ñëw ci yow mani léegi yow tàggatoo bàyyi parfum li may Euh, maa ngi ziar. bàyyi bàyyi Tamsir fay ma ko nuyu ah, aussi may ñaan bàyyi leen ko mu yëgale nag mu bàyyi leen jàpp mu Espagne jox ma parfum nga xamante ni yéegal ma Pape Pape France maa ngi koy nuyu bu baax a baax Pape France ah, sama xarit bi euh, la monta bi xoolal mais ma monta d'accord waaw bàyyi kii yëgali bàyyi kii yëgali di nuyu As borom Ndukumaan di nuyu euh, Mouhamed borom Ndukumaan tamit ah Mouhamed moom kuy dem Kaaba ga dañu Seydina Mouhamed xam naa war a Denis baal naa la dégg <laughs> maay wax de non yow fi mu toll nii yow waxal rek mu jeex damay jël àdduna gépp ndax lii dafa neex nga toog ci télé ku ne di woote ñi dina may ay ay malayka une semaine dina may ay ay teranga def ay teranga parce que nit ay nit kese lañ ñooñu seen xol sedd moo tax ñu def teranga ji bi mi nga xamante ni Jibi Ndiaye mu ngi bëgg a wax ak bisu mi mais instant bi may woo mënu ma ko jël Jibi Ndiaye euh, yaa Seyda kër ga xale ya euh, li ko dalee Zac Mbao Faas ba fépp maa leen nuyu di nuyu Abbas. Massa Massa Amina Komiko. yaa ngi dégg lu mu la awa seexu yàlla yi li nga def. ndox laay naan. mais awa seexu yàlla yi li nga def ndox daa neex di. déglu ma eh. yee. si mu xam nga yow. waaw bàyyi ba ma ne li ma la mën a wax moom li ma la mën a wax moom sama combat ak Liru Jaan sax naa ko jaar fi Mbako ndax dafa daw dañuy bëre ñu waxtaan ci am ku ñu waxtaan ay kilifa ba teg ko ci kàddu mu ñëw fi mu daw waaye Balla Gaye moo xewle loolu mën nañ ko comprendre non tey moom waaw mais déglu ma déglu ma woo woo xam maa ngi gërëm ñoom ja eh ay waay wuli da nga ñëw da nga ñëw ci yow moom moo lay invité da eh, sama waay bi nga moom mi la yàq nii di la wax naka sudul noonu waaw moo ne ma yaaw nag ñii bu ñu wax da a gudd nag santal ah, man daal damay nuyu waa kër ga gaay nag ndaw mm-hmm. jibi caam mag mi xamante nii mu may woo nii na ma jox ko bisu Viviane ay ñoom ummi secrétaire bi nekk salle bu dëkk Pikine borom Pikine ak ak sama rak yi ma am euh, samay xarit su ma limee juum waa Salba waa première heure deuxième heure waa musculation Malick coach Malick coach Cheikh adduna wër nga këpp nag di ko may le fils de Ber Boy Boy Naar Fall Demba Fall. ok yow daal rapidement waaw man nag maa ngi nuyu yow daal yow daal yow daal yow jàpp nañu ko bu ma lim loo juum. bas non non mais yow tamit bas borom dara dara dara bëri. waaye loolu yëpp nga xamoon kii man xam nga waaw dafa naan tamit xamoon kii ma kii sama Adama. waaw ñoom laay jéeg ñoom borom Adama moom xam nga du benn. ñoom sama Adama moom xam nga sama kii la man. Adama ah, man maa ngi mais bi lay bisu dama lay seetlu yow yow nga ba pare kay bas moo ci des waxal bas bi dafa nekk Canada. ma jàng ko bëri mu jàng Canada bëri yow maa far jërëjëf. waaw grand waaj yow moom bisu mu woon nañu. grand waaj Fall Adama yow moom yow man maa ne ak grand Aziz moom mënut a ñàkk ci a ñàkk si kanam laa ko jël appel yi. sama da bari na téléphone. di ñaan yàlla si Abdou Karim di ñaan waa Barke Serigne ak Mouhamed di nuyu waa Are Yaaw Diallo waa Pikine waa Danifor sama clando yi sama tata yi ñëpp maa di jaay nag ndeysaan père Balla Gaye nga xam ne sama père la woon nag xam nga ñoom père Balla Gaye a bëri ñoom waa di sax nga xam ne Youssou Ndour bu ñu yóbbu France mbaag mooma bokkoon fool am na loo xam ne jarul wax RFM laay laxe la Mouhamadou Soulaye Saleh man yaa wuja maa ngi déglu RFM xam du yàgg dëgg la kon am na loo xam ne ñu maa leen sant baax di leen gërëm bon Djibril Wade président ASC ñaari tali ñoom it maa leen sant 2STV bi yàlla na réussir si dara ji si dinaa wasalaam Aminata Miko 2STV mooy suñu télé Malick Thiandou ma nga baal ma rek Malick Thiandou xam nga baaxul dañuy liggéey rek maa ngi nuyu waaw yow jaal baax na non. ki ma sañ si laaj woon yow daal non da ngay toog ñu wax ak yow daal yow daal micro voilà. waxal yow rapidement waaw na tëj micro yi. non mais yow da ngay gaaw yow tamit. ki ma sañ seel seex top. rafet na de. géej waaye ak mën a ñëw seex top. bilaay seex ñëwalal bisu ñëwalal waa ji. di di gërëm. waa ji xamoo turam. baaba baaba big taf. di gërëm di jam daabo moo ma jox bassin bi ku baax la di gërëm waa Baye borom marché aslam parfum waa Baye parfum ñu ma jox ay parfum oud yu seer ma suñu ay sponsor lañu Baye mooy wax xadi càmbe kanum moo kanum xam nga man bokk maa ngi di gërëm Cheikh Mbaye mbay Mbaye Mansour ku baax la di gërëm Farba Ngom député damay jàppale Farba Ngom doom sama xarit la. sa yoon nekku ci loolu. <laughs> li gërëm mm, Mamadou Ngom ñaan daas mi des sport ak. waaw sama daas soxnaam Okan sama xarit ma soxnaam lu ma ah, bëgg dama koy defal. di gërëm Karambooj ak soxnaam Karambooj ah, léegi woote na. Karaam Mbooj maa ngi koy gërëm ak sa soxnaam Fatou Mbaye di gërëm Baye Fall doom de Karaam Mbooj di gërëm Abdoulaye May Sawali Jon di gërëm Abdoulaye Mbooj magam ak Naar Mbooj magam di gërëm am oto am ah mais Kara ñaari soxnaam de ci boole Zara kii keneen ki tamit non Karaam Mbooj benn soxna seen soxna Cheikh mu am ñaar non sama xarit ba am ñaar. karam boobu ma ko wax bay sapa sapa bu ma léegi may bay sapa sapa sama xarit maa koy gërëm. la di gërëm sama groupe whatsapp bi. lépp sami de wulli. ña fa ne ñëpp maa ngi di gërëm. di gërëm bu dunaa ma laay Maroc. di gërëm sama soxna. wuli bu ñu basé woon ci di gërëm bay joo ak Amina di gërëm di gërëm Lamine Samba non bii sëj moo la def star de. moo def star. xam nga ñii man ci teel laay liggéey. yow bul toog Ousseynou Khoule laay wax teel laay liggéey Maodo Khoule. jàppale ma ci boobu ne Ousseynou Khoule man moo Khoule. man dama liggéey télévision laay liggéey. man man bokkuma ak yéen yow yaa xel yow moo nekk ci. très Ousseynou Khoule mënu ma ko bàyyi Modou Khoule mënu ma ko baax. waaw waaw d'accord Mamadou Khoule mënu ma ko baax. maa ngi tële maa ngi tële waaw loolu moom dëgg la. Lamine Samba di gërëm. mi ngi TFM yow tamit. di gërëm waaw kii di Estar. mais Estar bi waaw. foo di gërëm dimanche. di gërëm Jamil Samb. Jamil. Samb Jamil borom Nour la ju. Jamil. waaw mais tey mu di xalaat woon émission bi. di gërëm sëñ Ñang. man maay tëj man maay tëj. di gërëm sëñ Ñang di gërëm. wul bis woo ko ne maay tëj. Bijou Nen da la ko wisal loolu wisal lay defal la. da la ko ah nee na dafay wisal waaw Fodou borom ciment ak fer digg diggam ah mais tamit Youssou Ndour Ada Dieng tàggatoo ko ba pare di gën a tàggatoo ma de non tàggatoo ko ba pare eh bi tam bàyyi sama star tàggatoo eh, doy na pare non même tudd yàlla eh, barke eh, Sëñ Bamba léegi ma tax nga am vité waaw léegi léegi boo yow su su li gaay gërëm nag Babou Ndiaye Babou Ndiaye Orien Babou Ndiaye Orien ak Orien Coow ndax ñoom dañ may jàppale dama bëgg a yóbbu dëkk ba du ma fay dara Babou Ndiaye Orien ak même yow même yow. même yow même yow. Eh, di gërëm ma jóg fa Karajo sama booy la. di gërëm <laughs> Karajo moom war na ma. Karajo tëj na micro yëpp. kon nañ mën a wax mais loolu de Ousseynou Khoule moom boo waxul. Big Taf tàggatoo. alors man dama yor joyeux anniversaire à Sali Dia depuis depuis. Euh, je ah. Adama balaa maa dee mu ne mu ne bu tàkk bi. Salidia Sal torop séeréer buy sol costume. wala maa bu séeréer bu civilisé. ah c'est bon depuis cinq heures waaw dégg nga costume moom yéen a. nee nañu Pape nee na tëj nañu ko yëpp. dama laa may. non tëj nañu ko ñu may waaw gisoo mu ngi naaj. quartier. wala maa bu. yow yéegoo ni tëj nañu sa micro ñi. tuuti Ndiaye. Tuuti Ndiaye loolu Mbaye Ndiaye baax. non aca ñi ngi euh, joyeux joyeux anniversaire laay wax Sali Dia depuis Joal waaye itam ki nga xam ne moo di Ndeye Tall depuis Kaolack Sam joyeux anniversaire Adja bu Go Fashion moom itam maa ngi koy wax joyeux anniversaire merci beaucoup à tout le monde Bamba Style moom itam moo ma jox bi tey merci beaucoup à Bamba Style jaa def bijou pare nga waaw non nuyu ma Papi Demba Cissé Papi Demba Cissé <laughs> waaw d' accord. waaw wax nga ko par dégg na Ousseynou Khoule Mamour Khoule d' accord. ay ci bi. Mhm. ak waa Ndar ma ko. ba ba ba Bassirou Ka borom terrain waaw eh Bassirou Ka sama waa ji laay wutal terrain de eh Bassirou Ka sama mbokk taalibe la da nga fàtte. ayca euh, euh, mbokk téléspectateurs yi waaw ñi nekkoon ci ci ci YouTube bi ah ñi ci suuf laay mu ne ay waay kii yow yow baal naa la dégg nga ah? yow moom baal <laughs> waaw yow baal naa la dégg nga ah? euh, ayca xam naa ni daal euh, su ma tegul woon Adama Diouf fii du ci mën a jot du dëgg ah yéen wax leen lu leen neex d'accord xam nga man keeruma leen. ay euh, ñu bari ñoo ma woo pour ma def interview doo ma fa. eh bàyyi loolu kii sama xarit la. ayca may gërëm eh Kirara surtout dem leen ci page Instagram bi confrontation l'officiel ngeen daal di daal di daal daal di abonné ah 2 euh, aussi ngeen di sonné pour mën di émission bi saa su commencé rek bu ngeen abonné da ngeen koy mën daal di jot ah euh, ñi nga xamante ne ñu ngi ci site internet bi si Kati maa ngi koy gërëm euh, Mouhamed borom Clean Oil ah a ndeyu Tafa Gueye ah, Namori Bache Namori moom sama Namori la ah Armand Ndiaye bu ak Dabaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax waaw trop Saïd kooku sama sama sama xarit la Prince promoteur ñoom ñëpp Mas Koki Amadou Gueye fifty kooku mooy borom tapis vert à chaque fois ñoom ñoo ñuy indil reer bi ah ca euh, ancien piste bi euh, wetu kër Cheikh Béthio euh, ayca di gërëm aussi Lamine sàmba aussi ci émission bi xam nga ak Modou Mbaye ak Seydina borom Sénégal ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di gërëm Big Poto aussi Thierno lu borom DG borom Estat Amadou Bari ah Pape Diouf mi leen jox yaay Seydi seen sama. sama sama sama yaay sama xarit Demba Gisee Pendo Gisee ñoom ñëpp Papa Ndéri borom ISEC ñu ngi koy euh, nuyu bu baax wax dëgg yàlla euh, Mariama sama yaay ah borom États-Unis Fat Fay euh, kooku mooy stress bu mag bi ñoom moo nekk ci ci ci kii faatu ñoom ñoo nekk ci euh, euh, émeraude couture. xam nga hmm. ñoom ñoo fa nekk waaw Fatou. waaw ca la waaw waaw ci yére bi nga sol nii. ñoom ñoo fa nekk ah Pape Diouf moo leen jox yére yi. numéro téléphone baa ngi fii après léegi dinaa leen jox léegi numéro bi. ngeen daal di koy. Euh, sama yére <laughs> baax na may gërëm aussi équipe technique bi ma àndaloon di gërëm aussi sponsor yi nga xam ne à chaque fois ñu ngi jàpp ci émission confrontation di ko jiital ci Wave. nee leen euh, dem leen ngeen téléchargé Wave seen xaalis yéen ko moom li ngeen di versé ah neex na trop waaw Wave xanaa am nga ko Wave waaw. Wave ci biir wàcc bëgg ko abonné itam am na wéef waaw application baa ngi nii waaw wéef ah, télécharge leen ko yéen tamit ah la gis nga application baa nga noonu wéef waaw bàyyi ma eggali sa xaalis yaa ko moom wéef euh, la fa versé loolu ngay retiré te du am benn frais booy versé du am frais booy retiré du am frais euh, <laughs> booy versé du am frais booy retiré du am frais ah, ah boo waree envoyé 1 pour cent rek ngay fay ayca waaw wéef ah yeneen di nga am du ma tudd tur da ngay am fay fere producteur fere dafa metti Adama Diouf lépp dañuy gërëm ma ne tuub bu leen gërëm waaw weef moom dafa neex booy retiré doo am fere euh, euh, euh, booy versé doo am fere waaw te booy envoyé un pour cent kese ngay fay ayca weef ma nga noonu waaye tamit mooy gërëm ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Dolima Sow dolli ma ak. Euh, euh, tase na ak ñoom Fatick ñu may ma buur barke Sidina Mohamed bu may dem. Mhm. ak suma bakkanu doom. waaw eh, ñoom seen combat bi ñu ñëw ci sponsoriser leen sax. dama dem ah. oh, ñu ñëw. dama il faut ñu ji lay fàtte ba gis ma yor naa au euh, euh, euh, royal nag xam nga xam nga billahi buur dañ ma gàttal au royal nag xam nga moom mooy buuru ndox Fatick corona Fatick waaw ñoo ma war seen bopp au may ma ngàddi buur bu sedd waaw kay buuru ndox yaa ngi au au pur et très légère ndox baa ngi nii au royal ayca nuru la jus borom EDK nuru la jus ah bii de neex na man sa e ma ci gars yi koo naan quoi dafa ci la ci la naan rek dañ ci bosam waaw dëgg la xam nga li bii ci njeer ah mosal ma njéer bi mosal bii di tax bi la ayca euh, karaajo may ma eggali nii te ñëw ay waaw waaw toog leen rek ma eggali ayca waaw euh, faa ma wax sponsor eh, euh, ma nga ma ma noonu waa Jolof Chicken aussi waroon nañ ñëw mais xam naa ni vendredi incha allah dinañ leen gis Aïssatou daf ko yéex a Euh, Nour waa Jolof Chicken moom ñoom tamit boo demee ci ëdekaay yi ñoom ñëpp euh, Jolof Chicken di ngeen gis spot bi ah, yu baax la dëgg yàlla consommation locale hmm? Sénégal consommons sénégalais ay ca euh, ñoom waaye chaque fois ci émission confrontation bokk na ci Boubacar Yara ah. basin yi am dinaa la boole ak moom nga def jox la basin ci koo koy borom Mali Boubacar Yara basin yu baax ngeen am doomu ndeyu Pape Bay euh, sama doomu ndey sama xarit waaw kay Modou Silla seen gold sama waa ji kenn du moom euh, Modou Silla doomu ndeyu Maas doomu ndeyu Mohamed ñoom ñëpp ñoom ñooy génn à chaque fois ci 24 carats ñoom ñooy génn à chaque fois ci bijoux yi ah bijoux yi nice yi waaw ah yow lan la ko ah, eh, demee deux fois <laughs> en face émission bi ayca Masata ak Masaya Ndaak mooy génn à chaque fois ci ci yu nice yi grand boubou yu yanj yi euh, Baye Modou en face Masalikul Jinaan foofu la nekk bu demee rek di am grand boubou yi nga xamante ne chaque fois maa ngi koy sol. Euh, tey génnuma ci étincelle couture waaye Boubacar Yara à chaque fois mi ngi accompagné Bijou Ngoné ci li nga xamante moom mooy bazin yi Euh, di gërëm aussi Amélia Sinthia euh, ci make-up bi Sacré Cœur di gërëm aussi euh, ki nga xamante ne moom mooy defar à chaque fois sama traitement cheveux yi di joojo ah complexe moment di gërëm équipe technique bi ma àndaloon jiital ko ci Babacar Karadio ak Papi Bruno ñoom ñëpp ma leen di gërëm Doudou Wasson ñoom ñëpp ma leen di gërëm di leen jox dig daje ci seen beneen numéro de votre émission confrontation wul bëgg big taf kenn du yow non solo bi macha allah bisu kan Körper. Pas ça va. waaw ça may calculer nii ñaata laa war a fay pour fay sama facture. fay pour fay say facture. ah waaw. non non pas loolu xewi na mais Wave ko Wave. ah oui paiement de facture zéro franc. kon Wave ko. Wave sa xaalis yaay borom.